combat. Ah. ma daan ko disjëlee loo xam ne bu bokkul ma boole ko si beneen beneen daal di gis jëlee xam ne bu bokkul ma boole ko si beneen beneen omoñ ak si biir. waaw li koy daal moo nekk ci man rek li ma gën mooy liggéey pare bor bi sifflé nga xool li bañ nga def ko. mën bëree koy daan wala am doolee koy daan. fii da lay complété parce que nag man nit moom booy bëri yembar sax wala ngay koo ni moo la mën wala ngay bëri koo xam yaa ko fi doole wala moo la ko doole pare ci lépp. Caaka du ma du si bëree si ma sax bàyyi sama xel si moom. Reug Reug ma ko dara di taan. ah at bi sifflé ah. ci lay xam ni bokkuma ak te yàlla du ñu mus boole. Babacar. mu doon tàkkusaan lu mu lay fàttali ci làmb. waa lii nag li ma mën a fàttali ci làmb xaw na bëri mais nag genre combat yi xaw na raar combat boo xam na ñaari adversaire yi maanaam dañoo tolloo ci lu bare bare bare bëri moom c'est très rare nga gis ko ba pare di ay xale. di am mbégte bu baax a baax ci organisation bi di am mbégte tamit ci eh, li nga xamante ne tey moom la amateur yi def tey teel a ñëw dagg seen ay ticket 11h ubbi nañ stade bi vraiment tey stade bi mel nii te mbëri duggaguñu ñu ci am mbégte di ci am contentement bu di ñaanal yàlla ñaari mbëri yàlla dafa leen jàmm. Dakar Sa Thiès euh, victoire. waaw waaw. war na victoire Sa Thiès war na ko rëg rëg. Père Max nee na ñaari ndamay dugg mais benn ay sarax sarax. day gañe lamb. day gañe lamb. wax nga dëgg. Babacar. waaw Reug Reug génne confiance mun na bet ci lamb. waaw Babacar ndax li dal lamb euh, mbëri magi ci lamb da koo dalagul. dëggagul mu ñëw ci lamb. Mm-hmm. chaque jour confiance total lay am moog ay supporteurs am ak ñi koy ñaanal ak ñi muy àndal. Mm-hmm. waaye Babacar bisu tay bii. waaw bis ci biir bés. wax naa la ko sànq. Mm-hmm. Reug Reug ci carrière waaw mu ngi door am mbër mu mel ni mu ngi door a am mbër mu mel ni Sa Thiès. loolu moom sama mbër mi pare na waaw dangin gi moom xam nga xam na ne saal bi la nekk waaye gaynde gi bu ñu saal bi muy Sathiès te bu ñu ko jàpp bu soobee yàlla fii danañ ko wan na ko carrément saal bi jarul xeeb parce que champion champion doomi champion taxul. nga ne da ngay reculer non non dafa liggéey ba yegg si fii nii bu ñu moo ko indi fu mu toll fii dafa rampi ba yegg si parce que am na doomu bëri yoo xam ne ñu bëri kenn xamul leen xam ñu ngi ñaan yàlla mu jàpp ko dumba ko daan ko bu soobee yàlla loolu leen bëgg non ñun bu gaaw baax na bu yéex a na parce que Saliou athlète la ku ko xam xam kii am na physique am na doole man na bëri te du yàq làmb te ñu ngi ñaan yàlla yàlla ma ñu ndam loolu la ñuy ñaan Sa Thiès Lamine. Sa Thiès ay dugg si. Sa ay dugg am na solo. kii seetul de Babacar gis naa Pape Ba tey de looy ibbi kii Pape kii sol seetul de ñaanal la ndam ñëpp boole jox la nga boole yëpp yow tamit ñaanaat des ba mu xóot nga suul loolu yëpp Babacar ay tegtal la boo dugg sa talal sa loxo si biir géew xam na ay cat xam na ay ñaan yoo def yoo xamante ni day aw yow Babacar pour yàlla suturaal la boo am gàcce loolu yëpp yaakaar naa lu baaxoo la ak lamb par ay baaxi lamb la zako muy def bilaay yërëm naa arbitre li tax ñu di ko wax mooy ñaari mbër yi ni ñuy bëree moo tax ndax rëg-rëg lu mu téye ba dajale ko nam ko bëgg def la koy def saa Thiès nag daa nekk koo xam ne dajale ko dafa xaw a jafe ndax du taxaw xefa xippi lay bëri ndax souplesse baa bëri boo laalee fi nga yaakaar ne yéen nga ca suuf fekk mën naa jug sa bàyyi la maanaam mbër la moo xam ne mu nëkkaroo contrôlé la rëg-rëg nag wër nañ ko ndomba ci mbapat mu daan lu ne bëri na ko ci mbapat ndax dama ko topp ci mbapat man ak Lamine topp ko fu baree baree bëri mu ne boppam ci lu baree bare bëri dinaa dem ba reer saaga di doog xam ne daan naa bu at bi nepp mu dal sama kaw maa ngi koy xaar mais tamit na sóor man tamit bu ma dalee si kawam na sóor loolu na sóor loolu non na ko sóor ci la mbapat waaw ci bappat bi waaw ñu ko daal di dañ ko accéléré mayuñu ko jàmm maanaam mayuñu ko jàmm dox ci kawam taf affaire bu bëre ci kawam am ndam ci moom dëgg la bëre ci moom caral am ndam ci moom boo xoolee moom Obali waaw mook général Malika waaw bébé Diène Birame Bissine mook mook Franc lim leen daan daan keroog bi ko gars di daan dañoo jël ay engagement ci kawam du neex du nekk sax. waaw mais dina andi ay manière am. comme ni comme ni Jamaye koy wax sànq. waaw dina ñëw nappaate. waaw cëfër cëfër. waaw ba yow mi yow mi nga xamante peut être yaa voilà yaa gënoon a avantage sax. waaw da ngay commencé di douter. ana yàq di voilà di di poser wu ay questions. li ma gëm wallaay la si maa ko mën ci bëri maa ko mën ci xeex maa ko mën ci ci lépp li ma war a li ma war a def. importe si pourcentage mais lu mu la mën a wax mooy Sa Thiès même takkule takkulee gàllaaj même bu sangulee day daan Reug Reug si entraînement laa ko léegi nag ñëpp yaakaar ni maanaam man léegi boo doxee sama kaw damay afale te pourtant saison bi ba mu ñëwee boobu laa ëpp drapeau la ëpp ay millions si làmb te ku ñëw day ñëw sama kaw te loolu laa bëgg. yàlla moo ma natt ci cinq secondes seconde bu ci nekk mun naa ci def sama technique mais moom yàlla moo ñaalewu kon du du du question mën a bët euh, question gaaw non non gis nga nit ki dina gaaw trop boo ko boo leen deñantee dina xam ne kii góor dëgg la te Sa Thiès mënta bëri lu ma jaaxal si man si man mënta bëri lu ma jaaxal Omar Kane Reug Reug moo war a caaroy woon ñu ginnaaw. moog Sa Thiès la Salif Sakho Sa Thiès war a géejawaay. faram da ngeen def waxtaan la. waaw. Mathieu laaj na Sa Thiès mënu ko waaw. mbaa xam nga ne Mathieu moom moo arbitre Balla Gaye Gris Bordeaux. waaw Sa Thiès toj na benn nen. arbitre bu mag la de Mathieu. bés du ko dépassé de Mathieu. ma ngay laaj ay suisam. Lamine bul jaawale ne la. Reug Reug nee na waaw pare nga Sa Thiès. far dem na ñu ne. 20 heures 27 minutes 30 bi la grand combat bi Babacar. Sa Thiès la. ak bu écrit caaroy faram tout. ah Sa Thiès daa mel ni Sa Thiès daa mel daa bëgg jël temps am tey. waaw Lamine loolu am na solo. waaw. Lamine Sa Thiès dafa mel ni dafa dégg ko gars yi doon wax. déedéet du ci mujj du ci mujj. waaye mu taxaw benn une minute yaakaar naa ne dina bokk ci li defar combat tey jii. du ci mujj Babacar su ma juumul. waaye rek rek tey jii xamal lu tax. waaw ci dem rek lay mujj ji boo sàgganee. waaye ci dem lay mujj waaye rek rek chaque jour war naa mën a xam. daa mel ni koy xaar. waaw. taxawaay bi ma gis. ña ngay léemu kuy xaar la. bu leen ko jaawal seen abis booy comme la. ñaari pieds gauche la. bu leen ko mu ñëw attention attention kan appui yi. kan appui lu mën a nekk la père. Lamine am na loo xam ne nii. waaw moom la Reug Reug Reug daa bëgg a bëri Sa Thiès làng te Sa Thiès bëri ci digg bi moo ko gënal. Sa Thiès dagg na leewaatoo bi. dagg na leewaatoo bi xoolal Lamine. xoolal waaw day dem. Sa Thiès a ngi jege de. Sa Thiès. jaadu na day dem daw na jël ko daw na jël ko Reug Reug jël na Sa Thiès Sa Thiès Reug Reug jël na la mu bañ laa ilaaha illallaah daan na ko daan na waaw dalan dooraat na ko mu daw jël Sa Thiès Reug Reug ñi ngi xeex. ñu ngi xeex ñu ngi xeex. dóor mu daan dootu ci am. Sa Thiès dóor. Lamine Seck Sa Thiès ak Reug Reug. dóor bu baare. xare bi dal na. encore bi dal na. dal na jëlaat na ko. jëlaat na ko. dal na ko Reug Reug daan na ko. Reug Reug daan na ko. Reug Reug daan na ko. Reug Reug daan na ko. Reug Reug daan na Sa Thiès. Reug Reug daan na Sa Thiès. Reug Reug daan na ko. waaw. naa wàcc tëbu ko. non non waaye waaw. non attention. attention doy na waar. doy na waar doy na waar doy na waar. doy na waar doy na waar. ah doy na waar. doy na waar. doy na waar doy na waar. waaw Michael Michael. mais Sa Thiès il est puissant. Hey! tànkam ñoo ngi fii Reug Reug di ko wër Sa Thiès di jàpp ñettal ba fii xanaa bëggul ba tey waaw waaw waaw waaw

jël xam nga lan lay doon Sa Thiès dañ ko nangu ci làmb ji nag moo tax amul Sa Thiès ñu dugg nañu gën a faare ak ni c'est le maître du terrain lan la ñuy expliquer di am li ñuy wax dañoo yàq léegi bu pare man si wax bu pare nan wax si ñu yàq duñ tooñ baar ci làmb ji baar baar dafa war a am maa ngi lay di la siyaar. waaw maa ngi leen di si nuyu di leen siyaare di nuyu Sénégalais yëpp. recours bi kay du ma la wax fi mu tollu dama lay wan dama lay wan fi mu toll gis ngeen ko nii yéen ñëpp yéen a ko gisandoo yaakaar naa lii moom moom rek moo mën a am parce que waru woon agsi fii yàlla def na agsi na ma fii jot naa ci ah, ñii sant yàlla di ñaanal mbër male nga xam ne moo doon bëreeg Sa Thiès bu jóge ci combat yi yàlla na ko yàlla may combat bu baax bu mu mën a am ay ndam ñoom ñaar sama ñaari doom lañu maa ngi ko koy wax toujours bu ñu toogee ci plateau yi te noo bokk lépp mbër mi ak manaase bi ak euh, yéen ñi yore journaliste yi ak ñëpp ñun ñoo bokk làmb ji mënuñoo tàggali ko léeg-léeg ñu jiw moto léeg ñu jiyoloo mais mënuñu mënuñu tàggali ko nañu nañu sant rek waaye. indi ay combat yoo xamante ne nii bu ci nekk rek ma doon na journée boppam ñu ngi xaarandi Tapha Tine ak Eumeu ak yeneen mbëri qualifié numéro 2 Thiatou Daouda Fall mu war a nekk journée boo xamante ne nii bu kar ku màndiwul woon làmb tey di nga màndi parce que combat bu ci nekk rek journée boppam la combat bu ci nekk grand combat la buñ ñu ko indilee tey may ñu ko yaakaar naa ni amuñu lu dul satisfaction ak mbégte ci bisu tey. tey yaakaar naa ni ku ci nekk boo ñibbee tur bi xam nga lan lay doon tey. waaw ban combat moo gën a neex werante bi ci loolu la nar a nekk. werante ci loolu la nar a nekk tey kon yaakaar naa tey képp kuy dund lamb rek incha allahu rabi am nañu yaakaar sa xol dina sedd ci bés bi waaye aussi gis nañ fi aussi côté animation tey. ku tey yëngal parce que ku ne xam na ne tey Eumeu Sène Mor Ngom moo ko tuusal borom kumbal mën a tëgg lool lool lool am feeb tey bëri na tey galañ bëri na tey ay morceau bëri na tey ay son yu bëri yu gars yi di tëgg tey ci làmb tey moom Mor Ngom moo ko créé kooku moo war a tuusal ki nga xamante ni tey moo di Eumeu Sène waaye ku nga xam ne tey Momo Ngom le fils de Baba Ngom champion la ndaanaan la ci li muy def su fekkoon ne dafa ñëw andi turu baayam waaye yaakaar naa tey lamb bu jot chaque dimanche ñu gis ne Momo Ngom dañ ko fi andi ngir muy bëggal amateur yi nga xamante ni ñoom ñoo dagg seen i billet di seetaan si lamb waaye aussi Paalo dëgg Fatick nekk xale moom aussi mën li muy def yàlla may ko ci euh, don mu ko respecté ko tey aussi gis nañ ko fi mu war a ñëw tuus dama xamul ne exact ndax moo war a tuusal Eumeu Sène euh, Taphatine am déet parce que Taphatine baabu xëy moo ko daan tuusal d'habitude waaye gisaguma ko waaye ak lu mën a xew daal am nañ yaakaar ne daal Omar bés bi tey côté ambiance moom du manqué daa taw la tubaab yi kese laa taw te moom yàlla daa am mos a jël muy rëy yàgg na tey te dal waaw te bañ a xew xew xew xew salte yooyu noonu na tey dal jàmm bañ a yëgëri loxoom fexe ba jàpp bu jàppee soo ko dóor ba pare ñoo ñu kay rek noonu la demee nag jël sa waay jël sa waay bool bool noonu la demee nag mais nag xam nga nii nii xaar rek da ngay saagaane da ngay saagaane su xamul garabu saagaane dama laaj bool bool wala kajoor kajoor yi. dama boo daaxee kër yi saagaane day xaar de am day xaar allo. rek jabay rek lay toog ñun. maa ngi gis nga jabay rek teg la. ñëw leen ñëw leen dina ma biir moo defal lépp loo xam ne incha allah. ñëw leen nii si raay. rek ca kaw pigil rek bàcc rek dégg nga. bés bi est-ce que c'était évident tey mu mel nii. waaw xam nga lamb moom boo ko miinee. day yomb pour nga def lu mel nii. parce que du boo ko xamee soo ko miinee rek xaw nañ ko miin tuuti na parce que yàgg nañ ci. loolu moo tax événement daf ñuy yomb dañ koy xam niñ koy organiser xam niñ koy defee loolu moo waral tey journée nu mu mel nii nga gis ko mu taaroo nii daal. journée taaroo na macha allah organisation bi jaar na yoon gis nañ aussi ay dispositifs sécuritaires yoo xamante rek dafa mel ni bokk na ci li ci li li a gën a gën a a nga xamante ni bi waaye aussi li gën a bés bi parce que gis nañ tey ñu def ñaari barrière parce que gis nañ dimanche passé xam ni doomu yegsi na doomu si na si na de magu wuli na. sama mag ñëw na sama mag xarit eh, ñëw na. Baye Fall ngoogu. sama mag ñëw na sama xarit bi ñëw na. Tapha Tine dugg si na. le grand champion du Baol le futur roi ngoogu. nit ku baax. le CA du Baol na. Tapha Tine si na. Eh, Tapha Tine yegsi na de. ànd na ak Ngel Thion. ànd na ak Mbaye Ndewane. ànd na ak Mawla Ouma. ooy Tapha Tine yaramam seen la tàng de Boucar. gis nga eh, Ablaye Ndiaye ngi noonu borom Zawal kon xam naa ne góor gi Senghor bu Zawal warul sori dafa daw na eh gis naa fi Babou Sarr ndamal daalu borom Diofior dafa yaramam daa a tàng rek bu kër jaa ngi noonu dafa tin le sa sa Bawol yaramam teel naa tàng rek cosaan la andi gis naa fi waa Bawol yëpp nee naa la tey combat bi du mën a yomb dafa tin bu mu fi mujj digganteem ak Bombardier amul neex parce dafa ñëw Bombardier am blessure combat bi mujjewul ak mujjee coow yu métti tey nag mu war a laale ak li nga xamante ne moo di Eumeu Sène nekk un grand champion nekk champion daf def lu ne ci làmb Sénégal yëpp ne ko Eumeu Sène bii boo bëggee jàmm ñëwal jàpp bëree ak Tapha Tine waaye bul si jéem a xeex mukk mukk mukk Tapha Tine ay mbokkam ne ko ne wala ñuy ne ko boo ñëwee fexeel xeex Tapha Tine dugg si na ci biir arène nationale il a franchi le seuil de l'arène nationale à 17h29 Tapha Tine le géant du Baol bien accompagné bien sûr on a vu Gorgui Senghor on peut dire qu'il n'est pas loin on l'a pas encore vu mais on a vu Ablaye de Sowal on a vu Dieye Sène promoteur de a de lutte on a vu Babou Ndamal Darou qui nous vient de Diofior bàyyi na leen fare on peut dire que Tapha Tine est bien accompagné bien derrière son lieutenant Tapha Tine yegg na yaram ba na ma ngay xiiru mu ngay yëg lu bëree bëri moom Tapha Tine waaye nee naa leen tey combat bi du mën a yomb digganteem ak Eumeu Sène la kon nee la Tapha Tine ñëw na ñëw ak doole ñëw bien accompagné bien sûr. bu ko Tapha Tine Tapha Tine dugg seen bi rëb na. rëb na yëngatu na l'entrée mouvementée l'entrée mystique de Tapha Tine tey lamb. bi bu newoon suñu àngalu kër. waaw falaa dem toog pour seetaanaat lamb ji bi ñu ko tegee. ama seen a ngi noonu père dugg si waaw mu ngi dugg si noonu de. dugg si na. mu ngi dugg ñoom Pam Ngom a ngi noonu. waaw ànd ak ñoom Pam Pam Ngom. ñoom Pam Ngom waaw. bu dee xeex moo koy ubbi te bu ngeen jàppantee doole ba du feeñ. technique c'est la dafa technique dafa technique. day balee xel ama seen il est gis nga ama seen moo tax moom Modou loo sen baabam. bi mu ñëwee bëre da gis bëre ba doyal. Mhm. parce que c'est un très grand technicien. Eumeu mhm. Sène ak Modou Lo est-ce que xam nga Balla Gaye 2 na bëre trop. waaw mais du technicien. ah bon oui. technicien mooy kuy riir ci bëre boo ñaar technicien la ci bëre. dëgg xool li muy def. xam nga xam nga technicien mooy boo ñaar bi ko Balla Gaye songee. Mhm. mu def deux pas fexe ba plaqué ko loolu mooy technique. technique mooy. comme ni Modou Lo def Ama Baldé ñu war a dama nga rëpp war ko nobo maanaam technique. waaw nit dalay jëkku ba bëgg laa daan. Mm, nga def technique daan ko. ba génne si. kooku Ama Baldé moom mu ngi koy def Modou Lo da koy def Ama Sène aussi da koy def. ak lu mën a xew Boucar balaa 18h a jot. waaw. ku ci nekk li nga doon xasan xas xas la ak sa morom. yaakaar naa ni li ciy des du doon lu bëri. alaaji Pala làmb ji ma liir ni tey. waaw diggante Tapha Tine ak Eumeu combat bu doy waar la tey. non combat la parce que gis naa Amath seen dugg si na. Hmm. gis nga tamit moom it gis nga sérénité bi muy bi muy wane. mu ngi noonu. Ah. day wane day wane sérénité. moo ngi noonu waaw gis nga ko. moo ngi yëngël bopp rek. mu ngi noonu di dox di ñëw moo ngi yëngal bopp rek. maa ngi nuyu téléspectateurs yi ñuy seetaan ci waxtu wi waaye nag di nuyu waa diaspora bi yëpp di nuyu waa seen affiche point com di nuyu waa Lutte TV di wax rek ni euh, ñu ngi fii ci arène nationale. ci bis boo xamante ni bis bu rëy la dox ci diggante ki nga xamante ni moom mooy Eumeu Sène ak ki nga xamante ni moom mooy euh, Tapha Tine ah mu nekk làmb joo xamante ni bokk na ci combat yi gën a rëy ci saison bii nga xamante ni ci la ñu nekk loolu moo tax nag tey ñu teew fi war a def li nga xamante ni moom mooy euh, waxtaan ci wàllu làmb waaye ñi nga xamante ni ñooy waa diaspora bi perpévu bi ñu defal leen ko ñoom tamit ñu am mbégte dara bañ leen a réer ci làmb ji lépp loo xamante ni xew-xew la rek ñu bokk ak ñoom ndax ku nekk xam na ne diaspora bi ni ñu mel ci làmb fopp foo dem ci àdduna bi rek ñi ngi seetaan wàllu làmb surtout tey dimanche liggéeyuñu kon. laaj naa leen ko sànq dugg si Tapha Tine ngeen ko gisee mais Eumeu Sène aussi dugg si na ngeen koy gis noonu moom aussi nan ngeen ko gisee bi mu dugg see lan ngeen jàngat ci moom. mais ñoom ñaan ñëpp indi lañu confiance tey. ku ci nekk ku ci nekk boo ko xoolee rek foog na ne moo mun moromam Tapha Tine actuellement kanamam loolu lay wane kii maa ko mën dama koy daan Eumeu Sène dugg ci nga gis ko mi ngi ree ak sourire bi mbër moo gis mu dugg ci ak confiance bi mu àndal da ngay jàpp ne kii am na lu muy ndaale tey moo tax gis na làmb tey jii wax naa ko tout à l'heure nee naa la luy am des fois day feeñ ci premier combat bi moo ngi nii ma Eumeu Sène mu ngi noonu. aywa ñu dem. mais gis nga li am ci premier combat bii ñu génn. waaw nañ bàyyi xel loolu ci làmb ji di ñëw. ah la boo xam ni mën nañ ci waxtaan lu bëree bëree bari parce que ñi ko seq kenn ku ci nekk am na lu la yàlla defal ci expérience ci wàllu làmb. dafa mel ni mën a neex la. ndax ñoom ñaar ñëpp dañu sportifié ba pare fair play. boole ci discipline. ndeysaan xool ko seen combat ñoom ñaar. xanaa kay. Ah, ñi seetaankat yeeg ñi leen topp. mais ñoom ñaar jël policier yu bari. déedéet. ndax seen yar. dëgg la loolu am na. waaw jaru loolu am na. voilà moom ama mu ngi noonu. waaw Palla ndeysaan gis nañ fi Balla Gaye waaw xam nga moom nag daa bokk ci làmb dëgg la dafa bokk ci làmb làmb ko làmb ko bëgg moom Balla Gaye génération bu nekk day am ku mel noonu dëgg la waaw tey gis bi mu duggee si làmb ji amateur yëpp jóg nañ ko saafanteeg moom dëgg la li ma li ma si gis daal mooy daa bokk ci lamb ah dafa bokk ci lamb làmb namu ko voilà mu ngoog parce que Balla Gaye euh, bu dul Covid bi mosul toog 10 mois amul combat mais dafa amoon blessure yàlla da koy fésal. Tapha bi mu dugg si ci bi da jooy. da doon jooy. waaw. waaw maanaam ci émotion bi la rek. émotion la envie de vaincre la rek. waaw émotion day def noonu. waaw nga jékki-jékki xool sa ginnaaw xool la topp. xool xool bi émotion bi jàpp la nga jooy waaye je pense ne loolu mi ngi si ginnaawam parce que gis nañ ko après jékki na jaayu sànni na ay coups. sukk na jógaat maa ngi koy xool ni ci jumukaay bi mais Tapha daal tey moom it xam naa li ma gis jekk na de. waaye tey waaw xam nga bu ñuy tëkkale ñaar am na ku mën. waaw bul fàtte ni ñoom ñaar seen tëkkale dafa yàgg. Hmm. bi ñu waree bëre yàgg na. am na ay jamono ñu dox fi seen combat doxaat ko fi mais mujjul taxaw. Hmm. mais bi yoon dañ ni il faut ñoom ñaar ñu tàggali ko. Uh-huh. balaa Eumeu seen di bàyyi bëre wala Tapha Tine di bàyyi bëre ñoom ñaar war nañu daje. Uh-huh. ndax dañoo am lu bëri lu ñu nuróole. dëgg njëkkante seen diggante ñi adversaire yi ñu dajeel. Mhm. bari na adversaire yu Tapha Tine dajeel Eumeu Sène daje ak ñoom. waaw loolu nag su amee foog ñu boole leen. Mhm. moo tax ñu boole leen Eumeu Sène waaj woo xam ni. Mhm. gëj na ko waaj uh-huh. a tamit indi état de forme ñëpp dañ jàpp ni kii entraîné na. Uh-huh. kon ñoom ñaar bu ñu leen boolee. mën nañ ni wax ni diw mooy daan du yomb. dëgg la. mais techniquement mën nga leen juger rek. ci ku nekk say defin ak say jëfin. waaw sa mhm. waaye teg ci duut baaraam ni diw mi mooy daan diw. Mhm. du du yomb. Mhm. moo tax ñu tuddee ko combat jàng. doonte ay mag lañ. parce que kenn ki bëre na vingt cinq ans kenn ki bëre na dix neuf kon ñooñu jàpp naa ni. dans deux ans trois ans ci kanam bu ñuy bàyyi dañuy jiitle. dañuy jiitle. dañuy jiitle. ay mag lañ dëgg la waaye per ñii ba léegi ni ma leen gisee dese nañ seen doole. mais looloo tax ñu boole leen. waaw dese nañu doole ba tey. waaw man lii ma gis nii hygiène de vie bi ñu am. waaw ak état de forme boo xamante ne nii. Uh-huh. boo leen joxee xale xale bi du leen mën a yëngal. waaw ah. moo tax ñu jël leen boole la. dëgg la mu nekk ñu ne nag kon combat jànq la. Uh-huh. gis nga fi ay jamono fi Mor Fadam tolloon ak ñoom tubaabu joor. Uh-huh. nga xam ne heure boo leen boolee bu ñu simmee ko loxo dem gémmi uh-huh. gémmi fa la tafaatin toll ak ëma seen dëgg en tout cas combat la boo xamante ne Sénégal yëpp mi ngi koy bàyyi combat boo xamante ni Sénégal yëpp ñu ngi koy bàyyi xel balaa ñëw sifflé ku ci nekk ci yéen ñaar dinaa ñëw ak moom ci tafaatin lan la war a bëri ak ëma seen ak moom waa jàmbaar loolu moom yaakaar naa ni wax bu yàqu la parce que ñi ma jàkkaarloo ñoo dàq xeex ñoo dàq bëree te dama am na fu ma jaar man sama benn combat setul sama combat Gris Bordeaux rek kenn ko fàtte Bombardier kenn gën ko dis loxo encaissé naa ko mbër mu bëre xeex naa ak yow fii mbër ñi ñoo daa xeex ci làmb yi xeex naa ak ñoom du dëgg man nag mu yokk poids ak mu wàññi poids loolu man li jëntiwu concerné wu ma quoi sérieusement parlé man Tapha aw ma lenn lu may sóor ci moom wala lu ma lijjanti ci moom amul ma lu ci moom awma calcul ci moom nañ bëre deux jours ma ak moom combat yi moom pare nañ pour bëre ak moom fan waaw loolu moom bu ci dégg naa ko mu naan ay tas ngemb ay laaj ndox loolu na ci noppaliku waaw na ci na ci xelam dal bu baax. bala waaw par ma ne bu positif la ñu def tey bu positif la ñu def xëy na lamb moo ku si nekk da nga jaar sa yoon waaw mais buñ jaaroon noonu ku nekk bàyyi bëri te bëriwuñu waaw loolu su boobaa du doon du doon lu logique mooy tuwante lay doon dëgg la waay ragalante lay doon moo tax lamb dem ba boole leen tey moo tax tey ku ci am ndam ah di nga am wooy bu rëy et puis di nga di bu sori waaw di nga ay kasa yu baax ak combat yu baax waaw ku ci nekk mu ngi taxaw ñu koy waaj a présenté ñu ngi nuy waa diaspora bi Père di am contentement trop toog fii parce que mun naa wax ne Lamine lamb day sajji le 12 novembre lamb day sajji le 12 novembre mhm. produit bi Baye Ndiaye am non gisuma ku ko am fii ren si lamb ji lii c'est un combat inédit combat jànq dëgg dëgg mooy Tapha Tine Eumeu Sène attention ñi nga xam ne dañaa bëgg pronostic attention ñi nga xam ne tey dañu bugg parier nañu moytu nañu def ndànk nañu tey si combat bi nañu tey si combat bi un combat explosif la am nii. xool fi muy teel a daanu rek balaa ko ci yeneen coono fekk. yeneen coono yu yeneen coono rek. coono yi la. coono balaa ci yeneen coono di ñëw quoi. mais ëmb moom la nee na moom bu ngeen moo tax ma ne la bu ñu xam na li mu war ne bu xam na moo tax bu ñu nee runkum daje damaa bëgg mu teel a xool fi muy daanu ndax am nay xeer pour yaram bi bañ a xoosoo ak ñoom seen quoi. mais kon yow li nga jàpp mooy su ngeen loo laa loolu lool gëm te laay pare dem daan ko loolu doo nga moo tax a jóg leneen taxu maa jóg dem daan ko vite fait. man gëmul loolu gisul gën a gëm ne dama koy daan incha allahu rabi. ba mu daa gëm ne da lay daal. man biir naa ne heure bu ma yeewu dem train yi du ko train kon maa ko gën a bëgg bu ko bëggee mille man bëgg naa ko dix mille fois. dix mille fois. exact. da ngaa jàpp yaa ko looy liggéey actuellement nii. non maa liggéey li may liggéey laa gëm moom li muy liggéey la gëm moom na gëm liggéeyam man ma gëm suma liggéey. loolu la man sama liggéey laa gëm te gëm naa ne bu ma ko appelé ki ci li ma liggéey xejul si kawam Eumeu Sène. ni ko gisee nan nga bu mag ku ma. Oh, respect oh, physiquement yow. nice. moom laa lay wax ma ne poids bi gis naa ko na ko gën a yokk. non Eumeu day wàññi mi ngi wàññi. non na ko yokk baax na c'est bon. non mi ngi wàññi. yow poids bu ñu yokk ak bu ñu wàññi yow xamoo. si bañ a gën a yokk gis naa ko dégg man moom ngay toog. waaw na gën na gën a yokk poids bi rek. lan nga lan moo tax nga bëgg. allah ak daal bëgg naa lool na yokk. ñoom Fatim aussi tamit Fatim ñu daax xeex bëri naa ak waaye li nga la mën a xamal daal lu ñu foog ci xeex bi wala ci bëri bi daal boo gisee tey d'accord kii dina jël xeex bi imposé ko ci li ñu waa Fatim ci li ñu yaakaar kii Eumeu Sène dina indi bëri ci li ñu yaakaar ñenn ñi bokk ci amateurs yi wala supporters yi mais làmb ji kaa ma xamal la dina am xeex bi dina am xeex dina am bëri dina am dóorante sax laa nekk da oh, de médecin du ci mun na am mun na ci am mun na ci bañ a daal li ma jàpp man ñoom ñaar dañoo gis dóorante ci coup am njaay joxul job benn saa dañu ko ci si ci. yaa nga xeex. waaw mënul ñaax. dóor ci. waaw lu nekk mun na ci am de. mais xeex moom du maa la wax léegi incha ñaari borom doole ñooy bëri doole ci la bokk waaw ah, mooy mooy mu mënti doon doole mooy priorité. parce que waaw mooy li ma waxoon ci sa waay rek moom laa lay confirmer nii mais ama nekk na mbër boo xamante ni dollar la ci biir géew lay lay leere ci biir géew lay wonee boppam ndax moom xam na ni ceddo jarul jaay si àll bi ci biir géew la ñuy wonee ceddo te mbër da ngay am ak mais ceddo gi doo ko jaay ci biti ndax bis boo ko jaayee ci biti boo ñëwee doo am loo jaay mais bis boo ko jaayee ci biti boo boo noppee ci biti jaay ceddo gi ci biir géew saa yoo doxee ñu ne ndaanaan te nekk na nit koo xamante ni tamit nag saa yu Pikine amee jafe-jafe bu toll nii Eumeu Sène mooy génn xàcc dóor wala mu taf nii hop hop hop hop. mooy mooy commissaire bi wala mooy commandant saa bu jafe-jafe amee rek. merci Eumeu Sène nekk na Pikine koo xamante ni commandant Pikine la. Ah. hop hop te xol bi noonu la rafete ama ah. ama moo fi taxaw nii chaque àjjuma damay woor kuy woor ku ne xam nga ne borom xol bu rafet parce que mënoo koo bañ waaw parce que ndaama la lii moo gudd waxoon naa la ko fi mais lii daa gàtt mais bis boo xoolee taay bi da lay nax ëmb mën na laa jàpp te doo jàpp saa yoo bëggee jàpp bu rasoo da ngay ñàkk parce que wet gee gudd moo tax bis bu la bëttee da ngay yaakaar ne jeex na fekk jeexul ëmb lu mu gën a jege suuf di gën a bëri te ëmb professionnel la ëmb mooy fëgg fii nga deene fii la mu poli falan fële hop hop hop hop dëgg neexul le géant du léegi ñu ngi laaj kan moo ko mën a yëngal moom moo ne jox leen moom ma daan ko jël bu leer. waaw mais mais xam nga bëre dóor tey mën nga sànni benn arrêt xam nga mu dal waa ji arrêt de médecin gis nañ fi bu tay xam nga lam ja jaare fa yem. contre sama contre Bombardier bi bëggoon na ku ma gis suur boobu xam ne tey dama ñëwoon pour bëre du sama loxo fu mu dale Bombardier parce que maa dem jàppi ko moo ñëw di mu song ma teru ko jàpp di ko yóbbu ci saako yi xam ma koy nuyu sànq rek ñu ngi déggante ma koy ñaanal ci MMA bi ko wax dëgg yàlla. yal na ko yàlla may ndam quoi. moo tax ñu ngi leen di ndokkeel bu baax. di nuyu di nuyu ñoom ñoom ñoom Ali Diop New York. waaw ñu ngi koy nuyu di nuyu ñëpp di leen ñaanal jàmm ak xéwal ak wërsëg ñoom Boga ñoom Moundiaye directeur. ñoom Abdoulaye Diop ñoom Malal. Euh. ñoom Thierno Seck waa groupe Lutte TV duñ leen fàtte. mais maa ngi nuyu Beuz. waaw di nuyu Amath ñàkk ca France. groupe TV ñu ngi ko ñu di nuyu. waaw. di nuyu ñoom Badou Diaye Sarr bu Garga. ñoom Badou bu Osot du ñoom Serigne Diour waaw. Arona Camara Mor Diakhaté. juróomi at gisuma ko muy commentaire. waaye waaye Jéelaani Pouy. Jéelaani Pouy ñu bàyyi xelu TV. alak perke topet bi lay bañ na xeex doo ko soog ragal naa mos ragal naa mos seen day dem de bu leen fàtte dimanche ah, site ragal naa mos seen day de guerre numéro 2 waaw ah. bu leen fàtte le 24 ah. wala le 25 eh, eh, waaw Aline eh, Sey ak King waaw waaw co eh perkit perkit bu la doole perkit day yàq sur na ko mu daal Eumeu Sène Eumeu Sène tabatin Eumeu Sène laa ilaha illallah am na lu xew am na lu xew am na lu xew waaye nañ yónni yàgg dañuy seeti ba arrêté nañu ko. Ardo Ardo. Ardo Ardo. Eumeu Sène yóbbu na Tapha Tine. Eumeu Sène yóbbu na Tapha Tine Ardo. yóbbu na ko. Eumeu Sène yóbbu na Tapha Tine Ardo. ana bawal bawal yi. lii kenn mësu koo gis. ana waa Casamance. lii kenn mësu koo gis. ana waa Medina Kër Ndiaye Lo. lii kenn mësu koo gis. arbitre bàyyi. ñu bëre. Eumeu Sène ñu ngi ñu combat bi gàtt gàtt kontaan na ci ñaari weer. arbitre da leen bàyyi ñu bëre. léegi nag moom Doudou Sané mbëkkante nañ mbëkkante yu métti. Tapha amee poids lourd bu mel ni Doudou Sané. waaw li nga bëgg mën ci Tapha Tine. dafa téye boppam ah, ah, ah, mu daan Maodo Thiam. turu xal na ko. mu rëb Eumeu Sène. Tapha Tine wax la man fii mooy place de la nation noonu la demee li ñu fi dajale nag làmb la muy combat bu mag bi war a am le mais mai arène nationale diggante Eumeu seen ak ki nga xamante ne moom mooy Sa Thiès galaa nag la Baye Ndiaye def borom alburax mu mel ni ñeent euh, vingt yëpp fas nañu yéene tey jàkkaarloo fii waxtaan ak seeni supporters waaye waxante ndax gis naa ne dafa mel ni bu may dugg fekk naa gars yi di yëngal kiriku ak papa bari baari ñoom war nañu bëri ci bés boobu noonu. waaye jiili mbay mi xam nga ko boom ah? xam nga jiili mbay wala xamoo ko daanoon na bàyyi ma ñu jël bu moo war a bëri ak seex ñaa ma ñëw toog mbër bi ñëwut 10 000 problème ak ni moo nami 10 000 problème ñu ngi lay ñoo si jàmm ñu ngi si jàmm bu wér. ñu ngi si jàmm bu wér. naka coono yi waaye sant alhamdulilah. kan nga war a bëreel. waaw ginnaaw bi sant yàlla julli si yonent bi santaal suñu ñaari waajur du nuyu waa Canaba Seck du nuyu waa Pikine du nuyu waa Thiès surtout Baye Fall Thiès yi maa leen di nuyu yéen ñëpp di ko jaarale ci Idi Idi Baye Fall di suñu sëriñ di suñu xarit di nuyu wàcc na ba see gépp xalifa général Baye baay As di ko ñaanal jàmm ñi ngi war a ak Jawde Jawde nga war war a bëreel champion la ko ñaanal jàmm di ñaanal suñu bopp jàmm waaw ñun moom xam nga mooy comme li gars yi da wax danoo sàngu rek waaye nelawun waaw te le jour si incha allahu rabbi dina nekk loo xamante ni képp ku seetaan di kontaan waaw waaw. sa diggante ak Diaw de bëre bu xam naa ne moom bëre dana fa. non loolu mënut ñàkk lu munta ñàkk la te lu mënut ñàkk foog mu am du dëgg waaw du ko ñaanal jàmm tamit di ñaanal suñu boobu jàmm bu baax a baax. noo ko gisee nii mu yokk wala mu xaw a wàññi. ah moom nag loolu moom mooy mooy mooy xalaat mais man moom lu mu indi baax na na indi rek. bu baax man su may bëree yow te amoo doole sax du ma man waruma comme ça mbëri bëri coow wala mbëri yoo xamante ni ay xiiboon lan mm-hmm. man li may wër ci mbër mooy mbër mu am doole soo ma naree jox adversaire te tolloo woon wala ëpp ma du ma ko jël. da nga bëgg mu ñëw dëgër këcc. dëgër këcc sama palmarès loolu la quoi. waaw te gars yi xam naa ne jël nañ combat bi mais comprendre quoi. jël na ko mais comprendre. non non xamul lu xew. déedéet yëgu ko. kiriku ci loo ne. kiriku. kiriku naa am looy lijjanti aywa kon kon kiriku kon a tout à l'heure kiri Djily Mbaye namm naa la wala mi maa ngi lay maa ngi lay maa ngi lay fay maa ngi lay maa ngi lay maa ngi lay nuyu waaw xam xam nga bu ñu lay introsé nga dem sa place toog sa place kay moo gën a ñaxe introsé mais kiriku lii c'est pas méchant ma lay yedd ku ma dem nuyu kee man dinaa dem di nuyu kee man. bul ko yedd loolu moom am nga ci droit mais. wa xam naa day seen day seen mag rek di def affaire mag affaire grand frère lay def rek est-ce que doo ko comprendre xam naa affaire grand frère rek la ci jublu. <laughs> mais làmb la moo tax. làmb laa waaw li bu ceddo la. wóolu woo ko. wóolu ma kenn kon wóolu woo ma nii. wala kenn affaire na coono la. wala oh. demee na Lamine. man dama sangu a tooke. waaw ah, mais ah, ah. <laughs> mooy loolu yàlla baax na maa ngi si Bamba. maa ngi sant yàlla bu wér wér dafa diis wala nu demee noonu. combat bi si dafa diis si moom. Ah, waaw ma doon bu saako lay may ñëw fii dafa jëm a jaay rek eh, man li indi fi si ñaar jël fi indi. luy xew si si digg géew gi lay xewee ñu ne man damaa naan man xale laa. xale laa yi def si man ay millions def si man xaalis bu bëri parce que Serigne Bamba ma bëggoon voyage voyage voyage taxaw na maa demut bëgg a waajee fii combat bi bëgg a waaj fii waaj bi metti man ma. amoo biir de. amoo la demee nag xëy na dañoo tiit di wax rek. mais man moom làmb rek. yàlla baax na man maa ngi woo waa buun rek. maa woo waa buun bu baax a baax a daal ñoom li muy gëm du loolu. boobu dañoo toog si ay tànkam entraîné ñu dañoo nekk ay xale entraîné. moo man préparation parce que gars yi ngi fex góoree de góor nañ ñu dimbali ci Pape Diouf bi tuuti rek Pape Diouf bi nañu may tuuti rek ñu nekk ci moom naa la grand. wala Lamine raw. yaa ngi jàmm baax. booy bi noo ko ko doon jëm yedd wala. maa xam nga booy yi comme ñun suñu rakk lañu sa ñu ñu la jiw si làmb donc bu ñu ñëwee fekk ñoom ñaar ñu xaw am ay ay ay jafe-jafe tuuti en fait ñun lu ñu war rek mooy que euh, wax leen ni làmb euh, du lii mooy làmb quoi. lambas te jii nii sport su boolewul donc warul tàggale ko donc looloo tax ma ñëw doon waxtaan ak moom mais malheureusement comprendre lul eh, ma jug dem. di teel na teel na eh, teel na de. mais nga lamb ji mën nañ dinañ ci gis lu doy waar. waaw lu doy waar incha allah rabi. ma fi waa grand bi jóg. barki alxuraan booba léegi ñoo may coore du ma laaj. baari kañ ngay bëre kañ ngay xale yu ndaw yi ñoo yow di ma yeesi. mais le cinq la incha allah yàlla nañu yàlla suturaal. mais est ce que dina diggante ki nga xamante ne waa lamb la lamb la rek comme yeneen lamb yi. yàlla nañu yàlla suturaal rek may ñu jàmm bañ jekk fekk fa jàmm rabi. mais ñu gis mu ñëw tamit léegi ngeen coow yéen ñaar dafa am lu ne seen diggante. non moo mun a teg ay grimace boobu léegi maa ngay seen seen laam bi muy ndellu di dagg yaramam di gàm boppam dama koy laaj ndax gaañuwul booy lu ñuy ñodi barki Serigne Bamba fii la fekk baax amaana ay mbir ñu ñuy seetaan moo tax yenn yi mënuñu ko def billaahi yàlla ñu yàlla suturaat rek. mais ñan ngay ci combat. waaw di si woo mafia grand fii yëpp grand mirin gaan xam nga ak yaa ma gën a xam aselem fii booy montagne yi Cameroun bi yëpp billaahi wallaahi di woo ñëpp daal ñëw jàpp si bu baax a baax seen doom

waa di waaj waaw maa laq bi léegi. xamante ne nii bu ci nekk rek ma doon na journée boppam ñu ngi xaarandi Tapha Tine ak Eumeu Sène ak yeneen mbëri qualifié numéro 2 Thiatou Daouda Fall mu war a nekk journée boo xamante ne nii bu kar ku màndiwul woon làmb tey di màndi parce que combat bu ci nekk rek journée boppam la combat bu ci nekk grand combat la ñu ko indilee tey may ñu ko yaakaar naa ni amuñu lu dul ak mbégte ci bisu tey tey yaakaar naa ni ku ci nekk boo ñibbee tur bi xam nga lan lay doon tey waaw ban combat moo gën a neex werante bi ci loolu la nar a nekk werante bi ci nar nekk tey kon yaakaar na tey képp kuy dund lamb rek am nañu yaakaar na dina sedd ci bés bi waaye aussi gis nañ fi aussi côté animation tey côté yëngal parce que ku ne xam na ne tey Eumeu Sène Mor Ngom moo ko tuusal mm-hmm. borom kumbal mën a tëgg lool lool lool am feeb tey bëri na tey galañ bëri na tey ay morceau bëri na tey ay son yu bëri yu gars yi tëgg tey ci làmb tey moom Mor Ngom moo ko créé kooku moo war a tuusal ki nga xamante ni tey moo di Eumeu Sène waaye ku nga xam ne tey Momo Ngom le fils de Baba Ngom champion la ndaanaan la ci li muy def su fekkoon ne dafa ñëw andi turu baayam waaye yaakaar naa tey lamb bu jot chaque dimanche ñu gis ne Momo Ngom dañ ko fi andi ngir muy bëggal amateur yi nga xamante i billet di seetaan si lamb waaye aussi Paalo dëkk Fatick nekk xale moom aussi li muy def yàlla may ko ci euh, don mu ko respecté ko tey aussi gis nañ ko fi mu war a ñëw tuus dama xamul ne exact li ndax moo war a tuusal ama se euh, tafatin am déet parce que tafatin baabu xëy moo ko daan tuusal d'habitude waaye gisaguma ko waaye ak lu mën a xew daal am nañ yaakaar ne daal Omar bés bi tey côté ambiance moom du manqué laa taw la xabaar yi kese laa taw te moom yàlla daal amul na jël a bañ yëkkati loxoom fexe ba jàpp bu jàppee soo ko dóor. waaw ba pare ñëw nañu kay rek. noonu la demee nag jël sa waay jël sa waay. waaw noonu la demee nag Paalum Tapha Tine bool bool. noonu la demee nag Tapha nag mais nag xam nga nii nii champion la mais su xamul garabu saagaane dama laaj bool bool wala kajoor kajoor yi. noonu la demee nag boo dàqee kër rek jëmay rek lay topp ñun. dama gis nga jàpp yàlla lépp dëgg la. ñoo leen ñoo leen dama bi moo defal lépp loo xam ne incha allah. ñoo leen nii si raay. rek ca kaw pigil rek bàcc rek dégg nga. bés bi est-ce que c'était évident tey mu mel nii. waaw xam nga lamb moom boo ko miinee. day yomb pour nga def lu mel nii. parce que du ma boo ko xamee soo ko miinee rek xaw nañ ko miin tuuti parce que yàgg nañ ci. loolu moo tax événement daf ñuy yomb dañ koy xam niñ koy organiser xam niñ koy defee loolu moo waral tey journée bi nu mu mel nii nga gis ko mu taaroo nii daal. journée bi taaroo na macha allah organisation bi jaar na yoon gis nañ aussi ay dispositifs sécuritaires yoo xamante ni rek dafa mel ni bokk na ci li ci li ci li gën a gën li nga xamante sécurité bi waaye aussi li gën a ñoŋal bés bi parce que gis nañ tey ñu def ñaari barrière parce que gis nañ dimanche passé xam ni doomu bawol bi yegsi na doomu bawol bu dugg si na si biir arène bi am ni Moustapha yegsi na tafatin dugg si na de magu wul yegsi na sama mag ñëw na sama mag yàlla ba nu mu tuddati daaru borom daa borom daaru njulee ngi nii borom daaru njuli waaw dëkk bi ñuy wax daaru njuli la dëkk fële nga xamante ne moom mooy ah, Ngoy Aliou Sylla yow léegi Ngoy ak Daaru la mooy différence bi laay que Ngoy Ngoy la Daaru Daaru la loolu loolu amul benn dëkk bu ndaw yi ay dëkk yu ndaw yi ko comme passé nga ne géej waaw noonu la demee Ngoy ak Daaru noonu la ah, mais mosu ma dama laa mosul dégg nga ne maa ngi nuyu waa Daaru waa Daaru njuli mosoo cee bàyyi xel ngay wax ne mosuma cee bàyyi xel mosuma cee bàyyi xel sunu waa dëkk parce que fa laa juddoo fa laa nampe ngooy laa jànge daaru ngooy mun nga. fan nga juddoo. man laa juddoo mais ngooy laa jànge bépp la daaru mooy ngooy xam nga demee du ñu waxtaan du ñu waxtaan ci xel rek comme da nga ay angal gumba ay riz bi non bi ñaar la ñu lay tëjoo day bii VIP la quoi ñaar bouton la am doom day bii du cuuni de. waaw waxal ci daaru njulli. comme la. comme parce que nga ne la ngoy noonu la ay ay quartier la quartier koñ-koñ noonu la demee mais ñoom xamuñu tël ni dam dama koy wax sax. mais Loro am na dëkk bu ndaw bu dëkk ci Loro dëkk Loro di Loro dafa yaatu di. non Loro laa dëkk ci maa ngi dëkk ci commune bi. ba commune de Loro man. non naan ku dem loolu loolu. am na dëkk ko wër am na dëkk yu bokk ci commune mais Daara nga bokk lan nga ciy bañ. nga ciy bañ la <laughs> non ma jaase <laughs> lan mooy da lan mooy ak Dakar. muy ma loolu yow loolu man man mi fa juddoo wala sama kàr rek gën a nee à Daara Njulli 1994. 84 nga judd. non 84 laa judd Lamine. 84 nga judd. barke Modou Mbacke 94 laa judd bàyyi bàyyi leen waaye. ban Modou doom de li ma laal du fi xele mais lépp lu waay mën a xam la treize le treize juillet bu ko kenn fàtte waa Père Babou maa ñëw war naa jox. treize juillet lu xew. treize juillet Ibou Ibou Afia Alioune Junior mais ci le 20 mai sama xarit sama mu ndey le 4 cero bee ñëw mais lamb na yi fi cero la fi non le 5 mooy dëj dëb gi nii moom kay ki am le 4 mu am problème rek. yi dëgg moom laa yërëm. waxee Baye Ndiaye moo woote Alburax event indi ay combat yoo xamante ne nii bu ci nekk rek ma doon na journée boppam ñi ngi xaarandi Tapha Tine ak Eumeu Sène ak yeneen mbëri qualifié numéro 2 Thiatou Daouda Fall mu war a nekk journée boo xamante ne nii bu kar ku wul woon làmb tey di nga màndi parce que combat bu ci nekk rek journée boppam la combat bu ci nekk grand combat la buñ ñu ko indilee tey may ñu ko yaakaar naa ni amuñu lu dul satisfaction ak mbégte ci bisu tey tey yaakaar naa ni ku ci nekk boo ñibbee sut bi xam nga lan lay doon tey. waaw ban combat moo gën a neex werante bi ci loolu la nar a nekk tey werante bi ci loolu la nar a nekk tey kon yaakaar naa tey képp kuy dund lamb rek incha allahu am nañu yaakaar ne tey sa xol dina sedd ci bés bi waaye aussi gis nañ fi aussi côté animation tey côté yëngal parce que ku ne xam na ne tey Eumeu Sène Mor Ngom moo ko tuusal borom kumbal mën a tëgg lool lool lool am feeb tey bëri tey galañ bëri tey ay morceau bëri tey ay son yu bëri yu gars yi di tëgg tey ci lamb tey moom Mor Ngom moo ko créé kooku moo war a tuusal ki nga xamante ni tey moo di la ndaanaan li muy def su fekkoon ne dafa ñëw andi turu baayam waaye yaakaar naa tey lamb bu jot chaque dimanche ñu gis ne Momo Ngom dañ ko fi andi ngir muy bëggal amateur yi nga xamante ni ñoom ñoo dagg seen i billet di seetaan si lamb waaye aussi Paalo dëgg Fatick nekk xale moom aussi mën li muy def yàlla may ko ci don mu bëgg ko respecté ko tey aussi gis nañ ko fi mu war a ñëw tuus dama xamul na exact li ndax moo war a tuusal ama se euh, tafatin am déet parce que tafatin baabu xëy moo ko daan tuusal tamit waaye gisaguma ko waaye ak lu mën a xew daal am nañ yaakaar ne daal Omar bés bi tey côté ambiance moom du manqué laa taw la xabaar yi kese laa taw te moom yàlla daal am na jël muy rëy ya na tey te dal waaw te bañ a xew xew xew salte yooyu noonu na tey dal jàmm bañ a yëkkati loxoom fexe ba jàpp bu jàppee soo ko dóor waaw ba pare ñëw ñu kay rek noonu la demee nag jël sa waay jël sa waay noonu la demee nag paalu tafaati rek nii paalu bool bool noonu la demee nag xam nga nii nii champion la mais day xaar rek day saagaane day saagaane su xamul garabu saagaane dama laaj bool bool wala kajoor kajoor yi danga boo daqee kër yeeg saagaane day xaar de am day xaar xaalu rek jabay rek lay topp nii ñooy leen ñooy leen moo defal lépp loo xam ne incha allah ñooy leen nii si raay rek ca kaw pigil rek bàcc rek dégg nga bés bi est-ce que c'était évident tey mu mel nii waaw xam nga lamb moom boo ko miinee euh, day yomb pour nga def lu mel nii. Hmm. parce que ne boo ko xamee soo ko miinee rek xaw nañ ko miin tuuti na parce que nañ ci. loolu moo tax événement daf ñuy yomb dañ koy xam niñ koy organiser xam niñ koy defee loolu moo waral tey journée bi ni mu mel nii nga gis ko mu taaroo nii daal. journée bi taaroo na macha allah organisation bi jaar na yoon gis nañ aussi ay dispositifs sécuritaires yoo xamante ni rek dafa mel ni bokk na ci li ci li ci li a gën a gën a gën a renforcer li nga xamante ni sécurité bi waaye aussi li gën a bés bi parce que gis nañ tey ñu def ñaari barrière parce que gis nañ dimanche passé xam doomu bawol bi yegsi na doomu bawol bu dugg si na si biir arène bi am na Moustapha yegsi na Tapha Tine dugg si na de magu wuli yegsi sama mag ñëw na sama mag xarit eh, ñëw na. Baye Fall ngoogu. sama mag ñëw na sama xarit bi ñëw na. Tapha Tine dugg si na. le grand champion du pays le futur roi des arènes. Tapha Tine. Tapha ngoogu. nit ku baax. le CA du Baol na. Tapha Tine eh, de. ànd ak Ngel Jon. ànd ak Mbaye Ndewaan. ànd ak Mawla Oma. ay ak le 100 pour gis nga eh, Ablaye Ndiaye ngi noonu borom Zawal kon xam naa ne góor gi Senghor bu Zawal warul sori dafa tin daw na eh gis naa fi Babou Sarr ndaamal daalu borom Diofior dafa yaramam daa a tàngare bu kër jaa ngi noonu dafa tin le sa sa Bawol yaramam teel na tàngare dafa tin cosaan la andi gis naa fi waa Bawol yëpp nee naa la tey combat bii du mën a yomb dafa tin bu mu fi ko neex est-ce que dafa ñëw Bombardier am blessure combat bi mu ñëwul ante mu jooy jooy yu métti tey nag mu war a laale ak ki nga xamante ne moo di Eumeu Sène nekk un grand champion nekk champion daf def lu ne ci làmb Sénégal yëpp ne ko Eumeu Sène bii boo bëggee jàmm ñëwal jàpp bëree ak Tapha Tine waaye bul si jéem a xeex mukk mukk mukk Tapha Tine ay mbokkam ne ko na wala ñuy analyser ne ko boo ñëwee fexeel xeex Tapha Tine dugg si na si biir a franchi le à 17h29 Tapha Tine le bien a vu Gorgui Senghor on peut dire qu'il n'est pas loin on a on l'a pas encore vu mais on a vu Ablaye Ndiaye Sowal on a vu Jaysen de lutte on a vu Molo on a de lutte on a vu Babou Ndamal Darou qui nous vient de Diofior bàyyi na leen fare on peut dire que Tapha Tine bien accompagné Nguel bien derrière son lieutenant Tapha Tine yegsi na yaram ba tàng na ngay xiiru mu ngay yëg lu bëree bëri moom Tapha Tine waaye nee naa leen tey combat bi du mën a yomb digganteem ak Eumeu Sène la kon nee la Tapha tey ñëw na ñëw ak doon ñëw bien accompagné bien sûr. Boucar Tapha Tine Tapha Tine dugg seen bi rëb na. rëb na yëngatu na l'entrée mouvementée l'entrée mystique de Tapha Tine tey lamb. bi bu newoon suñu àngalu kër. waaw fa laa dem toog pour seetaanaat lamb ji bi ñu ko tegee ama seen a ngi noonu père dugg si na waaw mu ngi dugg si noonu de dugg si na dugg ñoom Pam Ngom a ngi noonu waaw ànd ak ñoom Pam Pam Ngom ñoom Pam Ngom waaw bu dee xeex moo koy ubbi te bu ngeen jàppantee doole ba du feeñ technique c'est la dafa technique dafa technique day balee xel ama seen il est très gis nga ama moo tax moom Modou Lo seen baabam bi ñu ñëwee bëre da ngaa gis bëre ba doyal mhm. parce que c'est un très grand technicien Eumeu mm-hmm. Sène ak Modou Lo est-ce que daa ma ne Balla Gaye 2 mën na bëre trop. waaw mais du technicien. ah bon oui. technicien mooy kuy riir ci bëre boo ñaar technicien la ci bëre. dëgg xool li muy def. xam nga xam nga technicien mooy boo ñaar bi ko Balla Gaye songee. Mm-hmm. mu def deux pas fexe ba plaqué ko loolu mooy technique. technique mooy. comme ni Modou Lo def en Baldé ñu wëral la ma nga war ko noboo maanaam technique. nit dalay jëkku ba bëgg laa daan. Hmm, nga def technique daan ko. ba génn si. kooku Ama Baldé moom mu ngi koy def Modou Lo da koy def Ameth Sène aussi da koy def. ak lu mën a xew Boucar balaa 18h a jot. waaw. ku ci nekk li nga doon xasan xas xas la ak sa morom. yaakaar naa ni li ciy des du doon lu bëri. alaaji Palla làmb ji ma liir ni tey. waaw diggante Tapha Tine ak seen Sène. waaw combat bu doy waar a tey. non combat la parce que gis naa Ameth Sène dugg si na. gis nga tamit moom it gis nga sérénité bi muy bi muy wane. mu ngi noonu. day wane day wane sérénité. moo ngi noonu waaw gis nga ko. moo ngi yëngal bopp rek. mu ngi noonu maa ngi nuyu téléspectateurs yi ñuy seetaan ci waxtu wi waaye nag di nuyu waa diaspora bi yëpp di nuyu waa seen affiche point com di nuyu waa Lutte TV di wax rek ni euh, ñi ngi fii ci arène nationale ci bis boo xamante ni bis bu rëy la. dox ci diggante ki nga xamante ni moom mooy Eumeu seen ak ki nga xamante ni moom mooy euh, Tapha Tine ah mu nekk làmb joo xamante ni bokk na ci combat yi gën a rëy ci saison bii nga xamante ni ci la ñu nekk loolu moo tax nag tey ñu teew fi war a def li nga xamante ni moom mooy euh, waxtaan ci wàllu làmb waaye ñi nga xamante ni ñooy waa diaspora bi perpévu bi ñu defal leen ko ñoom i tamit ñu am mbégte dara bañ leen a réer ci làmb ji lépp loo xamante ni xew-xew la rek ñu bokk ak ñoom ndax ku nekk xam ne diaspora bi ni ñu mel ci làmb fopp foo dem ci àdduna bi rek ñi ngi seetaan wàllu làmb surtout tey dimanche liggéeyiwuñu kon laaj naa leen ko sànq dugg si Tapha Tine nu ngeen ko gisee mais Eumeu Sène aussi dugg si na ngeen koy gis noonu moom aussi nan ngeen ko gisee bi mu dugg see lan ngeen jàngat ci moom mais ñoom ñaan ñëpp indi nañu confiance tey ku ci nekk ku ci nekk boo ko xoolee rek foog na ne moom mun moromam Tapha Tine actuellement kanamam loolu lay wane kii maa ko man dama koy daan Eumeu Sène dugg ci nga gis ko mi ngi ree ak sourire bi mbër moo gis mu dugg ci ak confiance bi mu àndal dangay ngay ne kii am na lu muy ndaale tey moo tax gis na làmb tey jii wax naa ko tout à l'heure naa la luy am des fois day feeñ ci premier combat bi moo ngi nii ma seen mu ngi noonu. Uh-huh. aywa ñu dem. mais gis nga li am ci premier combat bii ñu génn. waaw nañ bàyyi xel loolu ci làmb ji di ñëw. ah combat la boo xam ni mën nañ ci waxtaan lu bëree bëree bari parce que ñi ko seq kenn ku ci nekk am na lu la yàlla defal ci expérience ci wàllu làmb. dafa mel ni mën a neex la. Uh-huh. ndax ñoom ñaar ñëpp dañu sportifié ba pare fair play. Uh-huh. boole ci discipline. ndeysaan xool ko ñoom ñaar. xanaa kay. Ah, seetaankat yeeg ñi leen topp. mais ñoom ñaar ñoom jël policier yu bari. déedéet. ndax seen yar. dëgg la loolu am na. waaw ah, jaru loolu am na. voilà moom Eumeu mu ngi noonu. waaw Palla ndeysaan gis nañ fi Balla Gaye waaw xam nga moom nag daa bokk ci làmb dëgg la dafa bokk ci làmb làmb ko ko bëgg moom Balla Gaye génération bu nekk day am ku mel noonu dëgg la waaw tey gis na bi mu duggee si làmb ji amateur yëpp jóg nañ ko saafanteeg moom dëgg li ma li si gis daal mooy daa bokk ci làmb ah, dafa bokk ci làmb làmb na mu ko voilà mu ngoog parce que Balla Gaye euh, bu dul Covid bi mosul toog 10 mois yu amul combat mais dafa amoon blessure yàlla da koy fésal. Tapha Tine bi mu dugg si ci bi da doon jooy. da doon jooy. waaw. waaw maanaam ci émotion bi la rek. émotion la envie de vaincre la rek. waaw ah, émotion day def noonu. waaw nga jékki-jékki xool sa ginnaaw xool li la topp. xool xool stade bi émotion bi jàpp la nga jooy waaye je pense que ne loolu mi ngi si ginnaawam parce que gis nañ ko après jékki-jékki na jaayu sànni na ay coups sukkur la jógaat maa ngi koy xool ni ci jumukaay bi mais Tapha daal tey moom it xam naa li ma gis jekk na de. waaye tey waaw xam nga. bu ñuy tëkkale ñaar am na ku mën. waaw te bul fàtte ni ñoom ñaar seen tëkkale dafa yàgg. Hmm. bi ñu waree bëre yàgg na. am na ay jamono ñu dox fi seen combat doxaat ko fi mais mujjul taxaw. Mhm. mais bi yoon dañ ni il faut ñoom ñaar ñu. tàggali ko uh-huh. balaa Eumeu Sène di bàyyi bëre wala Tapha Tine di bàyyi bëre ñoom ñaar war nañu daje. Uh-huh. ndax dañoo am lu bëri lu ñu nuróole. dëgg uh-huh. ci diggante seen diggante ñi adversaires yi ñu dajeel. bari na adversaire yu Tapha Tine dajeel Eumeu Sène daje na ak ñoom. waaw loolu nag su amee foog ñu boole leen. Mm-hmm. waaw moo tax ñu boole leen Eumeu Sène waaj waajin woo xam ni. Mm-hmm. gëj na ko waaje combat. Tapha tamit indi état de forme boo xam ñëpp dañ jàpp ni kii entraîné na. Uh-huh. kon ñoom ñaar bu leen boolee mën nañ ni wax ni diw mooy daan du yomb. dëgg la. mais techniquement mën nga leen di rek ci ku nekk say defin say jëfin waaw sa comportement waaye teg ci duut baaraam ni diw mi mooy daan diw uh-huh. du du yomb uh-huh. moo tax ñu tuddee ko combat jànq doonte ay mag lañu parce que kenn ki bëri na vingt cinq ans kenn ki bëri na dix neuf ans. kon ñooñu jàpp naa ni dans deux ans trois ans ci kanam bu ñuy bàyyi dañuy jiitle. dañuy jiitle. dañuy ay mag lañ dëgg la waaye per ñii ba léegi ni ma leen gisee dese nañ seen doole. mais looloo tax ñu boole leen. waaw dese ba tey. waaw man lii ma gis nii de vie bi ñu am. waaw ak état de forme boo xamante ni. Uh-huh. boo leen joxee xale xale bi du leen mën a yëngal. waaw ah. moo tax ñu jël leen boole leen. dëgg la mu nekk ñu ne nag kon combat jànq la. Uh-huh. gis nga fi ay jamono fi Mor Fadam tolloon ak ñoom tubaabu joor. Uh-huh. nga xam ne heure boo leen boolee bu ñu simmee koo loxo dem gémmi. gémmi fa la tafaatin toll ak. amat seen dëgg la en tout la boo xamante ni Sénégal yëpp mi ngi koy bàyyi. combat la boo xamante ni Sénégal yëpp ñu ngi koy bàyyi xel balaa ñëw ciblé ku ci nekk ci ñaar dinaa ñëw ak moom. ci Tapha Tine lan la war a bëre ak Eumeu Sène ak moom waa jàmbaar loolu moom yaakaar naa ni wax bu yàqu la parce ñi ma jàkkaarloo ñoo dàq xeex ñoo dàq bëre te dama am na fu ma jaar ak ñoom du dëgg man sa benn combat setul sama combat Gris Bordeaux rek kenn ko fàtte Bombardier kenn gën ko dis loxo encaissé naa foofu mbër moo bëre xeex naa ak yow fii mbër ñeex ñoo dàq xeex ci làmb yi xeex naa ak ñoom du dëgg man nag mu yokk poids ak mu wàññi poids loolu man lijjanti wu concerné wu ma quoi sérieusement parlé man Tapha Tine aw ma lenn lu may sóor ci moom wala lu ma lijjanti ci moom amul lenn lu may sóor ci moom aw ma calcul ci moom. nañ bëre deux jours ma ak moom combat moom pare nañ pour bëre ak moom ñaari fan. waaw loolu moom bu ci dégg naa ko mu naan ay tas ngemb ay laaj ndox loolu na ci noppaliku waaw na ci xelam dal bu baax. Balla waaw par ma ne su def tey bu positif la ñu def xëy na lamb moo ku si nekk da nga jaar si yoon waaw mais buñ jaaroon noon ku nekk bàyyi bëri te bëriwuñu waaw loolu euh, su boobaa du doon du doon lu logique mooy tuwante lay doon dëgg la waay ragalante lay doon moo tax lamb dem ba boole leen tey waaw moo tax tey ku ci am ndam ah di nga am woy bu rëy et puis di nga di waat ci lamb dina la bu sori waaw di nga amaat di nga di ay kasa yu baax ak oh. combat yu baax waaw ku ci nekk mu nga taxaw ñu koy waaj a présenté ñu ngi nuy waa diaspora bi Père di am contentement trop toog fii parce que mun naa wax ne Lamine lamb day sajj le 12 novembre hmm? lamb day sajj le 12 novembre hmm. produit bi Baye Ndiaye am noo gisuma ku ko am fii ren si lamb ji lii c'est un combat inédit combat jànq dëgg dëgg mooy Tapha Tine Eumeu Sène attention ñi nga xam ne dañoo bëgg pronostic attention ñi nga xam ne tey dañu bëgg pariye nañu moytu nañu def ndànk nañu tey si combat bi nañu tey si combat bi un combat explosif lañu am nii. xool fi muy teel a daanu rek balaa ko ci yeneen coono fekk. yeneen yeneen coono rek. coono la. coono balaa ci yeneen coono di ñëw quoi. mais ëmb moom nee na moom bu ngeen moo tax ma ne la bu a nee na bu yaram yu laalante moo tax bu ñu nee runkum daje damaa bëgg mu teel xool fi muy daanu ndax am nay xeer pour yaram bi bañ a xoosoo ak ñoom seen quoi. mais kon yow li nga jàpp mooy su ngeen laa loolu laa gëm te loolu laay pare dem daan ko loolu dong moo tax a jóg leen taxu maa jóg dem daan ko vite fait. mais man gëmul maa gën a gëm ne dama koy daan incha allahu rabbi amul daal gëm ne da lay daal. man biir naa ne heure bu ma yeewu dem train yi du ko train kon maa ko gën a bëgg bu ko bëggee mille man bëgg naa ko dix mille fois. dix mille fois. exact. da ngaa jàpp yaa maa liggéey li may liggéey laa gëm moom li muy liggéey la gëm moom na gëm liggéey man ma gëm suma liggéey. loolu la man sama liggéey laa gëm te gëm naa ne bu ma ko appelé ki kawam li ma liggéey xejul si kawam ama seen. ni ko gisee nan nga bu mag ku ma. respect physiquement nice. moom laa lay wax ma ne poids bi gis naa ko na ko gën a yokk. non ëmb day mi ngi wàññi. non na ko yokk baax na c'est bon. non ëmb moom mi ngi wàññi. yow poids bu ñu yokk ak bu ñu wàññi yow xamoo. si bañ gën a yokk gis naa ko na gën na gën a yokk poids bi rek. lan moo tax nga bëgg. I like that bëgg naa lool na yokk. ñoom Fatim aussi tamit Tafatin daax xeex bëri naa ak Tafatin waaye li ma mën a xamal daal lu ñu foog ci xeex bi wala ci bëri bi daal. boo gisee tey d'accord kii dina jël xeex bi imposé ko ci li ñu waa Tafatin ci li ñu yaakaar kii Eumeu Sène dina indi bëri ci li ñu yaakaar ñenn ñi bokk ci amateurs yi wala supporters yi mais làmb ji kaa ma la dina am xeex dina am xeex bi dina am bëri dina am sax laa léegi da nga jël sa kaw. waaw oh, loolu maa la wax. arrêt de médecin du ci. mun na am mun na ci am mun na ci bañ a am mais daal li ma jàpp man ñoom ñaar di nga gis dóorante ci kaw am njaay joxul ci benn saa di nga ko ci si laam ci. yaa nga xeex. waaw mënul ñàkk. dóor mu wàcc am ci. moom waaw lu nekk mun na ci am de. mais xeex moom du maa la wax li moom incha allah dina ci am ñaari borom doole ñooy bëri doole ci la bokk waaw mooy mooy priorité sax na mooy ci combat bu mu mënti doon doole mooy priorité. parce que waaw mooy li ma waxoon ci sa rek moom laa lay confirmer nii mais Eumeu nekk na mbër boo xamante ni dollar la ci biir géew lay lay leere ci biir géew lay wone boppam ndax moom xam na ni ceddo jarul jaay ci àll bi ci biir géew la ñuy wonee ceddo te mbër da ngay amuk ceddo mais ceddo gi doo ko jaay ci biti ndax bis boo ko jaayee ci biti boo ñëwee doo am loo jaay mais bis boo ko jaayee ci biti boo boo noppee ci biti jaay ceddo gi ci biir géew saa yoo doxee ñu ne te nekk na nit koo xamante ni tamit nag saa yu Pikine amee jafe-jafe bu toll nii Eumeu Sène mooy génn xàcc dóor wala mu taf nii hop hop mooy mooy commissaire bi mooy commandant saa bu jafe-jafe amee rek. merci Eumeu Sène nekk na pikin koo xamante ni commandant Pikine la ah. hop hop te xol bi noonu la rafete ama ah. ama moo fi taxaw nii chaque àjjuma damay woor kuy woor ku ne xam nga ne borom xol bu rafet la parce que mënoo koo bañ waaw parce que ndaama la lii moo gudd waxoon naa la ko fi mais lii daa gàtt mais bis boo xoolee taay bi da nga lay nax ëmb na laa jàpp te doo jàpp saa yoo bëggee jàpp bu rasoo da ngay ñàkk parce que wet gee gudd moo tax bis bu la bëttee da ngay yaakaar ne jeex na fekk jeexul ëmb lu mu gën a jege suuf di gën a bëri te ëmb professionnel la ëmb mooy fëgg fii nga deene fii la mu poli falan fële hop hop hop hop dëgg neexul le géant léegi ñu ngi laaj kan moo ko mën a yëngal ëmb moo jox leen ma ma daan ko jël bu leer. waaw mais mais xam nga bëre dóor tey mun nga sànni benn arrêt xam nga mu dal waa ji arrêt de médecin gis nañ ko bu tay xam nga lam ja jaare fa yem. contre sama contre Bombardier bi bëggoon naa ku ma gis suur boobu xam ne tey dama ñëwoon pour bëre du sama loxo fu mu dale Bombardier parce que maa dem jàppi ko moo ñëw di mu song ma teru ko jàpp di ko yóbbu ci saako yi xam nga ma koy nuyu sànq rek ñu ngi déggante ma koy ñaanal ci MMA bi quoi wax dëgg yàlla. yal na ko yàlla may ndam quoi. moo tax ñu ngi leen di ndokkeel bu baax. di nuyu di nuyu ñoom ñoom ñoom Ali Diop New York. waaw ñu ngi koy nuyu di nuyu ñëpp di leen ñaanal jàmm ak xéwal ak wërsëg. ak xaalis ñoom Boga. ñoom Moundiaye directeur. ñoom Abdoulaye Diop ñoom Malal. ñoom Thierno Seck waa groupe Lutte TV duñ leen fàtte. mais maa ngi nuyu Beuz. waaw di nuyu Amath Niang ca France. groupe Lutte TV ñu ngi di nuyu. waaw. di nuyu ñoom Badou Diaye Sarr om so bu Karga. ñoom Badou Seck Serigne Diour ñëpp. Serigne Diour kenn du ko fàtte ñoom Baye Diour Baye. Arona Camara Mor Diakhaté. ñoom Mbagnick Faye ñoom Mbagnick waaw juróomi at gisuma ko muy commentaire. waaye waaye Jéelaani Pouy. Jéelaani Pouy ñu bàyyi xelu balak perkee kopet bi lay bañ na xeex doo ko soog ragal naa mos ragal naa mos seen day dem de bu leen fàtte dimanche si deux ah, ragal naa mos seen day de guerre numéro deux waaw bu leen fàtte le 24 wala le 25 ah. ah, eh, waaw Aline Sey ak ki laaw laaw co e perkit perkit bu la doole eh, perkit day eh, yàq sur na ko mu daal ama seen ama seen tabatin ama seen laa ilaha illallah am na lu xew am na lu xew am na lu xew waaye nañ yónni yàgg dañuy seeti ba arrêté nañu ko. Ardo Ardo. Ardo Ardo. am na seen yóbbu na Tapha Tine. am na seen yóbbu na Tapha Tine Ardo. yóbbu na ko am na seen yóbbu na Tapha Tine Ardo. ana bawal bawal yi. Ah, li kenn mësu ko gis. ana waa Casamance. li kenn mësu ko gis. ana waa Medina Kër Ndiaye Lo. li kenn mësu ko gis. arbitre bàyyi ñu bëre. am na seen ñu ngi ñu doxee combat bi gàtt gàtt kontaan na ci ñaari weer. arbitre da leen bàyyi ñu bëre. Boy Ginaaw moom Doudou Sané mbëkkante nañ mbëkkante yu métti. Tapha Tine boo amee poids lourd bu mel ni Doudou Sané. waaw yaakaar naa ne li nga bëgg mën nga ko am ci Tapha Tine. Tapha Tine dafa téye boppam fi ñu toll nii. waaye Tapha Tine dafa. ah ah ah. di dóor ay mbir ñii xeex ah, ñii xeex ah, ñii xeex. Ah, wër mu daanu Maadou Thiam. turu xal na ko. mu rëb Eumeu Sène. Tapha Tine. Tapha Tine jekku na ko. jekku na ko rek daan na ko. Tapha Tine daan na Eumeu Sène. Tapha Tine daan na Eumeu Sène. Tapha Tine daan na Eumeu Sène. déedéet. daan na ko. dafa tin daan na ma seen. dafa na lii moom jarul vaar jarul vaar. Ah. ah lu xew. non jarul vaar. ah. loxoom. waaw daan na ko loolu kay jarul woon dem vaar. Ah, jox na ko victoire dafa tin daan na ma seen. toog na sukk na ca géew ba ma seen sukk na ñoom ñëpp bëre nañ. Eumeu Sène sukk na benn oto bëtu. mais Eumeu Sène il n'est pas démérité. il n'est ndax kenn foogul woon li mu def tey. dëgg la waaw. kenn sóoru ko woon. Tapha Tine daan na Eumeu waaw. le père Ba la le père Xarim Samb waxoon. waaw. Eumeu Sène jël na duma yi ba Tapha Tine bëre bi. xoolal xoolal. dañoo ñoom dañoo rayante moom dañoo xeexee bu méttee métti. dañoo xeex waaw papa papa. dama bi jël mais dafa waaye dafa sori. dafa sori mu mbaar ko. mbaar ko. jàmbaar daa diis loolu jarta laaj bu ma daanee amat seen damay dem su ma yoon te loolu laay ñaan yàlla liggéey lu ma ko daane bu bés ba insha allahu rabbi bëri combat royal bien sûr pourquoi pas gar dànkaloo mooy lan comme nee na ñu bërekat la bu ñu dànkaloo lam ji waay. non ndànkal gar tombe dafa am ñaari gar moo am. gar tombe mooy taxaw ngeen di dóorante. gar ndànkaloo mooy jàppante bi. comme moom nag nee nañu bërekat la. ndànkaloo bi laa koy indi lam di jee. maa la wax lool. takk ci rip. ya that clear dafa leer. dafa war a diis. daan na ko daan daf ko gën a diis loolu moo ca gën a moo ca feeñ gën a diis moo ci feeñ loolu moo feeñ ci bi sax am na song bi sax baax na mais waaj dafa diis waaw te en général bu toll boo ko songee doo taxaw da ngay song rek wañ ah. da ngay song daal di wañ mais mais bu diibee rek bu da wéeru da ngay ñàkk waaw comme ni nga ko waxee Baye Ndiaye moo woote Albourakh event indi ay combat yoo xamante ne nii bu ci nekk rek ma doon na journée boppam ñi ngi xaarandi Tapha Tine ak Eumeu ak yeneen mbëri Coly Faye numéro 2 Thiatou Daouda Fall mu war a nekk journée boo xamante ne nii bu kar ku màndiwul woon làmb di nga màndi parce que bu ci nekk rek journée boppam la combat bu ci nekk grand combat la buñ ñu ko indilee tey may ñu ko yaakaar naa ni amuñu lu dul ak mbégte ci bisu tey tey yaakaar naa ni ku ci nekk boo ñibbee sut bi xam nga lan lay doon tey waaw ban combat moo gën a neex werante bi ci lool la nar a nekk werante bi ci loolu la nar nekk tey kon yaakaar na tey képp kuy dund lamb rek incha allahu rabi am nañu yaakaar na tey sa xol dina sedd ci bés bi waaye aussi gis nañ fi aussi côté animation ah, ah, ah! combat. Ah. ma daal di gis jëlee yoo xam ne beneen beneen ak si biir. waaw li koy daal moo nekk ci man rek li ma gëm mooy liggéey pare bor si sifflé nga xool li bañ nga def. mën bëree koy daan wala am doolee koy daan. fii da lay complété parce que nag man nit moom booy bëri yembar sax wala ngay bëri koo xamante la mën wala ngay bëri koo xam yaa ko doole wala moo doole pare ci lépp. attaqué du ma du ma ko sax xalaat ba si bëree si xeex du ma sax bàyyi sama xel si moom. léeg ren tegalugu ma ko dara lu tar. at lay xam ni man ak bokkuñu te yàlla du ñu mus a boole. Babacar. mu doon tënk lu mu lay fàttali ci làmb. waa lii nag li ma mën a fàttali ci làmb xaw na bëri. mais nag genre combat yi xaw na raar combat boo xam ne ñaari adversaire yi maanaam dañoo tolloo lu bare bare bare bari moom c'est très na nga gis ko ba pare di ay xale. di am mbégte bu baax a baax ci organisation bi di am mbégte tamit ci li nga xamante ne tey moom la amateur yi def tey teel a ñëw dagg seen ay ticket 11 heures ubbi nañ stade bi vraiment tey stade bi mel nii te mbëri duggaguñu ñu ci am mbégte di ci am contentement bu baax di ñaanal yàlla ñaari mbëri yàlla dafa sottiree jàpp. waa kër waa waa waa. waa kër rëg rëg. rëg mooy dugg de. rëg rëg mooy dugg si noonu. rëg rëg moo dugg si. mu ngi dëppoo benn laytan. woon la defe eh, lamb yi fi jënd la lamb woon na victoire rek rek woon na Sa Thiès eh, victoire waaw waaw woon victoire Sa Thiès ko rek rek Père Max ne na ñaari ndamay dugg mais benn ay génn wallaay ndeysaan te loolooy li am jamayke xam nga Babacar loolu Bukar Ndour xam nga lamb waaw dafa am ay réalité waaw Babacar lamb sarax rek da koy gañe sarax sarax day gañe lamb sarax rek day gañe lamb wax nga dëgg Babacar. waaw Reug Reug génne confiance bu mu la bett ci lamb. waaw Babacar ndax li dal lamb euh, mbëri magi ci lamb da koo dalagul. dëggagul mu ñëw ci lamb. Mm-hmm. chaque jour confiance total lay am moog ay supporteurs ak ñi koy ñaanal ak ñi muy àndal. Mm-hmm. waaye Babacar bisu tay bii. waaw bis ci biir bés. wax naa la ko sànq. Mm-hmm. Reug Reug ci carrière waaw mu ngi door am mbër mu mel ni Sa mu ngi door am mbër mu mel ni Sa Thiès. loolu moom téere gisee mooy sama mbër mi pare na waaw dangin gi moom nga na ne saal bi la waaye gaynde gi mu ngi saal bi muy Sathiès te bu nga ko jàpp bu soobee ko wan na ko carrément saal bi jarul que champion champion doomi champion taxul nga ne da ngay rikki non non dafa liggéey ba yegg si fii nii bu ñu nee moo ko indi fu mu toll fii nii dafa rampe ba yegg si fii parce que am na doomu bëri yoo xam ne ñu bëri kenn xamul leen xam nga ñu ngi ñaan yàlla mu jàpp ko dumba ko daan ko bu soobee yàlla loolu leen bëgg non ñun bu gaaw baax bu yéex a baax parce que Saliou a la ku ko xam xam ne kii am na physique am na doole man na bëre te du yàq làmb ñu ñaan yàlla yàlla ma ñu ndam loolu la ñuy ñaan Saliou pare na. Sa Thiès Lamine. ay dugg si. ay dugg si noonu ay dugg am na solo. Babacar gis naa fois dañ leen naan wëral kii bi sa côté ndeyjoor wër ko ñeenti yoon door a ñëw si bu nga ñëwee si biir na gas biir kii bi def ay débat déeb gars yi tibb suuf nekk ñaan ñaan ñaan liñ la yéene ñaanal la ndam ñëpp boole jox la nga boole yëpp yow tamit ñaanaat gas ba mu xóot nga suul. loolu yëpp Babacar ay tegtal la boo dugg tam talal loxo si biir géew xam ne ay jat xam ne ay ñaan yoo def yoo xamante ni day aw yow Babacar pour yàlla suturaal la boo am gàcce loolu yëpp yaakaar naa ne lu baaxoo la ak lamb par ay baaxi lamb la ay saako gis ko fi si ay butéel gis ko si ay siwo bu ñu xaaree ba grand ba ñu woo leen grand combat ñu bëgg ko jëfandikoo waxuma la tamit mi une heure waxuma mbir mi def waaye mu dem une heure daal di ko sottee ko ah. gis ci gàllaaj ci rëgg ci digg gis ko Sa Thiès bu ñu jeexal ko ci ñetti waxtu problème bu la problème bu la wax nga naa yaakaar ni jël bu mën na rëy waaye tamit arbitre bi koy arbitré waaw vigilant surtout na bàyyi xel bu baax ci li muy def bilaa yërëm naa arbitre li tax wax mooy ñaari mbër yi ni ñuy bëree moo tax ndax rëg-rëg lu mu ba dajale ko nam ko bëgg a def la koy def Sa Thiès nag daa nekk koo xam ne dajale ko dafa xaw a jafe ndax du taxaw xefa xippi lay bëri souplesse baa bëri boo laalee fi nga yaakaar ne yéen nga ca suuf fekk mën naa jug sa bàyyi la maanaam mbër la moo xam ne mu nëkkaroo contrôlé la rëg-rëg nag wër nañ ko ndomba ci mbapat mu daan lu ne bëri na ko ci mbapat ndax dama ko topp ci mbapat man ak Lamine topp ko fu baree baree bëri mu wane boppam ci lu baree baree bëri dinaa dem ba reer saaga di doog xam ne daan naa bu at bi mu dal sama kaw maa ngi koy xaar mais tamit no sóor man tamit bu ma dalee si kaw. waaw ndox kay jar tuur tuur yow it commissaire ne jaaxal na ma ñëw ci signature yi daanaka di soldat lu weex rek jaratu ko Salif Sakho moom moo saa Thiès ngi xanaa xam nga ko. xam naa ko bu ñaata combat nga mas seetaan. Euh, benn benn. combat ak nekku Reug yaa ngi koy fàttali. non non Reug Reug laa seet combat moom Reug Reug. combat ak Boy Ngaye seetaan nga. déedéet wallaahi. combat ak Nees. mosuma seetaan nee naa combat moom Reug laa seetaan kese kese kese kese ci ay combat. Nees seetaanoo. non non. moog Boy Niang. bëri naa Boy kii. seetaanu ma ko. xamoon nga ni bëri na maa ko. dégg naa ko waaw mais moom kii daan. moo daanu non euh, yaakaar booña waaw Lamine wallaay xaw ma. waaw loolu après nga dugg YouTube seetaan ko Pape yaa ngi fàttaliku kii ak nees. kii ak nees waaw seetaanoon naa ko nag. ku daan. Sa Thiès moo Sa Thiès moo daanoon. Sa Thiès ku daan. Sa Thiès moo daanoon. Sa Thiès Boy Ngaay ku daan. Boy Ngaay laa wax. Ngaay Sa Thiès ko daanoon. Boy Ngaay. Boy non non bu ñoom ñaar mosuñu bëre. Sa Thiès Boy Ngaay mosuñu bëre. non moog Boy ñaa laa fekkee. Sa Thiès ak Bombardier Junior seetaan nga ko. Sa Thiès ak. Bombardier Junior. Bombardier Junior bu boobu moom ko nag. wulli yaa ngi koy fàttaliku. waaw maa ngi maa ngi fàttaliku ci dóor ku dóoroon dóor yu métti. moo ko dóor dóor yu métti. moo dóoroon saa yaay ba mu kaaw wulli. ku daan. xanaa Sa Thiès a daanoon. Sa Thiès tonnerre ku daan. Sa Thiès a daanoon. Sa Thiès ndem si ko yàlla yërëm seetaan ko. Sa a daanoon tamit. Sa ku daanoon Sa Thiès Malick Niang ko daan. Sa Thiès ak Malick Niang. lii du dara lii dara. boobu Malick Niang moo ko daanoon. Malick Niang daan Sa Thiès. waaw Sa Thiès kan ak ko daan. ak Boy Niang. kese waaw ñoom ñaar rek laa jàpp comme ñoom comme ñu ko daan de. Hmm. waaw. Sa Thiès Aline Seydo seetaan nga. non ñoom ñaar mënuñu bëri ndax waa Géejawaay nañ. waa Géejawaay duñu bëri. ñoom duñu bëri ci seen biir ñoom. ah kay. non Sa Kajoor bëri na ak euh, kii. Sa Kajoor yaakaar naa bëri na ak Alioune Seye. Sa Thiès mais namu naa la gayen dom day dom day namu naa la. nañ maa sàcc moo tax. nañ sàcc yow xanaa football ngay wax. mais dafa mel ni ngay seetaan football doo ko seetaan sax làmb. waaw football moo ma dàqal. sport ngay dund. ah. man sport ngay dund sport. waaw sport laay dund. mais namu naa la yaa ngi ci jàmm. maa ngi sant yàlla ba alhamdulilah. dinaa la gis de. waaw maa ngi fi de maa ngi sant moom. ginnaaw yaa ngi sërxu rek di di waajal. waaw loolu moom moo war moom dëgg yàlla. yaa ngi ci ruq rek di waajal. waaw ñu ci wàccaay ah. boo ci doon am looy wax waa Géejawaay lan lay doon. ah ñoo ah, parce que li ñuy mbëbët nii yëfi Géejawaay la lu bokk la. waaw dëgg yàlla te gis nañ ñu ngi ci yëf yi xam naa ni bëgg nañ ko ñoo ma ko gën a bëgg waaye manta tam li ma war ak mooy liggéey. fexe ba yéene bi ñu am ci man ma ma rempli ko ci kattanu yàlla yàlla mooy may ndam nag waaye a ngi ñaan yàlla ma dam kon à tout à l'heure bu adversaire bi ñëw merci jaajëf jërëjëf jërëjëf waaw jërëjëf loolu am na solo am joxal Babacar mu téele Diagne dana ne Eumeu Sène fii lay jaaree ba dootu dugg géej waay. lii sama grand la li mu digg rek laay def. Salif Salif. <laughs> lii lu mu digg rek laay def. <laughs> waaw sama grand la. acca Papa Ndiaye. Cissé ngi noonu. waa Kewel. pare naa pare naa. si si damay damay damay damay combat. Ah. ma daal di gis jëlee yoo xam ne bu bokkul ma boole ko si beneen beneen omoñ ak si biir. waaw li koy daal moo nekk ci man rek li ma gëm mooy liggéey pare bor si sifflé nga xool li mu bañ nga def. mën bëree koy daan wala am doolee koy daan. fii da lay complété parce que nag man nit moom booy bëri yambar sax wala ngay bëri koo xamante ni moo hmm. wala yaa ko fu doole wala moo la ko pare ci lépp. saaka du ma du ma ko sax xalaat ba si bëree si xeex du ma sax bàyyi sama xel si moom. léeg ren tegalugu ma ko dara lu tar. at bi sifflé ci lay xam ni bokkuma ak man ak bokkuñu te yàlla du ñu mus a boole. Babacar. mu doon tàkkusaan gi lu mu lay fàttali ci làmb. waa lii nag li ma mën a fàttali ci làmb xaw na bëri mais nag genre combat yi xaw na raar combat boo xam ne ñaari adversaire yi maanaam dañoo tolloo ci lu bare bare bare bëri moom c'est très rare nga gis ko ba pare di ay xale. di am mbégte bu baax a baax ci organisation bi di am mbégte tamit ci li nga xamante ne tey moom la amateur yi def ñëw dagg seen ay ticket 11 heures ubbi nañ stade bi vraiment tey bi mel nii da mbëri duggaguñu ñu ci am mbégte di ci bu baax di ñaanal yàlla ñaari mbëri yàlla dafa leen jàmm. waa waa waa waa kër rëg rëg. rëg rëg mooy dugg si rëg rëg mooy dugg si noonu. rëg rëg moo dugg si mu ngi dëppoo benn laytan. Sa Thiès euh, victoire. waaw waaw. war na victoire Sa Thiès war na li am jamaïcain. xam nga Babacar loolu. Boucar Ndour. xam nga lamb. waaw dafa am ay réalité. waaw Babacar lamb sarax rek da gañe lamb. wax nga dëgg. Babacar. waaw Reug Reug génne confiance bu mu la bett ci lamb. waaw Babacar ndax li dal lamb euh, mbëri magi ci lamb da koo dalagul. dëggagul mu ñëw ci lamb. Mm-hmm. chaque jour confiance total lay am moog ay supporteurs am ak ñi koy ñaanal ak ñi muy àndal. Mm-hmm. waaye Babacar bisu tay bii. waaw bis ci biir bés. wax naa la ko sànq. Reug Reug ci carrière waaw mu ngi door a am mbër mu mel ni Sa mu ngi door am mbër mu mel ni Sa loolu moom téere sama mbër mi pare na waaw dangin gi moom xam nga xam na ne si àll bi la waaye gaynde gi mu ngi si àll bi muy Sa Thiès te bu ñu ko jàpp bu soobee yàlla fii danañ ko wan na ko carrément Saliou jarul xeeb parce que champion champion doomi champion taxul nga ne da ngay rikkiri non non dafa liggéey ba yegg si fii nii bu ñu nee Balla Gaye moo ko indi fu fii nii dafa rampi ba yegg si fii parce que am na doomu bëri yoo xam ne ñu bëri kenn xamul leen xam nga ñu ngi ñaan yàlla mu jàpp ko dumb ko daan ko bu soobee yàlla loolu leen bëgg non ñun bu gaaw baax na bu yéex a baax parce que Saliou athlète la ku ko xam xam ne kii am na physique am na doole mën na bëri te du yàq làmb te ñu ngi ñaan yàlla yàlla ma ñu ndam loolu la ñuy ñaan Saliou pare na Sa Sa Thiès ay dugg si noonu Sa Thiès ay dugg si am na solo côté ndeyjoor wër ko ñeenti yoon door a ñëw si biir bu nga ñëwee si biir na gas biir géew bi def ay débat déeb gars yi tibb suuf nekk ñaan ñaan ñaan liñ la yéene ñaanal la ndam ñëpp boole jox la nga boole yëpp yow tamit ñaanaat gas ba mu xóot nga suul loolu yëpp Babacar ay tegtal la boo dugg si tamit sa loxo si biir géew xam na ay cat xam na ay ñaan yoo def yoo xamante ni day aw yow Babacar pour yàlla suturaal la boo am gàcce loolu yëpp yaakaar naane lu baaxoo la ak lamb par ay baaxi lamb la ay saako gis nga ko si ay butéel gis nga ay siwo bu ñu xaaree ba grand ba ñu woo leen grand combat ñu bëgg ko jëfandikoo waxuma ne trente mille une heure waxuma mille mille waaye mu ne ba une heure daanaka sottee ko te ci gàll ma jigéen njaay seetaan si Tapha Tine ak Eumeu Sène face jëm nag ci programme bu am solo muy le 5 juin arène nationale diggante Eumeu Sène ak ki nga xam ne mooy Sa waaye am na ay combats spéciaux Pokola Baldé contre Liss Ndiago Tapha war ci bëre ak Mor Kankan ordinateur war ci daje ak Mbul combat préliminaire yi Papa Bari Bari war ci bëre ak kiriku Petit contre mbaytin Tine Diaw contre 10 000 problèmes Tafa Gueye numéro 2 contre Boussite Cheikh Niang war ci bëre moom tamit ak Djili Mbaye Boli war ci bëre ak am na beneen combat jino Djino voilà ren nag Albourakh Evans a mis les petits plats dans les grands. Albourakh Evans a mis les bouchées doubles. ndax bu ñu jógee ci programme bi nga xam ne moo di le 5 juin le 30 juin dañuy dàbbaliwaat diggante Gris Bordeaux ak Ama Baldé le juillet juillet ñu war a boucler la saison en beauté Euh, BG2 muy Balla Gaye numéro 2 war ci bëre ak Tapha Tine voilà le programme bi nga xam ne moom la ñu dëgmal Alaaji Lamine Samba bés bu rëy am na noo ko daan waxee jërëjëf Malick en 2024 la lutte va vibrer événement bu rëy télé bu rëy télé bu rëy événement bu mag événement bu mag promoteur bu mag waaye Malick wax nga ko léegi lamb ji moo publicité boppam lamb ji moo jaay boppam ndax Malick dañu jóge ci deux mille vingt trois dugg ci deux mille vingt quatre alburax events songu ak ay événement yoo xam ni dafa tàmmal nañu nag Malick jël fukki dimanche boole ko mu nekk benn dimanche waaye Malick li gën a neex ci mbir mi mooy fi ñu ko defee muy place de l'indépendance fii lañuy ñuy fii la ñuy màggalee indépendance bi nga xam ne Sénégal am na ko ñu tànn ko am na taarix di nga ko wax léegi waaye Malick li gën a neex ci mbir mi nga gis ni Albourakh Events mi ngi innové innovation au vrai sens du mot ndax gis nga léegi jongante bi nga xam ne moom laa def ak Baye Ndiaye innovation yi nga xamante ne jëlee nañ ko ci kon léegi mën nañ wax ni que mbër mën naa fayeeku lu ëpp li nga xamante ne moom la ko promoteur doon fay ndax léegi innovation yi nga xam ne indi na ko ci Malick wax nga léegi programme bi daañu ci dikkaat tey nag Malick damaa bëgg ñu def vite fait bien fait suba ñëpp dañuy liggéey ñu def ko nan ndànk-ndànk waaye bu baax bu gaaw te neex te saf noonu lay demee ba tax na programme yu mel nii buñ ko dëgmalee ñi nga xam ni ñoo koy superviser mooy le CNG de lutte ndax balaa lii am faw ñi nga xam ni ñoo ko seq dem fa nga xam ne mooy CNG signé fa contrat contrat boobu ci ngeen di tënku seeni manager xam nañu lu ci nekk ki nga xam ne mooy promoteur bi xam na li ko war ba tax na le rappel et pédagogique ñu bëgg ki nga xam ne mooy Thiam teewal fi CNG en deux minutes mu ñëw ci li nga xam ne mooy solo si rappeler leen quelque point du règlement parce que fii ba bés ba lépp lu nga xam ne da ngeen koy def da ngeen ko war a def sous la supervision du comité national de gestion de la lutte. Malick da nga songu bés bi. songu naa ko du ma aw ma arrêt aw ma arrêt. waaw mais Malick doo doo doo doo doo doo ko léemu ku jaan mat sam xel dem ci dee. wax nga dëgg ba ngay dund ak ba ngay dee yëpp. sam xel dem ci dee. saamaa acca dañ koy saamo dañ koy dañ koy léem. ama jërëjëf <laughs> merci beaucoup yow tamit. <laughs> moyen <laughs> ku jaan mat sam xel dem ci dee ba ngay dund ba ngay dee yëpp sam xel dem ci dee songal grand Thiam jërëjëf Lamine loolu dafa bokk ci suñu aada bokk ci suñu cosaan dëgg ndax euh, saxaar bu jubee kaar daa war a corne corne corne loolu am na solo ba tax na caam Malick ma jox ko micro bi Malick gàtt yëpp sama mag nga di nee naa la un an moo ma dese ma ma ma ko mbax kàttan baa ngi fi macha allah xam-xam nga ngi fi macha allah soxla nañ la jërëjëf Aïcha Thiam Aïcha Gana Thiam maa ngi nii merci Lamine jërëjëf Malick Haj Lamine ñu ngi leen di nuyu di nuyu bàyyi njaay bu baax a baax a baax di nuyu assistance bi ñu fi teew ñëpp di rafetlu jataay bi ni ñu ko defee nii parce que lii ndamu làmb la vraiment euh, décor bi rafet na macha allah mbër yi ñëw nañ ni ñu war a ñëwee ñu lépp tegu ci discipline nii nag moo tax ñu teew fii bëgg lépp tegu ci yoon ñu xam ne mbër yi contrat moo leen tënk. li leen fi indi aussi mooy jaay combat bi looloo tax CNG di autoriser promoteur pour mu bu bisam jotee mu mën a mu mën ko vulgariser mën a jaay événement kon na mbër xam ne loolu rek moo leen fi indi pour ñu jaay événement bi mais dans la discipline ñu fexe ba bu kenn egg fekki sa morom wax yi na tegu ci teggin mën ngeen jaay seen combat te lépp rafet te làmb dafa toll ci dynamique boo xamante ne bii il n'est plus question que ñuy nangu kenn di ko di ci xaj di ko xajamal parce que làmb mi ngi tekk ci jéego yoo xamante ne bii ci ascension boo xamante ne bii dootu du ñu nangu kenn di ko xajamal kon nag li président Bira di wax toujours yéen ñi moom yéen ñi nga xam ne yéen acteur principaux yi yax yéen a moom làmb ji yéen a koy rafetal fexe ba bu ko kenn yàq bu leen nangu aussi kenn ku leen ko yàqal nañu ko def ci discipline ci fair play vraiment décor bi macha allah ci waxtu président Bira aussi ñi ngi rafetluwaat euh, lu mel ni sunu bet ndax sunu bet dafa ñëw bokk ci làmb ci te ñun ñoo ko moomal suñu bopp euh, vraiment Baye Ndiaye ak Alburax ñu indi ko ñu ñëw CNG signante ak président Bira kon loolu du ñu def lu rafetlu ko ndax kenn ku ci nekk ci axlu làmb di nga ci mën a gis sa bopp kon nag vraiment vive la lutte mais vraiment décor bi macha allah rafet na kon nag nañ nañu nañu nañu nañu ko tënk ci noonu jërë ngeen jëf jërëjëf micro bi day des foofu ndax wax naa leen ni CNG dafa am ñu muy traiteel te ñooñu manager yi la mbër du dem mukk directement di wax ak CNG digganteem ak CNG dafa am interface digganteem ak promoteur dafa am interface interface bi moom mooy le manager ba tax na ñoom seen rôle wax dëgg yàlla dañ leen di war a jox cër biñ leen war a jox ndax ñoom ñooy négocier ñoom ñoo yor kàddu mbër mi waaye tamit ñoom la seen signature di dem CNG te signature dafa fort ba tax na mbay Diagne moom la ñuy jox au nom des managers mu sànni ci kàddu balaa ñuy dugg ci face to face bi Mbaye Diagne euh, gannaaw baatu onse bilaahi mina seytaani rajim maa ngi nuyu ñu Mbaye boo jógoon taxaw nag caméra yi gën laa jël dina ma neex loolu taalibe sëñ Babacar man gàttu voilà foofu baax na fii baax na gannaaw on baatu onse seytaani rajim maa ngi nuyu ñu fi teew yëpp ku ci nekk ci turam ak santam di jëkkee ci nuyoo bi Baye Ndiaye ak magam ñun fi dajale mi Aziz Ndiaye di nuyu promoteur bu ma nuyoo Baye Ndiaye ak Aziz Ndiaye nuyu naa promoteur yëpp su ma jogee foofu maa ngi nuyu Basirou baabu ak Alaaji Ibnu Diop su ma leen nuyoo nuyu naa ménager parce que ñoo yoru mbëri grand combat su ma jógee foofu maa ngi nuyu mbër yi bu ma nuyoo Sa Thiès nuyu Amath Sène nuyu naa mbër fi teew parce que dafa guddi maa ngi nuyu journaliste yi fi nekk yëpp di ko jaarale ci Malick Thiandoum ak euh, Lamine Samba su ma ko nuyoo nuyu naa journaliste parce que mënu maa lim comme que dafa guddi li may wax rek mooy mbëri ku ci nekk xam nañ li leen signal ku ci nekk wax nañ la heure bi ngay ñëw wax nañ la li nga war a def ku ci tënku kenn du dagg sa xaalis mm. damay bañ ëllëg ñu ni waxuñu ma woon te toujours ñu wax leen li leen seen ménager wax moom la signé ca CNG yéen a ko yabal mu siñeel leen indi leen xaalis dañu mm-hmm. tënk ci loolu di nuyut CNG bu baax am na leen fi teewal wasalaam jërëjëf Mbaye léegi nag El Hadj Lamine Malick xam nga bu fi Momo Ngom teewee. waaw. Fegoo. ak ak Mbayang. oh Lum. dama bëgg nag comme yëf yaa ngi commencé sedd tuuti. da nga bëgg ñu tàngal. ah dafa war a tàng. xam nga nag làmb. waaw ju Momo Ngom di tëgg. Ah. Mbayang Lum di ko way. Ah. xam nga lu tax muy neex. Ah. parce que ñoom ñaar ñëpp dañoo tarbiyu làmb. bilaay wala ñoom ñaar ñëpp dañoo mbapat laataa nuy dugg arène. Hmm. kon yaakaar naa ni Momo ak Mbayang mën nañoo wàcc. toroxal fi seytaane njoogu njoogu mbay nuyu naa la li ma doon wax yëpp nangu naa ko ci Aziz léegi yow laa ko jox a delloo ma sama yëf ayca Momo ayca Mbayang ñu dugg nag mais Malick bëgg naa nga fàttali ñu événement bi kañ la ak naka la ak numu waaw dimanche cinq juin arène nationale Eumeu Sène contre Sa Thiès 5 mai 5 mai gars yi nee yaa ngay yóbbu combat ba fële de. déet dañ maa bindal. maawo la daa lekk ba damay liir maawo. yow tamit. c'est que xam nga problème bi mooy lan mi yóbbu bu bees. dimanche 5 <laughs> mai 2024 arène nationale. contre Sa Pokola Baldé contre Liss Ndiago. Tapha contre Mor Kankan. ordinateur war a ak mbul papa bari bari war bëre ak kirikou Petit Lo war a ak Mbaye Tine Diawde war ci jàkkaarloo ak dix mille problèmes Tafa Gueye numéro deux war a ak Bouzit Cheikh Niang war a ak Djily mbay Boli war a ak Building loolu mooy programme bi. mais mais Malick am na lu xew. lan xam nga yaa ngi gis boucher mu ñëw takk masque toog. waaw boucher xam nga ni. est-ce que xam nga ni contrat am boobu la ñëw pour renouveler waat pour wane ne daawuma dama wuti woon doole bàyyiwuma làmb man boucher may làmb. waaw xam nga boucher du daw. déedéet non dawoon na nag. non dafa am lu ko yëkkati woon rek. abo ah bon dinañu ko expliquer léegi Malick. bu ñëwee dina ko expliquer. ñëwal Malick. waaye. Eumeu Sène mooy dugg si noonu. wulli ñooy daje. Eumeu Sène mooy dugg si noonu tay si nga. dof du wér mooy dugg si noonu Eumeu Sène a ngi noonu. <laughs> l'enfant de Pikine mooy dugg si noonu. mu ngi noonu ndeysaan xale bi nga xam ne moo ne dof du wér waaye mi ngi fi fekk koo xam ni. waaye kim fi fekk. di xarit xarit loo ta xaritoo wuñu. aka teel a aka teel a ñëw Malick xaritoo wuñu de. <laughs> non. <laughs> Malick Malick xaritoo wuñu. dama ne bu ñu tëjee barrière yi. maali combat bi gën a metti combat lay doon. foofu xarit amu fa. déedéet. foofu mbokk du ñëw. déedéet. farandoo du ñëw. déedéet. ndey du ñëw. déedéet. baay du ñëw. déedéet. nijaay du ñëw. déedéet. sëriñ ba du ñëw. déedéet. entraîneur du ñëw. xam nga nu ko tuddee. farandoo du ñëw xam ko tuddee. luñ ko tuddee wàllu teen la ku ñëw ci bunt bi ngay yem. le moment fatidique. oye Malick nga ne la 5 mai. ay le 5 mai. bés bu rëy Lamine Samba. dama ni daal. Albourakh Evans wone nañu seen bopp Albourakh Evans ndaw moo ko jiite di tëgg ay ndaw à le la saafonte baa ngi noonu diggante Ama Sène ak Sa waaw bi yoon nag ama dugg si na ndeysaan nuyu Sa nuyu bëri bi yoon joxante wuñu loxo déedéet xam nga lu tax am daa ñëw ni ko nii affaire yaa ngi commencé sérieux non ça devient très sérieux la Malick mbir maa ngi commencé sérieux nag mi ngi xeeñ neex <laughs> waaye nag xam nga ne waaw bàyyi bu ma ne li mu man waaw du poosam déedéet sponsor montage financier la def am ay sponsor yu ko ci jàppale xam nga xam nga wolof yi ni ñu ko tuddee waaw xeer wa tee sàkkat da cay daru waa la wax loolu maa wax lii yaa ngi gis ni boisson bi nga xam ne mooy original mooy mooy the king des boissons maa wax loolu nga xam ne ndukkumaan groupe moom moo ko fi indi mais Malick am na noo tuddee boisson bi da ngay naan ba noppi di càqami jëlee na fi xiif wallaay ndeysaan boo xiifee day faj xiif bi fajaale mer bi fajaale mar bi dëgg la dem ba fa nga xam ne moo di Arabie Saoudite ñam ko mu neex lool mu indikoo ko muy jus bu nga xam ne amul colorant amul conservateur pur jus naturel la original am na orange ak ban am na mango. ak ban am na ananas. ak ban am na cocktail. ak ban ak pêche. kon moom moom am na yëpp. boisson fruitée la bari pulpe lool muy ñam facile à digérer boo ko naanee da ngay daal di digérer waaw mu nekk nag produit de haute qualité jóge ca eh, jóge ca Arabie Saoudite distributeur exclusif au Sénégal et dans la sous-région du Kouman Group la. dëgg la Malick yaakaar naa ni moomo ngam mi ngi noonu. Mbaye ak pare na démonstration bi Malick ñaata nga leen may ñoom dama leen di may seen minutes yu tàng jër waaye nag sunu bet mi ngi ci géew bi ñëw ah. jàppale CNG de lutte jàppale Alburax xam nga léegi li li neex Malick waaw mooy ak sunu bet mën nga ñëw ci làmb ji jënd bi yi nekk millionnaire ñibbi maa la wax mën ngaa nekk mbër mise ci sa bopp cay loolu mën ngaa nekk promoteur mise waaye bul fàtte amateur misé bul fàtte j'adore oh, ak ay produit am diwlin ji ceeb bi warga ji suukar si saabu bi mais moom daal dafa darale macaroni gi lépp lépp gi ci biir waaw lépp spaghetti te koor gaa ngi ñëw Malick laa ilaha illallah produit yëpp nañ ko def j'adore ci biir kër yi man de saawaay ñaari cent kilos laa jël dugal sama kër. yaa ngi noonu. ma waw bu la maanaam fu ñu ma mus a joxee benn ñaar jox naa la benn <laughs> man de man de keroog dem naa bureau Baye Ndiaye ne ko ceeb bi mu ne ma wool Aziz. man de bitig bi mu jàkkaar laa dugg di jënd. ah da jënd yow. waaw ma jënd benn baay may ma benn. muy ñaar mu yóbbu loolu fan lañ koy defee. ah fan la ñuy jëndee. boo demee boo demee boo demee bureau ba. waaw am na bitig bu mu jàkkaar lool. bitig boobu. boo jëndee benn. boo jëndee benn. Ah. bàyyi wiis la benn. mais yow yow loolu lañ koy defal wala ñëpp. <laughs> yow lañ koy defal yow mii boo demee ñu defal la ko. <laughs> waaye nag la LONASE mi ngi ci biir kër gi. waaw waaw ndeysaan. loterie nationale sénégalaise. ñoom tamit ñi ngi ci biir kër gi. waaw mais dafa mel ni suma ñaari jàmbaar yi pare gu ñu waaw xam naa ni war nañu mën a. non jël benn orateur. kan nga kan nga yaakaar ma euh, ma mais mun na ñëw ci Baye Ndiaye ki fi teewal euh, original waaw anamu di monsieur Sembène ana moom laa bëgg mu ñëw moom tamit ñu jox ko kàddu gi boisson mu ñëwaat bi maanaam maanaam tur rek beneen affaire la parce que barki démb dama woo aas mu ni ma maa ngi ni Arabie Saoudite dafa am ñu fi ñëw bëgg boisson bi ah bon waa Arabie Saoudite ni leen ñun jaayi ñu ma Samba jaayi ñu Demba suñu représentant exclusif mooy Ndoukoumane groupe. group ilaha soxla boisson bi. boo fa demul. demal nga wax ak ñoom. kon leer na. loolu leer na muy Mauritanie Sénégalais ñoo mën a muy Mali muy Gambie. yëpp rek muy Guinée. sous région bi ñoom ñëpp toute la sous région. voilà borom original mi ngi nii. ayca ah, représentant original Sembène. ayca jàkkaarloo la caméra yi. ngeen ñëw nag dugg ci làmb ji ak doole. ndax euh, au-delà de Albourakh Events ñoom ñi ngi jàppale yeneen structure yu nga xam ne ñi ngi ci biir làmb. gis naa leen ci matinal bi. ñi ngi ci matinal bi. may may tax indee ko leen jongante. ñi ngi ci sama émission bi ma yor ca rajo ba. Ah. dinañu ñëw jongante lool ci programme bi la bokk. Ah. sponsorisé nañu Assane Ndiaye Bawol. askay. sponsorisé nañu Gaston Production. askay. Ah, loolu day wane rek ni ñoom. sénégalais yi lañ fi nekkal sénégalais yi lañ fi nekkal moo tax na ñu am fu la ju toll ni di naan ci original ah oui nañ koy naan bismillah sembeen bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuy ñi fi teew ñëpp euh, di présenté wu man maa ngi tudd Ibrahima Sembène euh, nekk représentant original euh, Afrique Sénégal nag El Hadj Ndaw groupe Ndoukoumane moo ñu fi représenté moom yamul nekk si Sénégal moo ñuy représenté aussi ci Mauritanie moo ñuy représenté Gambie moo ñuy représenté Mali Guinée Bissau ak Guinée Conakry euh, jus original nag jus la bu ànd ak qualité boo leen ko xoolee nii ci écran bi am na canette bu bleu bi ak canette bu blanche bi canette bu bleu bi mooy canette bi nga xam ne dafa ànd ak euh, ñam bi ci biir fruit bi mooy pulpe yi am na pêche mooy mooy naan di tàqamtiku naan da ngay naan di sàqami boobu noppi di tàqamtiku voilà comme ni nga ko waxee woon la dernière fois sàqami sàqami voilà léegi boobu am na pêche am na mang am na ananas am na orange am nañ aussi canette bu blanche bi canette bi nga xam ne ñi nga xam ne jus rek la ñu bëgg bëgguñu fruit bi aussi ñooñu canette boobu am na cocktail am na mangue am na orange euh, original nag jus la boo xam ne amul colorant amul conservateur Euh, fu mu nekk nii képp ku ko soxla mën nga oote si 677. jàkkaarloo caméra bi. képp ku ko soxla actuellement mën nga oote si 77 644. ku am doole 67. képp ku soxla jus bi mën nga oote si 77 644. dama bari doole. 67. man sa doole mën nga koy wan. original bi moo la may doole. waaw ah, moo ko <laughs> fu la neex toogal man fi mu ne. Eh, fu mu nekk ñemewuma la produit bi disponible na si marché yi. ok disponible na si grossiste yi. ok ñu ngi aussi si grande yi. képp ku ko soxla mën nga dem aussi si grande surface mais il faut joxe waat numéro yi. waaw numéro bi 77 644 15 67. fépp foo nekk si Sénégal incha allah mën nañu la ko indil. jërëjëf Malick jërëjëf Semaine. yaakaar naa ni Momo pare na. attention Momo. Ah. attention Mbayang. Mbayang pare na yóbbul leen micro yi yaakaar naa bu ko defee. Malick doo yóbbaale bii indi yëpp waaw parce que Mbaye moom buy riir dama bëgg sama mbokk séeréer yëpp yëngatu li ko dale ñojoor basul basaar marlooj marsul marfafako jirnda yëpp li nga xam ni contre séeréer la ah yaakaar naa ni jaxaw siin ñi ngi lay déglu ñi nga xam ne aalu Joy wa. Joy jekate e besgayo o jebe jay wate jom je kase beska yon fe jublu mabso jibi jay wate jom je kate beska yon fe jublu mabso jibi jay wate jom je kase beska yon fe jublu mabso jibi jay wate jom je kate beska yon fe jublu mabso jibi jay wate jom je kate beska yon fe jublu mabso jibi jay wate yo sekkate beska yo fantum no mabto jibi jay wate yo sekkate beska yo fantum no mabto jibi jay wate John Diegase Meska ayon fa jub nu bafto jibin jay wate Meska ayon fa jub nu bafto jibin jay fa jub nu bafto jibin jay wate Na konde mo makajan yorma Kima yala ye Ya jom balame na konde mo makajan yorma Deba yala ye na haja jomna be mayala ye ya ba haja jomna de bayala ye na korde bo ba haja de mayala ye ya jombala be na korde bo ba haja jomna de bayala ye na korde yaa jofala fee na kor dey booba xaje jom naa de ba yàlla ye yaa jofala fee na kor dey booba xaje jom naa de ba yàlla ye yaa jofala fee na kor dey booba xaje jom naa de ba yàlla ye evira afoza wanoza hora nadire jombo jarari nake evira adofoda afoza hora nadire jombo jarari nake revira adofoda afoza hora nadire jombo jarari وجراني نكير أجر فدا فزور أنا نيل وجراني نكير ربيب أجر فدا فزور أنا نيل وجراني نكير أجر فدا فزور أنا نيل وجراني نكير ربيب أجر فدا فزور أنا نيل وجراني نكير قرلو joti segane korala bake mamri gan genaye jom joti segane Abu Zarro doole fanyike e yo du sar kor jabu sar dun dunare ren ma fanyike e yo du sar kor jabu sar dun dunare ren ma fanyike kañaan ci nero de jaseer ñoowe njabe keen e lum fatu muy to moy to xee a tarefa kentaan de yoxaano saan tuma awe jaan de ñoowe burna jeke yedi bayo soot jomay sabara soto xee kooko bu fi nekk kooku moom mooy jabaru mbër yi yépp ndax jabaru Cheikh Niang yaakaar naa ni bu fi toogee ah waaw lu Cheikh wax Cheikh Niang dafa am lu ma wax nee na ma man dong maa am ci làmb di bëre sama jabar di ma woyal mbaa muy woyal mbër yëpp nee na moom dong ko am tey daf maa woo ne tey nga gis loo mës a gis ma ne lan la mu ne ma sama jabar di di woy may may signature yeneen mbër yëpp di bégee loolu yaakaar naa ni Cheikh Niang rek ko am ci làmb ay ca faat njaga bismillah ay ca bu boobu doxul ma jox la bi ah, ngañ dem baag waalit njaay guy ga naay kuy doon ma samba a tureer naa a tureer naa a tureer naa kuy doon ma gooñ ma tëkkul téere laala tulu nama ko baa du jar neem dogo faale maa wa joor ay waay li neex na waay ay waay ku ma sàmma yaay jaloor doomu nay jiileey benn mbay sa yaay sa yaay mooy sama jaamu yaay fa dama koy gàttal sa ndax dama fe fekk sama mbokk yu ñàkk ñaan ñi dëgg neexul man naa duma dem fii laay toogee Cheikh Mbacké Niang kii man na góore aw leen li waay booy dem daaro daaru booy ñaasa baay lo ana buuse laay woo bulge ay boy ah bulge lay way ana bu sita sama bar magani ta fagay do sama sere gi ne waaw eh uli lay way waye bada jonnu bak na la do jaaye eh waaw lay way sama xoya ney sama na góore du ma dem ndeysaan yi dooge waaw waaw yaaya booy ki na góore ee eh, ana Aziz yaay doomu yaayu baay yaay Aziz ale yaay tey yaayu baayu njaay la yaaye booy diit mi baralem lay woo doomu yaayu booy eh, eh, eh, ñaa ci man na góore abis yaay yaaye dooge sama ñaari gaay yaaye booy ki man na góore ay ko jëma gulli doo këkëb jarul xiiro lambu jarul ngaayo Baye Ndiaye jaajëf Sathies ah ana Sathies dama yaayu Balla Gaye de yow Sathies yow de mën na góore Sathies ki mën na góore ma dem fii laay toogee Sathies ki mën na la ilaha illallah <laughs> Omar Seck waaw waaw Omar yaay borom Thiès xam nga combat boobu chéri kontaan naa boobu <laughs> mais Malick est-ce que Omar combat bi du le 5 le 31 juillet le juin 20 juin 30 juin mooy diggante Boucher Ketchup ak wuli wuli waat combat bi Lamine. mais Malick xam nga lu doy waar. ah mooy combat du le 5 mai. mais combat du le 5 mai. nekkul le 5 mai. déedéet. mois de juin la. waaw. le 30 juin. xam nga combat bi dafa indi woon coow. gaay yi xibaar la. duubul xibaar. waaw ñëwal. daa am lu xew. lan moo xew. dafa am benn kilifa bu fi maye xaalis bu bari. waaw. may ko ñaari mbër. waaw. ñaari mbër yooyu nag lañ leen jox. ñu comp ci as lëf. jox ma ndax yow géer nga. no man duma laal. waaw non laal ci suuf dangay ngay bëgg a bàyyi ba ma encaissé. <laughs> duma laal as ndaw borom du commande transit borom poisson boobu ñuy wax original. lu mu wax. may na wuli cinq cent mille ah? cent mille waaye Lamine ma ne ma Malick du jël gan waaw yàqu du jël gan aha as ndaw bu taxawee fii may ku nekk cinq cent mille xanaa ah, ah. mbaari fayaat maayi marga mu fayaat maayi mbaari fayaat maayi yaay jaayame day waay Lamine Lamine dafa am keneen keneen ku ma joxaat beneen information muy information ban muy ku nga xam ne dafa yor kër gu nga xam ne day jaay ay meuble waaw muy suñu meuble bi nekk kër Ndiaye Lo ah ok waaw suñu DG bi di Pape Ñing nee na diggante wulli ak ki nga xam ne mooy boucher ku ci daan daf lay jox salon bu bees tàq nga yóbbu sa kër kon nag kooku PDG bu kër Ndiaye Lo suñu meuble. kon père xam nga ni combat bi mooy moo yor suñu meuble ca Kër Ndiaye Lo nee na yéen ñaar ku ci daan ah, jox na la salon bu rëy a rëy rëy acca ñu démarré nag way ko du séeréer yéen laa waxal ok basa basa léegi Malick way leen sacce su neexul may leen xaalis ok ma yoroon ko fii doon fi jëlee dara waa Boucher wuy ma léegi nag ñun ñooy diriger jërëjëf jërëjëf Assaw léegi nag Malick les choses sérieuses démarrent ayca bismillah dañuy jël kàddu gi jox ko Baye Ndiaye bu ko defee moom ci jëmmi boppam mu campé débat bi wax événement bi nan la ak nu ak naka la bu ko defee nag Malick ñu songu rapidement li nga xam ne moom mooy face à face bi Baye Ndiaye vous avez la parole. ayca bisimilah Baye Ndiaye borom Albourakh Evans yaakaar naa ni Lamine di ngay faral di wax ni cin. bu naree neex bu baxee bu baxee xeeñ neex. cin li xeeñ na neex. dëgg la bisimilah. aouzu billahi mina sheytaani rajim. bisimillahi rahmaani rahim alaaji Lamine maa ngi lay nuyu di nuyu alaaji Malick di nuyu ñi seetaan ñëpp di jiital nuyoo bi nag suma patron suma kilifa suma papa suma xarit suma sëriñ suma lépp ñu gën koo xam ci Abdou Aziz Aly Ndiaye maa ngi koy nuyu bu baax di ko jox wàccu waayam di ko ziyaar bu baax di nuyu njabootam yëpp di ñaanal sama papa yàlla na ko yàlla yërëm taxaara ko àjjana amiin yaa di nuyu sama yaay bu baax a baax ak sama beneen papa ñu koy wax alaaji Masata Ndiaye muy taawu paa bi maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu ñu may seetaan ñëpp di nuyu suma soxna ak euh, xale yeeg ñëpp di nuyu groupe Futurs Médias bu baax a baax di jiital nuyoo bi suñu papa Youssou Ndour di ko teg ci loxo Boubacar Ndour Birane Ndiaga di nuyu Mao ak Ibrahima Cissé Lamine maa ngi nuyu suma mbokk promoteur yi fi teew yëpp tey tey suma xol dafa sedd. dëgg la li ko seddal mooy suma mbokk promoteur yi teew fii. wuyu si la doon naa fi bañ a toog sax. parce que tey ñoom ñëpp ñëw nañ wuyu si Amas maa ngi leen nuyu di leen ziar di jël nuyoo bi nag di ko teg ci loxo Pate John muy suma mag bi suma kilifa di nuyu Assane Ndiaye tamit bu baax a baax di nuyu Fallou Ndiaye bu baax di ko nuyu bu baax di nuyu Diouf yi production mu ngi fi Modou Baye Fall maa koy nuyu. di nuyu Daouda jaañ bu baax a baax Jaw production mu ngi fi Fouta production mu ngi fi Ndewaan mu ngi fi di nuyu tamit petit baram Ngoy Aliou Sylla <laughs> baram Daara Njulli maa ngi koy nuyu bu baax a baax moom sama waay la doomu ndey Fallou Ndiaye di nuyu tamit jam production teewu fii waaye dafa dem Gambie waaye mu ngi mel ni mu ngi fi teew di nuyu presse bi yëpp nag di nuyu sama mbokk journaliste yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar. di nuyu mbëri yi fi teew ku ci mel ni Eumeu Sène am naa tey mooy taaral jotaay bi maa ngi koy nuyu di nuyu stafam ku ci mel ni Lañang di nuyu Sa Thiès bu baax a baax ak yeneen mbër yi fi teew ñëpp di nuyu Momo Ngom bu baax ak Mayeng Lum maa ngi leen di nuyu di leen jox seen bu baax di nuyu nuyu tamit ménagères yi yëpp su ku ci mel ni suma papa Basirou Babou maa ngi koy nuyu di ko ziar ak ñi mu àndal ñëpp ñoom Mbaye Diagne ñoom Abdou Baaxum ak ñu fi teew ñëpp ku lim da ngay juum di la jox kàddu gi ba ci kanam Lamine nag dama am tey suma xarit yi fi teew ku ci mel ni Ndiogu Mbaye depuis suba ba léegi mu fi teew. waaw sama gaa yaa ngi noonu ànd ak Malick Mbengue. dëgg la loo Lo ñoom Chérif ñoom Ifra Bas Capo Dadi Diop ñoom ñëpp daal maa ngi nuyu di nuyu tamit Lo Baram Italie di nuyu Abu Lele ñoom ñëpp tey ñu ngi fi toog xam nga tey lii jotaay bu rafet la di nuyu tamit ñoom Zaliou Ba. ak ñoom Ibrahima Mbaye ñu fi nekk ñëpp daal maa ngi leen nuyu di leen jox seen wàccuwaay bu baax di leen wax jërëjëf mais bàyyi di nuyu waa CNG bu baax a baax di nuyu président Bira Sène di nuyu Thioune mi fi yabal ak caam di leen wax ni kontaan nañ bu baax ñu démarrer affaire bi nag ba ci kanam waa bàyyi innovation bi nga def nii tey ñëw place de la nation ñu gis décor bu taaru bii te lii dafa mel ni avant-goût ci li nar a xew le cinq mai parce que innovation dafa mel ni dafa bokk ci li nga xam ne mooy Albourakh Events seen mënin la lii tey su ma ko mënee man du sama mënin tey sponsor yi ñoo waral lii yëpp ku ci mel ni sunu bet maa ngi koy gërëm bu baax a baax a baax parce que tey événement yi mel nii suñ ko mënee réussir ñoom ñoo tax di gërëm ji original moom tamit suñu papa moom ko alaaji aas ndaw ndukumaan waaw nee na yéen ñaar ku ne jox na leen cinq cent mille demal toog wulli parce que lii sénégalais moo ko moom dugal ko ci réew mi dañ ko war a jàppale bu baax a baax di ko nuyu bu baax di nuyu nag waa LONASE di jiital DG bi Noura ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara bu baax moom it jàpp na ci combat bi bu baax sponsorisé nañu di nuyu groupe Jador di jiital PDG bi Abdoul Aziz Alé Ndiaye moom tamit ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm parce que tey li fi taaru ni yëpp moom moo ko fi def kon nag ku jar a remercier la ku jar a la te yaakaar naa jàppalewul man kase sama mbokk promoteur yi fi nekk ñu ngi leen di jàppale kon ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di nuyu nag yeneen sponsor yi ku ci mel ni CDC ak CESIS AIBD Carax sib si bu neex boobu xam ne xale yi moom lu ñu jël ak mag ñeeg ñëpp moom la <laughs> maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di nuyu FONGIP bu baax di ci jiital Nene moom suñu jigéen la ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziyaara tey soo gisee bis bu taaru bi ñoom ñoo ko waral ak ku ci mel ni Moustapha Diop xam ni moo ñu jox place bi ñu nekk ak Sidaat décoration yi moo ko def écran yi son lumière li fi nekk lépp moom moo ko indi kon ku jaral ñaanal la tamit ñu ngi koy gërëm di gërëm Iba taal bu baax a baax euh, maa ngi koy wax léegi ma ni ci wàllu événementiel da ngeen di innover saa yu nekk le cinq bés la waaye le trente juin bës la le 21 juillet bës la te bës bu ci nekk wax dëgg yàlla am na loo leen ci nar lu bokk ak beneen journée bi. waaw euh, Malick xam nga tey làmb dafa baaxoo événement ñun ragal naa ni heure bu ñu wootee rek événement la wootee parce que tey boo xoolee heure bi guddi na mais kenn sentiru ni guddi na fi ñu toog sedd na mais dafa mel ni dafa tàng ndax ñi nga tëgg mbër yi ñu fi indi yëpp dañuy joxe. ci génn rek da ngay jàpp ni moo dàq joxe sa morom loolu mooy événement te chaque fois rek bu ñu ñëwee comme ni ma la ko waxee événement bu ñu def du bokk ak moromam bu ñu démarré ñu ngi démarré woon cosaan tey gis nga fi ñu nekk ni tey suba mun nañ démarré feneen loolu mooy groupe Futurs Médias heure boo àndeek ak moom rek da ngay innové dangay dem foo xam ni ñëpp ku seetaan sa xol day sedd tëgg mbër yoo xam ne nag ay mbër yu jar a tëgg lañu. Ah li ma wax Eumeu Sène dernier combat maa ko tëgg te gis nga lim ci wane yëpp. looloo waral ma tëggaat ko mbaam bii te tamit ragal naa ne bu ma jógee ci bii dinaa waxaat ak moom ci beneen Sa Thiès tamit am na lu ñu tënk teg pour wax ak moom ci leneen kon ay mbër yoo xam ni yu jar a joxe lañu mbër booy joxe rek heure promoteur day sawar ci yow mbër yi ñu ci toftal tamit ku ci mel ni Pokola ak Liis Ndiago ñoom jar nañu lu nekk ñoom rek mat nañu bés fu ñu daje ñoom ñaar sa xol day sedd dañuy bëre dañuy mobiliser nga ñëw gis ci boucher këccëg bu war a dajawaat ak wulli nga gis li ci xewoon yëpp tey ñoom ñaar ñëw neexal journée bi tey ku ci mel ni Petit Lo tamit di champion bu mag dëkk parcelle ak mbaytin bi dëkk géejawaay ordinateur moom kenn dootu ko présenté ah kooku àdduna bépp ko xam mu war a dajeeg mbul mi xam ne Tiwaawan lay juge Tafa Gueye numéro 2 war ci bëri ak Bou Siteu Bou Siteu baram Dubaay doomu ndeyu jéeri maa ngi koy nuyu <laughs> bu baax a baax Jili Mbay war ci daje tamit ak euh, Cheikh Niang nga dégg soxnaam su baax si li mu fi woy woy yu neex mi fi woy ñu ngi koy nuyu moom tamit nga gis tamit euh, papa Bari Bari war a daje ak Kirikou mu nekk combat bu neex neex combat boobu rek doy na combat jaww de war ci bëre ak 10 000 problème am na beneen combat bu ci topp euh, body la ki mu war a dajal dama ko jàpp bu baax building la war a dajal waaw mu ngi noonu tey mënoon ñu jël combat bu mag bi rek ne dañ ci def ay combat yu ndaw ay combat yoo xam ni combat yoo may la mais booba amateur du ñu sawar dinañ ñëw sax mais da ngay ñëw ba ci mel ni ku xaw a liw wala ku xaw a loolu moo tax ñu jël combat yu mag yi dugul ci ay grand combat suñu papa Basirou Babou monté combat yëpp moom chaque jour la ñuy conseillé jëleen tëgg événement yi mag di ci teg ay mbër yu mag tey ragal naa ñu ngi jëm ci la 30 juin suñu paree bii le cinq mais am na combat yu mag a mag yu ñu ci war a def ay mbër yoo xam ne ay mbëru grand combat lañ moom lañ ci bëgg a toftal ñu ngi négocier ak ñoom bis ñu ci tombé d' accord comme ni ko Aziz waxee woon keroog rek dina leen dugal ci biir combat bi alburax daal ak événement moom ne ko ñëpp xaar ne ko ñëpp ñaanal dëgg la jërëjëf Malick. waaw léegi nag diggante buli ak building. buli. ak building. ak building. Ah, ñu ngi fii. buli jël ana building. building. Malick yow yaay jóg yaa gën a nekk Malick. ñaari jàmbaar yi. yaa mën yaa ëpp doole yaa gën a féete paa jox ma ñaari micro yi. joxal ma suma ñaari jàmbaar yi ñu jàkkaarloo. yéen nag ay sama gars yi ñëw leen nii lu ngeen mel ni lu ragalante ni wala ñuy moytonte alors yéen ñaar yéenay ëpp bés bi te dinañuy faral di wax ni combat bu njëkk bi nu mu mel day wone combat yi ci topp nu muy mel bés bu rëy ngeen toftalu ci combat bu mag bu nga xam ne àdduna yëpp moo koy seetaan bés la bu nga xam ne promotion bi ngeen ci nar a am musu leen ko am ci seen carrière parce que ñu ne kan mooy bëree Eumeu seen kan lay dajeel Sa Thiès yéen ñaar ngeen war a ubbi yëf yi mu nekk en direct adduna yëpp di leen seetaan bés boobu bu ngeen ci jaayul seen bopp dootu leen jaay seen bopp ci bés alors mon fils ñi ngi yaar bu wér bés bi bés bu mag la combat bu mag la waaye yaag sa waay yéenay ubbi yëf yi lan nga ko dencal le cinq waaw bismillah rahmaan ginnaaw bu ñu sant yàlla julli Seydina Mohamed sant suñu yaay bu baax ñu ngi koy nuyu bu baax di ñaanal suñu papa yàlla xaaree ko àjjana waa plateau yëpp di nuyu champion bi Eumeu Sène di nuyu Serigne Sidi Mbacke alxuraan di ko ñaanal yàgg fi loolu tànd ak wér amiin amiin bu baax waaw di nuyu ñëpp di leen nuyu di ko nuyu bu baax waaw cinq waaw moom mi nga war a jàkkaarloo bu arbitre jénnee seen diggante lan nga nar a def waaw ci koom rek bërëg moom booli moom ñi me ngaa dox ci kaw waa ji waaw xool nga ko bu baax bu baax ah damay dox ci kawam du ma ko daan ko ak bu jëm daral la building yéex ñëw gaaw ñëw nee na yéex ñëw gaaw ñëw nag wu jëm daral waaw asalaamaaleykum onsu billahi mina seytaan rajim maa ngi sant yàlla bu baax di jul seen bi di sant sama ñaari waaj di nuyu Baye Ndiaye bu baax xam nga moom maa koy bàyyi ak yàlla maa ngi nuyu Baye di nuyu Aziz di nuyu Badiane di nuyu sama ménagère di nuyu Mas Koki di nuyu Babacar Ndiak di nuyu sama di nuyu Ndiogu Mbaye di nuyu samay nit daal saa ma jógee ñu jóg man Touba laa jógee nii sax mais Baye ni mu mel si man rus naa tardé ba dama amoon dëj sama magu sama sama magu jabar moom moo wàññeeku woon. yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana. waaw man moom. nee na nag bu jëm daral nga dina la song dina la dóor dina la daan. am problème dafa am li nga. waaw sa bopp dootoo wane sa bopp. duma ku mën sa morom duma lu man rek na def man moom li ma lay wax li ma lay def xam nga ko sa ma lay wax yow li nga def moom ñëwal man moom jeex na a man war du ma wax parce que man fii du sama place quoi bu ah. yàlla xam na ko te te le cinq allahu rabi dinaa wane sama bopp le cinq di nga wane sa bopp kàttu yàlla ayca fils Boli di sant sëñ Xaadim Mbacke Sam Fall waaw sant waa daara yëpp waaw du nuyu sama waaji ma àndal Babacar Fam Biya mhm. waaw di woo Isaaka Diop maa ngi lay woo bu baax moom sama waay la sama xarit la. waaw di woo Ablaye Timbo. waaw Modou Gueye directeur impôt domaine ñoo lay woo. waaw Aline Mbaye sa loxo laa teg. waaw maa ngi leen di woo ci koobaay bi ngeen jàpp bu baax a baax di waa di woo sama waa koñ Pikine laa dëkk waaw jant bi. maa ngi leen di woo yéen ñëpp sama waa koñ gën leen gën jàpp ci combat bi waaw góor jàpp si góor waaw góor egg fu mu jëm. Aïcha hotel building. di woo ñëpp di woo. waaw maa ngi woo PDG waaw Tidiane Tidiane Dia. Tidiane Dia maa lay woo bu baax maa ngi lay woo ci combat di woo Billy xéwal bi borom xéwal lay woo waaw di woo Moustapha waaw directeur Esat maa lay woo. ayca wooteel booy. muy Maskok Babacar Ndiak Ndiogu Mbaye Omar Gueye maa ngi woo Yangom di woo Sam di woo Birta Bébé Binta aussi maa ngi koy woo di woo ñëpp ñu liggéeyal foofu leen wala combat bi le cinq la incha allahu rabbi ku bëgg ma des ci lam ji rek combat bi ñaanal ma si kii maag moom du ma wax ak moom sax mais du ma ak moom jërëjëf ah, merci beaucoup sama ñaari jàmbaar yi Cheikh Niang ak Djily Mbaye bu Faas Cheikh Niang mais mais Malick combat bi bu neex la non combat bi dafa neex mais man ma ci jaaxal mooy waa Djily bi kii dafa am lu ko jabar ji wax léegi ne ko ndekete yow suma doomu bàjjan la ndeysaan ñaari mbokk lañu mais terewul dinañu raag ba dugub dinañu raag ba dugub la wax loolu te xam nga jiili waaw moom lamba lamba waxul dëgg rek ca aas ca aas ndaw borom ndukumaan la nekk la nekk waaw <laughs> te bés boobu aas day ñëw ak waa original toog laay laay la laa waaye waaye xam nga ni kii bu jabaram nekkee ca gannaaw di way booy indi ko naan ko kii laay woowee la illallah muy noonu aca Cheikh Niang aca gars yi ñëw leen yéen nag ay professionnel ngeen defi professionnel waaw euh, euh, Malick damaa bëgg nag sama soxna si lim ma daan woy ci mbapat ma koy toj tii dama koo bëgg dóor dóor yoo xam ne il faut ma dégg loolu parce que fandega kay delloo ma cosaan Demba Daaro Daangoñ ma sàmba Demba leen di rek ñaari baat ñaar ndax kii dóor yi ma ko doon dóor il faut que ma dégg loolu. waaw léegi yow da ngaa mën a dóor kaay kaay man damaa bëgg non saa yi damaa bëgg a xool force de frappe am ndax ay temps daa mënoon a dóor lool. mais Malick. ndax xaw ndax mënati kaa dóoram déet. Malick lii nattukaay la de entraîneur am nee ko bul dóor non saa yi. non Malick lii nattukaay la de non lii. coach bul yàq job bi bul yàq job bi coach ah gisal ba dama ko dóor sax mu dem yoonam te gauche rek la ko jox Malick de un kilo la dóor. ah nga ni ñaata laa dóor la dóor allahu akbar Malick Roussna <laughs> la ilaha illallah Masamba Meri Ndaw Baydu Raas déemi guddi waaw Malick mais dañu wax ni xaaral dañu wax ni waaw lii ci signature contrat bi la bokk dinaa ko dóor pour xool force de frappe bu bëri dinaa ko dóor bu sax dama koy yàq ok jógal waxal ma loolu Demba Daara Daaw Ngoñ ji non na ma may ci loolu loolu il faut mu yëngal ma parce loolu mbapat la ma ko daan way may toj mbapat mi mu ñëw di ma ko woy ci àll bi may bëgg a rey bëri kon ñaar ci mbapat ngeen gisante ci mbapat lam xamante muy woy lu neex maanaam yow may bëre lu neex waa xaaral yow yow da ngay jékki-jékki di bëri li neex jékki-jékki dégg baat bu la naan lan yonent bi mu naan Demba Daara Daaw Ngoñ ma Samba Demba Alem Ngoñooy Ngoñ Ngoñ tak noo ko doon wax Ngoñ mu daawul wayaan te ko wayaan mu dab la xam lu ma ko doon wax ma ko waaw bul bëre toogal làmb ji neex na dem ba daaru ngoñ soo daanoo lu may yaay eh, bul bëre toogal làmb ji neex na dayo xaadi ñaan soo daanoo lu may seex jalal sabar samp ko jegew ba góor gu la dëkk nga duuma ko baayu xaadi ñaan soo daanoo lu waxi yaay ñëw demba daara daw ngooñ maa samba demba leel ngoñooy ngooñ demba daara daw ngooñ maa samba demba leel ngoñooy ngooñ ngoñ daa woyaan ko ma sa woyaan mu nangoo ndeysaan ngoñ daa woyaan aa jiili may penn mayay sa yaayi sa yaay mooy sama jaamu yaay xadi caama yaayam nogoy jere yaayam sala faali ma cebeer ibra fatim mbaa joog balla fatim mbaa joog eey nangeen sala ak borom jaab ñi te ma yaay sa yaay sa yaay jële ni jooyta noo peeguñu mooy sama jaamu yaay baa sot gi ngay sot nag barke rasul la ngay wax yow gis nga mbir mi xoolal Malick cheikh bu lii yëpp weesoo cheikh am na problème bu lii yëpp weesoo booy daanoo lu may wax yaay waaw wuy ma <laughs> daga de moom lim toog di di di bëre yëpp bu bu ndaw si ne boo daanoo moo tax defe sam bari naa non ay combat ba bëri non si si non defet yi bari na man six cent combat laa bëri ñaata défaite 600 combats am ci 100 défaite. waaw waaw waaw kon kon kon kon acca sama ñaari gars yi yéen nag sas na leen ah woy na leen yéen ñaar ñëpp waaye yow mii li ñu la wax ku ma ko waxoon ku taxaw sama kanam doo doy. am na problème lii dan ma ko daan woy bu yàgg may tas réew mi loolu lañ delloo si jii billaahi nee na xaw ma jaamu bi yaayam sa yaay moom yéen a bokk xaw ma lan ak lan ay maam. waaye nar naa laa dóor dóor yoo ngoo xam ne ñii de yen def ngeen loo xam ne Aziz bala wax dara nag damay sant Aziz ak Baye Ndiaye ñii ñooy Sowetaas xam nga Sowetaas dañuy fekk daanaka koo xam ne faatu woon na bat nga xam ne si fini ñu ñëw ne la duut loo xam ne da ngay nekkali ko comme la sama papa doon wax nee na benn sëriñ bu nekku sa taalibe bi dafa feebar da daan feebaru daa ñàkk xaalis rek xaaral ma dem hôpital bu demee fekk ko fa yëkkati cinq cent mille teg ci loxo mu ne ñoo kat jóg ñibbi ñii nag noonu lan mel ñii ay sowetaas lañu ñii ñaanal leen ñu yàgg fi ah ma ne kii moom samay mbir maag moom la cinq la incha allah xam nga fii wax rek la ñuy def mais duñ jëf waaye jiilee mën a gën a xam téeméeri junni yoon jàpp naa ko fi kabe mais di ko dóor ba peer tafaagay di raam ci saako yi barki nabil moustapha ak kon yàlla bu ma ko daan dama koo dóor dóor ba peer tafaagay di xalangu ci saako yi père dafa gay ma ne ko père ñun sa ñaari doom lan ndax sam papa la jóge dóor yaa miti jéeli eh bul da rek eh soogal eh, eh jéeli ma ne ko per ma mujj arrêté na arbitre yi yéen kii génne leen ko géew bi mais xam nga arbitre yi ko Kébémer yooyu ay complexe lan xamuñu samp yu mag yi suñ leen gisee lu def rek noonu la na wax waxal jéeli non Tafa Gueye jàpp sama tànk père Tafa Gueye ba teex waaw mais Père Tafa Gueye ma teq auzubillahi mina moo fii saytaane amu fi kii ñoo ko personnalité fuuf mu naan saytaane rajim fii ba ndënd yi jibee ñuy woy di fecc la fi saytaane jóge waxal leneen gannaaw ban sante yàlla suñu borom bi dañuy julli Seydina Muhammad sant suñu ñaari waajur du nuyu mbooloo bi toog fi ñëpp du nuyu ak lu làmb du nuyu ñi nga xamante ne tey nii ñu ngi si yi toog di seetaan combat bi di seetaan eh, face à face bi di nuyu waa Fass mi nga xamante ni tey jii nii mën naa ni combat bi ñoom dañ ma sas tey jii nii li may wax rek mooy que du ma wax lu bari parce que dama naan tey jii am na ñoo xamante ni ñi bi nekk ñu bari peut-être xamuñu ma comme xamuñu ma nag su combat bii nan may xamee. kenn du la xam liñ lay xamee mooy ma dóor la ba nga ne waa li nga dem ñibbiwaat. moom moom instant bi dafa toll ci neexal. non retour bi nga def retour bi nga def baaxul ji Tapha Gueye bi muy retour daa jël ci booy di leen nax di dox seen mayen yow nag da ngaa retour fekk la jàppoon xaw laa rey nga ne da ngay def retour ci moom jii da ngaa juum man du ma ku nuy retour ci moom man trois victoire laa jóge du ma ay ponkal yu la mën fuuf jii billaahi maa la mën xam nga dañ la laaj léegi-léegi nii wax ji li muy bari yëpp dañ la laaj ku daan man ne la Tapha Gueye jàpp sama tànk ci biir géew bi kuy bëre kay kuy ñaar ñaari nit man damaa mën a bëre ñaari nit laay bëreel Cheikh fii nag Dakar la amut lool de. li ma la mën a wax si gàttal. waaw waxal ma dégg. li ma la mën a wax si gàttal. maa ngi lay dégg. wallahi boo yaakaar doo combat bi dama ko jël pour foo. waaye man waxuma foo ma kan mooy foo kan la ñuy fay xaalis bu weex tàll ñoom Baye Ndiaye ñii ak Aziz jël xaalis bu weex tàll fëggu ma jox ma ko ma gis ni ma leqali ko bu man la jàppee nga xam ne man foowu ma foowu ma de foowu ma foolawu ma loolu moom bu la leeree nay sa jàmm ay affaire yu ñàngal ak di yëngali bopp ak yooyu man bu jinne sax bëri naa ñoom yow xam nga loolu man lii ngay def safuma ñëwal ñu dem teel a cinq. waaw li ma mën a wax rek mooy que su ma nuyoo sa kees nuyu grand champion Eumeu Sène du nuyu monsieur As Ndaw Ndoukoumane muy sama patron du nuyu waa bureau bi yëpp di wax ni Cheikh man du ma kaf du ma ree. bilaay di nga ah wax lu bari. Ah, non non loolu garaawut ñun dañuy kaf di ree te bu ñu jàppee duma la daan la ñun dañuy kaf di ree jili ñun ay muñóoral ak ay mer yooyu kooku yow la concerné. man damay kaf damay ree te billaahi dama lay jàpp duma la daan la bu dee lu miti maa la ko gën a dem. waaw ah, léegi Cheikh xaaral léegi dama bëggoon nga woote ci benn minute moom mu woote parce que kii comme ñun rek dafa am xam nga euh, jabaru woykat ji euh, virus wax bi day ñëw yow léegi woowal ku la neex rek après ñu ñëw. parce que bi dafa xaw a bari. non man ni ma mën a wax rek mooy maa ngi jox ñëpp. Uh-huh. maa ngi jox rendez-vous ñëpp le 5 incha allah. jërëjëf Cheikh. may moom moo woote man man moom damay woote. maa ngi woo Habib ñaabu Thiès. sama sama Habib gis nga combat bi. waaw jiile dafa teel dama koo jël di foofu man foofu ma de. non kii foofu de barki Seydina Mohamed. billaay bu ma ko jàppee mu xam ne foofu ma damay woo Habib Niang ah, bu Thiès. di woo Habib Kane bu Thiès. di woo Zo mbay boroom kër Mousso. di woo Alsane mbay sama tonton Alsane Mbaye griot bi nga xam ne géwél bi nga xam ne géwélu VIP la. di jàppale ñëpp combat bi combaam la Alsane Mbaye ah di woo Pape Modou Fall ah directeur de l'emploi dóor bi waaw di woo ah, di woo Saliou Dieng Saliou Dieng sama xarit baxaw borom yow lii ngay def nii amul solo lii ci air bi rek koy sànni di woo Saliou Dieng borom alwaxit compagnie di woo Serigne Mbacke borom état sama xarit Mamadou Lamine Masali di ko woo di mu jàppale ma ci combat bi Abdoulaye Dieye directeur aéroport maa ngi koy woo di suñu lépp di léppi Thiès ñu ñu ngi koy woo may ma may ma tuuti ñamal ma ci ñamal ma pareegu ma ñii ñooy jàpp ci affaire yi ma ne ñii ñooy jàpp ci affaire yi kii man man dix personnes laa dóor ñu daanu jili mi dóoram yi kii su ma ko dóoree damay ragal mu gaañu may ma may ma eggale fii ah dinaa eggale eggale acca léegi Malick Thiandoum problème bi mooy lii ci signature bi la bokk ci la bokk Malick dóor na am kilo kilos. ah déedéet c'est déedéet léegi jiili mbay moo ëpp na loolu ëpp na loolu. léegi xool leen bu baax a baax kuu bi. bul samay kilo kuu bi Malick ay kilo lañ koy nattee par kilo. ok à à cinq eh! la ilaha illallah. doorul de cinq cinq cent cinquante kilos. cinq cent cinquante loolu lay pesé frappam. kilos. non non Cheikh. Cheikh waay kaay fii waay. saay xoolal ça c'est un contrat ñëw leen seen détail yi waay. eh dóoral mu dal. dóoral arrêt arrêt de trac. eh yow yàq nga machine ba yàq na ko eh. yàq na ko. laay yàq na ko.

kon loxo Cheikh Niang moo gën diis bu jiili. ci ci ci nii. ci këf kee. ok jërëjëf. <laughs> voilà c'est bon. léegi bu si te la ñuy woo. du woo Zandir Zandir maa ngi koy woo. du woo eh may ma nag. waaw Cheikh dimbali ma ah, dama lay invité. waaw laa bëgg woo. ñoo bokk Thiès maa ngi koy Cheikh Aziz Ndiaye. ok Aïssa Rasoul baa ngi noonu. man maay sa càmmiñ te maa dëkk Thiès di goro Aziz. kon maa ngi lay woo ci. Malick combat amateur yi. waaw jërëjëf combat sénégalais yi. combat bi ñëpp di xaar. mooy ban. combat bi nga xamante ni nii mooy combat bi def peuse ci peuse yi. waaw mooy diggante Bou ak Tapha Gueye numéro 2. Bou Siteu. Oh! Bou Siteu. Moustapha borom Dubaay. xale bi xew ci jamono Moustapha Gueye numéro 2 Tabaxar jaajëf fils ye kooku mooy Bou Siteu Malick. ah c'est un phénomène ce garçon. Malick est-ce que xam nga dafa ñëw pour pour li. Ah? ndax kii. ah. dafa jël Laurent. Laurent Ndiago men. ñëpp naan Moustapha Gueye fa lay retraité. waaw. mu daan Laurent. <laughs> bu ñëw ne ko. la nga am ci booy boobu man maa lay freiné man maa lay yóbbu retraite. Mhm. Moustapha Gueye numéro 2 toog ci plateau. waaw. ne ko musoo tukki eh. nga ne ko fan nga demoo Dubaay déedéet bi mu la nee musoo tukki nga ne ko foo dem ngaay nga ne ko ngaay booy baal sama dëkk yàlla di dox di def di def ba nga jël avion dem dem Dubaay de ngaay à Dubaay de ngaay léegi sénégalais yi li ñu bëgg xam mooy laata dara di xew mooy avion roplaan bi nga yéegoon di dem Dubaay nu ba pare avion bi nga duggoon nu tudd compagnie bi nu mu tudd yëkkati avion bu nganda bi rek mooy ban non nu tudd avion bi mbëkk neige rek boobu boobu di mbëkk neige xam nga xam mu tudd immigré immigré immigré waaw immigré immigré la yéegoon mais ma déedéet immigré waaw immigré gi <laughs> Moussa waaw ginnaaw bi ma sant yàlla julli seen bi di sant samay ñaari waajur di sant waa géejawaay di sant waa Tiwaawan Pël fi ma jugee di nuyu àdduna di nuyu waa géejawaay ñoom ñëpp waa di nuyu waa cité nomara bi ñëpp Tiwaawan Pël ndax ñëpp a ngi préparé combat bi di di nuyu tamit jeunesse bi te parce que Bou Siteu ñëpp xam nañ ni Bou Siteu guddi yi jeunesse bi rek lay topp jeunesse bi tamit Bou Siteu rek la ñuy topp niveau bi kawe na waa niveau bi yéeg na dem na Dubaay avion bi di mbëkk nees yi yeneen ak yeneen xew fa ku si mel ni loolu nag bu amee waaw ah non dawaluma oto fan yi lañ ma dig oto gisuma oto bu ma kër bu ma benn kilifa waxati bu ndaw lay may oto damay toog si télé bi naan diw neen dina ma may oto ñu tas sama yaakaar bu ma kenn ah non man awma oto awma oto te Aziz Ndiaye xam na ni sama niveau instant yi dépassé na ay moto loolu leer na Aziz Ndiaye bu baax waaw ak buraax di ziar Eumeu Sène bi nga xamante ñoo bokk mbaaw di ziar Sakes di ziar Momo di ziar mbër yi fi toog yëpp di leen jox seen wàccu waaye di leen wax ne am di la lii mooy culturel ñun lii làmb culturel xam nga làmb bu nekk amee culture bi bu ñëwee sabari ñëw dàkk ki ñëw jigéen ñi ñëw di way day nekk culturel kon làmb ñun dañ ko bëgg moom la ñuy ba tey nii waaye kii combat bi dafa toll foo xam ne dama ne ba damaa tiit ndax coow li moo bari ci man fu ma tourné école yi booy bi buur sutee ngi ñëw buur sutee ngi ñëw te xamuñu ne kii su ma ko jàppee rek mu xam ne maa ko gën a gaaw non te ngay bëreel jeunesse bi yow xam nga ni ba ba mbaaw fi nga dëkk sax amoo jàmm jeunesse bi koo dajee man maa gis lépp non c'est ay xale lañ man ba bëri ñooñu fekkewuñu ko mooy loolu comme yaa xew comme yaa waaw dama ñaan yàlla suñu borom waaw noonu la demee mais maanaam seen seen genre yéen war a bàyyi di ñiit làmb <laughs> yow heure bi waroon na la fekk nga zibilé Zallo ngi nii yaa ko njëkk a bëre fuuf te Zallo zibilé na xam nga nga bëgg a nekk ci lamb di ñiit làmb bàyyi leen di ñiit làmb problème bi bi mooy non ah. bi mooy ma normalement kii problème bi ma la xam bi ma la bëgg xam nga nag waaw ah. keroog wax ah? fi wax bàmmeel waaw na ma da jënd bàmmeel ma ne la bu ma wax ci ay jënd bàmmeel waaw dégg nga yow boo jënd nga bàmmeel jënd nga bàmmeel o jënd bàmmeel non yooyu bu ko lijjanti man xale laa <laughs> ah, on a def vingt quatre ans xale bu ndaw laa man maa leen booy man munoo ceeñ sama maayen man instant yi booy damay làmb de instant yi ah, affaire comédie yi fi jaaroon ni loolu jeex na de instant yi damay làmb làmbal jeunesse bi dañ maa yónni yàqamti ma te du yee Malick Alburax bu ñu amee combat tëggal ko waaw dafa am ñuy ànd ak Aziz Ndiaye waaw ñoom Malick bëgguñu sax ku de seen ndax ñooñu ñu ngi ne toog gis ay ndaanaan lañ ay lañ dañ même boo jëlee avance dañ naan la naa la ci yokkal lii ndax jàppale alburax ndax ñun lamb rek la am lamb lañ ñu am mais kii dina xam ne bàyyi naa ko bis bi mu jël bis bi jël jeunesse bi jël lépp ma jël amateurs yi man amateurs yi laa mën a jël xam ne su ma jëlee amateurs yi jeunesse bi am na ñoo xam ne sax mën nañu may dugg mais amateurs yi moom la ñu xam lamb xam heure ba ñu ñëw xam heure ñuy toog xam heure bu ma ko mais est-ce que xam nga ne xale bi caaxaanewul làmb non caaxaanewu ma ko man combat bi du non dama bu may comédie du combat bu may foo bu abi bi di sifflé di nga xam ne dinaa dal sa kaw naa la dóor dóor yi métti lu leer laa la wax yow yow yow boo waxee loolu sa gaañ lay dee dañ may ree yegg si ma seen mii di ma seetaan sax xam na ni abi bu bu poussé suñu diggante wala ma teg la lu métti dama jaar king boxing te muusoo jaar king boxing te ñëpp gis nañ li m xeex si si dëgg la Malick ko fa reporté a la xeex yi ma fa xeex dëgg la Malick dama nekk sax mbaaw dara laay na ma saal bi box king boxing lépp def ko ci saal bi ndax boo yooyu fa nga wan leen yàlla dàq bëri yàlla ëpp niveau ci bëri waaw waa léegi Malick Malick nattukaay baa nga na le waaw eh kaay leen nattukaay ba ñëw leen kaay gërëm waa as du ko man bu baax di gërëm Mouhamed di nuyu as bu baax suma papa. Moustapha di nga gërëm kaay suma papa borom original yi nattukaay bi kaay. sama niveau dépassé na yenn boisson yi. léegi original rek lay topp. ok da nga koy naan di saqami. wuli de am na téeméeri junni. Boucher am téeméeri Boucher ñaar laay laal. oh non non man gàtteewu ma noonu xel. cinq pour Bou Siteu quatre pour Bou Siteu trois pour Bou Siteu. deux pour Bou Siteu top départ ñe affaire ba yàquna na affaire ba yàquna na affaire ba yàqu na ñetti sept Moustapha Gueye numéro deux cinq pour Moustapha eh may ko cinq pour Moustapha pour Moustapha trois points yàqu na yàqu na yé yé yé yé yé yé yé yé yé xaara Moustapha Gueye six cent cinquante cinq kilos nga sama niveau dépassé na genre niveau yi sept cent soixante-sept sama niveau yéeg na six cent cinquante cinq non niveau bi na niveau bi yéeg na yenn bi yéeg na six cent cinquante cinq. lool loolu boo leen di wan ne kii. niveau yi du benn. niveau yi du benn ba pare kii day yëy guro ba léegi. waaw dama yëy guro ba yi yëy guro dama koy yëy dama koy boxoñ. parce que man sama niveau dépassé na bëre koo xam day yëy guro. buur ba tey dama yëy guro rek nga yàq. bilaay garaaw barki Serigne Bamba. waaw gis nga bilaay niveau yi bokkul. waaw di di di woo suma papa Abdou Aziz Ala Ndiaye combat bi nag Abdou Aziz Ala Ndiaye man. waaw kam ka boobu léegi woo ma pour ma signer Zador sama papa fan yi woo na ma ma signer original mu defal ma contrat six mois sama papa as ndaw ndukumaan borom original koo xam te ni si région yi fépp foo dem boisson baa ngi yëngal dëkk bi waaw boisson niveau sama niveau yéeg na temps yi sama papa as ndukumaan rek lay topp <coughs> waaw di sant Go Faye di ko woo ci combat di ko wax ne combat bi nag soxla naa dix bloc te parce que jeunesse bi ñëpp sama koñ la ñuy déparé combat bi sama papa as ndukumaan diis bolok laa ses si combat bi goo fay noonu goo fay futur président waa maire parcelle nekk nit koo xam nit ku baax la ak ku si mel ne asña borom tabax cargo waa asña PDG di ko sant bu baax suma papa suma lépp di nuyu pap sekk bu baax ak ku ci mel ne Habib yee Ahmed borom noo Carolina ñoom ñëpp maa ngi woo ci combat bi waaw combat bi daal maa ngi woo ñëpp di si woo suma papa tamit ah ki ma yóbbu woon Dubaay mënu ma toog fii te du ko tudd waaw suma papa suma lépp waaw ñu koy wax Jéeri Joor Ndeela automobile waaw borom Dubaay suma papa suma lépp maa ngi koy sant bu baax waaw di nuyu àdduna daal di woo ñëpp sama làmb ji yee waaw maa ngi ñëw yëpp ñëw ci signature bi bu jërëjëf xam na Bou Siteu combat moom wax bii la ci lii la wax bii la ci am li ngay wax nag bu yëpp nga wax ko fi tey te xam naa dinaa toll foo xam ne ci su ma takkee jóoloo yi su ma dawee cent mètres su ma ñëwaatee est-ce que ndax ma xamee wala da naan ndax kii Tafa Gueye la wala du moom barki Serigne Salim Mbacke bi la gis nga gis nga gis nga gis nga gis nga gis nga gis nga maanaam maanaam maanaam maanaam yaa nañu yàlla dafa jàmm maa ngi woo As Dukumaan nag di woo Aziz Ndiaye di woo ñoom Malick waa Arbouraax event ñoom ñëpp ñu ngi ne toog ay ñoom Baye Ndiaye Aziz Ndiaye moom mënu maa ko ñàkk bañ a woo ndax Aziz Ndiaye maam moom Sandaga la di ba ma déggee Lonaas du ma nuyu directeur ba damay ne monsieur Guèye secré secrétaire général di Lonaas sama xarit bi nga xamante ni moo dëkk Sangbaaw maa ngi laa ziar di ziar grand laay bi nga xamante ni moo nekk salle ba def sport bi nga xamante ni grand laay dana ma entraîner king box sax ndax booy dañ bari wax maa ngi gërëm borom pool pool diis si saw maa ngi lay woo ci combat bu baax borom pool di woo tamit ku si mel ni Habib Ba waaw waa Port mool 1 ñoom ñëpp ñoom buuba ñoom ñëpp maa ngi woo si combat bu baax nangu na xam nga non merci waaw acca waa rapidement njaboot yi yëpp laa gërëm di gërëm waa Zac Mbao yëpp di gërëm Modou Café gars ñoom man ci gars bii billaahi walaay talaahi dinaa ko spectacle ba mu neex ma ma andi nit au sol. Diaw 2 dix mille problème ana Diaw ana dix mille problème. ak dix mille problème. dix mille problème. kër Sa Thiès la jëm na ko dédié nee na kooku mooy jaw de ana dix mille problème kaay nii dix mille mooy ñaata ah, ah. ci wolof loo ci séeréer ñaata problème la gis nga nag ay problème yu dul jeex la loolu loolu <laughs> problème yu bari la baree bari la acca nee na dix la ngi nii dix lay équation bu nga xam ne équation à dix mille inconnu la la indil ok onze billahi mina tey tekk la laaj quoi ginnaaw bi ni sant yàlla julli si yonente bi santaal suñu ñaari waajur ñu ngi nuyu na Canaba Seck gépp du nuyu waa Canaba Seck bu gépp di leen ñaanal jàmm di nuyu xalifa bi baay Assane di ko ñaanal yàlla na ko fi yàlla yàggal guddal fanam si barke Yonent di nuyu waa Pikine gépp surtout waa quartier yeewu di ci nuyu ko mel ni Victor Abunaar ñoom papo yu borom jën yu baax yi di nuyu ñëpp di nuyu Eumeu Sène borom Pikine di la ñaanal le jour si yàlla yàlla may ndam di nuyu Pokola aussi di ko ñaanal ndam di nuyu sama adversaire waaw gannaaw ba ñu sante yàlla julli si Yeesu Krista di nuyu mbooloo mi si teew yëpp ak ñaari leader yi waaw di nuyu di ñaana sama doomu ndey Sa Thiès yàlla may ko ndam waaw di bëggee champion yi fi teew yëpp waaw di nuyu plateau bi Malick ñu leen di bëggee di leen ci waaw di naan saint carême saint temps de carême sama mbokk yi waaw ñu dugg see jàmm génn say jàmm di nuyu sama adversaire waaw. waaw di bëggee sama staff rawatina ñu ma ànd ak ñoom moom laay ñoom biram ñoom soos waaw di bëggee géejuwaay bi yëpp rawatina famille Baye Alain Ndiaye Alburax Events ñuy jaajëfal di rafetlu teewaay bi rafetlu bis bi di ñaan yàlla bu ñu si jàmm ñu gën seeg jàmm incha allah. cinq lan nga nar sa diggante ak dix mille problème lan nga ko nar a indil. waaw incha allah rek comme ni ñu doon waajee yenn bis yi rek waaw ndax bëri ci bis bi si ñaari leaders yi booy xool bi ñuy duggee ci làmb ñaar ñii luñ luñu lu ñu marqué seen empreinte moo tax ñu dugg ci. ñu ciy rey suñu bopp saa su ne ndax bëri ci bis bi rek du ñàkk fayda du du dara. Mm-hmm. au contraire jàmbaar la. jàmbaar la voilà di di di sama adversaire mu pare rek xam ne tamit lu ne mu ngi koy xaar côté yépp lan moo koy xaar. no man sama lamb du yàgg Malick. ah vite fait bien fait. vite fait bien fait. yaa ma ko jox rek. waaw boobu de maa ko waxoon. voilà dix mille. nee bien fait di nuyu waa Thiès yëpp. waaw affaire moom jërul làkk français waxal olof gi nga dégg rek. di la xamal ni benn dàqoo maa bëre ëppoo ma doole su dee lu gaaw la rek man maa raw melax sa kaw. te le jour di nga xam ne lépp dëgg la incha allahu rabbi du nuyu waa kees yëpp du nuyu Baye Fall yi jaare ci woote woo ñi nga war woo waa di woo waa Caraba Seck yëpp di woo autorité yi ku si mel ni Talla Diagne nga xam ne chaque sama combat da ciy jàpp bu baax parce que ba ma dalee commencé bëri ba léegi day jàpp samay combat di woo waa Pikine di woo Abdi Ñing di woo Mbacke Diagne mu dëkk suñ ginnaaw kër di autorité Canaba di woo waa Canaba sekk gépp di la wax ni bay boo nga waaj bu baax yaag say mbokk barke alxuraanu karimi billahi ñëwuma ci combat bi pour daanu jouru combat ba sax suñ tegoon que la gën a doon niveau dama koy duma dama koy daan. ayca wooteel. waaw di woo waa Guédiawaye ci bis bi. bonsoir à Bouba Ndour moom ngeen di gis noonu en arrière plan tey bi fii la. rawatina sunu ministre des sports Lat Diop di woo ci bis bi ak sama PDG Bamba Kane ak Paa Mama suñu président rawatina waaye ko dulit Balla Gaye yëpp ñu leen di woo ku ci mel ni suñu sunu coach Lamine Golo waaw di woo Guédiawaye yëpp du ci. ASC jàppoo samedi rawatina Kër Massar mooy sokkeekoo Malika Montagne waa tund bi yëpp quartier Taïba 2 Amadou Dia ASC Juboo ASC Mbooloo lépp lépp ñu leen woo ci bis bi ñu ñëw wax nga mën ci làmb ji wallahi barki Yeesu Krista daaw man du waade mais yow sa jëm bopp xam nga ne am nga combat. kan moo gën a diis loxo yéen ñaar voilà ku gën a diis loxo. kaay kan moo dàq a dóor kaay ku gën a diis loxo indi micro booy. ndax mën a dóor kaay Malick am. demal taxaw fële. voilà xaw ma kan deret ji laal la de. oho moytu ko de léegi. jaw <laughs> deux cinq ah, xoolal à zéro tu dep nga départ et eh, kay taxaw ni caméra bi xool Malick. jaw deux Malick xool caméra baa ngi ne la dañoo bëgg xool. jaw deux on décompte cinq pour jaw deux quatre pour jaw deux trois pour jaw deux deux pour jaw deux top pour jaw. yee yàq na ko yàq na ko yàq na ko yàq na ko yàq na ko. te dóor bi daa mooy. six cent vingt six. kilos nee dóor bi daa mooy da koy reprendre. da koy. da koy reprendre nee na daa mooy dalul. xaaral nee na dalul six cent six cent. kilos six cent kilos yi. nee na dalul te yow nga xam deux kilo cinq cent cinq. yow man man. ok ñu dem cinq quatre trois deux un yé yàq na ko yàq na ko. yow waroon ngaa jël boobu de. mi ngi ci sept cent quarante six kilos pour jaw 2. sept cent quarante ñu ñëw ci dix problème. mais mais mais est-ce que xam nga ni moo fi gën a diis loxo. pour l'instant kaay ni kaay ni kaay ni. sept cent soixante moo fi gën a diisagum loxo. attention gannaaw Malick Thiandoum deux kilos cinq cent. aca cinq pour dix mille quatre. pour dix mille. trois pour dix mille. deux pour dix mille top pour dix mille yee yàq na ko. oh dóor bi dalul. non dóor bi dalul dóor bi dalul dal na de ni mu ko dóoree dalul dalul. dix mille six cent cinquante trois kilos. six cent cinquante trois. kii ñaar la am cent. sept cent quarante six ak six cent kon. kii la ko ah, dix daa mel ni moo gën a dix loxo. kon dix bi fii la. mais bu bés baa nag ku njëkk a que bu yee beneen combat rapido presto léegi nag Malick Petit Lo oh. Petit Lo Malick combat bu neex la xale bu xale bu safa googu diggante Petit ak Mbaye ay ta ana Mbaye Tine Mbaye Tine ñëw ko mu yëngatu wax dem dóor dem dóor nga ne waxaatal tëgal ko mu yëngatu wax dem dóor ata ren gi kañ jërëjëf petit loo ñëwul information non xam nga Modou ma nga Gambie jamono jii ah ko yóbbaale daf ko yóbbaale waaye nag dafa am contrat daa waroon waaye nag li ma la mën a yëgal Malick waaw mooy ku ñëwul fii ah. le cinq di nga ñëw ayca aca mbay moom na woote rek jarul ngay tëkku Petit Lo jarul ngay wax ak ku fi nekkul wool ñi nga war a woo jàkkaarloo ak caméra yi après nga dem dóor moom dina gis ñaata kilo nga am mais Sokh Couture maa ngi lay nuyu bu baax sama waajur yàlla jul si yont bi ci nga génn noonu samay ñaari waajur di sant waa Géejawaay ñetti mbaar Baxdaad Gouga Petersen Colobane ñàgg di sant sama grand Lirou Diane di sant baay Ndiaye bu baax baax di ko wax na yi ñaanal Baye Ndiaye mi ngi doxal làmb ñu koy ñaanal làmb ji moo xam lu ci bëgg yàlla na ko yàlla def. amiin di ñaanal suñu grand Aziz Ndiaye di ko woo si combat bu baax a baax mu jàpp si di woo sama grand la Gaye 2 barki di dama toog ba si yàgg mu woo ma non mbéytin yaa ngi entraîné ma ne ko bu baax. munuma làmb ji nekkul làmb jooy caaxaane dëgg la ma ne ko si kattan yàlla Omar la cinq sa xol dina sedd mhm. maa ngi bëgg Sa Thiès baax a baax di ko ñaanal ndam ak mbëri géewaay si bëri yëpp di ñaanal ndam waaw Pedro nag aw ma leen lu mu koy wax comme ñëwul le jour ji waaw le yi xam naa dina ñëw comme te xam nga tëkk na ma fépp partout dans la monde pour sama pour mën ak moom suñ combat taxaw kon tey waroon naa ñëw quoi mhm. père man dama jaaru gars yi kenn wallaahi

damaa bëgg mu a gaaw rek waaw day gaaw fët-fët la aca waaw maa ngi sant sama grand bokkum botee salim bokkum botee salim dama ma fayal salle musculation ok yaa may dégg deux mois la ma fayal bu seet la ma yóbbu fayal ma fa maa ngi koy sant bu baax a maa ngi sant xoolis maa ngi koy sant bu baax a baax borom masor yi Ibulaay Fallu maa ngi sant maam góor ah, góor yombul tisi ak xalil soob sama doom yaay maa ngi sant Modou Diop borom siin maa ngi sant may sa sant yàlla guddi gi Andaw Ndiaye maa ngi koy woo si combat bi Ndiassé sama xarit Raku Andaw maa ngi koy woo si combat bi Bédi Ba maire bu Gunaas maa ngi woo Fouta Kosom As Géwël sama tambour major Lat Diop maa ngi koy woo si combat bi musaa Fall bu Sa Thiès sama xarit sama doom nday maa ngi koy woo si combat bi maa ngi woo Malick Gakou di woo sama doom nday MP Momo Kolobane Birane Kolobane Cheikh Ndiaye Peter Sène maa ngi sant Cheikh Thiaw Abdou maa ngi sant Mass Sandaga Ndongo Kolobane Lébu Sine Diouf Fouta Abdou Karim suma rak tin bu mbasis abubu Louga Modou Safoor kun suul Jine suul ama seexu naa di woo Bamba sama doom ne borom États-Unis ñoom Pamar ñoom ñoom Ahmed Lo sama gaay ñoom sum maa ngi woo Babacar Mour la maa Jamil Nourou la Jamil Samb sama xarit la maa ngi koy baax ci combat bi jéeri coach maa ngi koy woo Fallou Parkin Tamis Diop maire bu ñàgg maa ngi koy woo ci combat Moussa Jalama Laari Ndiol di woo Balla Gaye 2 Aziz Ndiaye woo Omar Mbay bu la Jóob maa ngi woo sama coach Yirim Kaw Mbéri Xaadim Fall maa ngi woo Iwulaay Fallu maa ngi woo ñëpp perma ñi may jàpp dafa bëri demal dóor yi demal dóor yi xoolal boo paree dama lay jox nga gërëm non boo paree dama lay jox waaw doomu roi des arènes lay bëril yaa may dégg doomu mbër la yaa may dégg dafa am jàppale man tamit ñi may woo ni ñoo may jàppale yaa may dégg waaw noonu la fa demee nag ayca bismillah boo dooree ba pare nga ñëw aca aca may gërëm Malick borom Sokk Couture fi nga génn nooy na 77 597 07 52 77 597 07 52 merci jërëjëf ayca léegi Mbaye Tine nga nga départ cinq pour Mbaye Tine quatre pour Mbaye Tine trois pour Mbaye Tine deux pour Mbaye Tine top yée yàq na ko yàq na ko yàq na ko yàq na ko yàq na ko yée mais Malick. 765 Malick est-ce que xam nga ni kenn rawagu fi Bou Siteu. 777. Malick est-ce que xam nga ni kenn rawagu fi Bou Siteu. Malick est-ce que xam nga ni kenn rawagu fi Bou Siteu 777 ñetti set. Omar Baas nuyu naa la sant naa la gërëm naa la grand Jules. Papa Bari Bari ak Souleymane Sy Papa Bari Bari moom ak Kirikou Kirikou est petit mais grand Kirikou est petit Kirikou allez supporter yi waaw Papa Bari Bari des hommes waaw ay momo général bu mag bi oh xam nga xam nga Malick luy problème am mooy luy problème am mooy lan mooy problème oto yaa ngi koy bëgg a rey ah moom oto oto yi ñi ngi koy bëgg a rey dañ koo war a wutal loo ko fay mu jëlee ko oto ñëw wallaay ndeysaan Baye Ndiaye jàppale leen sama doom ji mu am ndax mu am oto jàppale leen sama doom ji mu am benn van sax van sax bu muy déparé di ñëw loolu du dara loolu Aziz dina ko def moho la ilaha illallah la ilaha illallah tiriku mu dégg de jaajëf jërëjëf Kirikou kaay Kirikou papa bari bari mais Malick combat bi quel combat combat bu garaaw la quel combat auzu billah bismillah inna walillah jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba du Touba di jégalu sànq lu fi jote am quoi amaana lamb la rek kenn xamewuma lii barki Serigne Bamba mais lamb la ko waa maa ngi jégaluwaat ñëpp billaahi di bëgge waa Grand Yoff but ba but cat ba cat di bëgge waa Ziem xam nga parcelle yu Cameroun di bëgge ñëpp daal ginnaaw ma sant yàlla julli di sant sama ñaari waajur di wax jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom di nuyu waa bun di nuyu bu waa bun moo jóge maa lay nuyu di bëggee sama gaay maa di bëggee sama papa Bourignan di nuyu waaw sama ménager Fall waaw di nuyu sponsor yi si làmb yëpp sponsor yëpp ñu ngi leen nuyu bu baax baax baax baax di leen waaw di leen ñu teg seen loxo bu ñu ko bàyyi waaw nañ jàppale Baye Ndiaye naa combat bi mooy combat amateur yu bari ne nañ ñaar seen combat dina neex dina saf ndax mën ngeen garanti loolu ay ca papa bari bari waaw boobi booba léegi maa ngay seen si laan bi muy ndellu di dagg yaramam di gaam boppam baa gaañu woo bërëdë biir yooyu de bi baare baare bi la jàmbaar si biir jàmbaar yi barki Sëriñ Bamba boobu daf ma xeeb quoi ma looloo ma si gën a métti looloo la métti daf ma xeeb pourquoi mu war la xeeb yàlla baax na yàlla ñu yàlla defaral jàmm waaw dama tuuti barki Sëriñ Bamba gis nga bërëb yi nii bu ñu dalandee dina xam lépp dëgg la amaana ay mbir baax a foofu muy gàmm boppam di ndellu yaramam rek ba jouru combat bi kon yow da toog di xool ay ay bagage am bay xam mi ngi mbel ak mi ngi def leneen. seen woon dañ nga invité plateau muy toog di wax rek di mbéj mbéj di mbaca caci ah di përee gauche droite boo nakaree fas ba ma laasfeer la ala yaa kàncooli bi ngay jëm te bu la jagal yabalee si seeraas bi di xam xam lépp dëgg la booy defal nanka rek di yooyu de lii li def ni rek la si am amu si leneen amu leneen lii kese la si am wax ji kese la si am waaw kese lu muy woote na ko woote fii gërëm na ko gërëm fii kii bi su làmb jaay mu xam ne maag du maag moom kii ñooy bëri ñoo ko gën tàng fuuf ñoo ko bu doole ñoo ko mën kii mën a moom du làmb mais kon moom li muy wax da koo xeeb dëgg la ban suñu bamba xeeb moo nee na da koo xeeb moom dara fatal ma foofu laa ko idée bay dóor mu daan mu ñibbi foofu gars yi nee na naa ko nit ma foofu rek bu desee lu dul ñame bu desee lu dul ñame geer ñame dee di nga xam ne ah. barki Serigne Bamba kuy xeex ak dix amaana benn nit du la jaaxal. yow booy da dof. ay bu subi yow du maag yow booy. du maag yow. sama sama yow seetaan nañ ko musuma arrière. te arrière eh, seetaan eh, xam ne yow. Eh, di nga yow ñu ngay bëral ku gis na leen de. waaw léegi ñoom ñoom ma xeeb comme yow. ma xool sama combat man yow dama ay saabu yoo la daan du maag yow du maag yow. defal naa nga rek. booy du maa yow. di nga a piccin nag mu lakk nu ñu koy waxee nu ñu bu bëree yow sa bopp. dafa bi suñu ma dóor nga daanu. voilà loolu demee taxal ñu guerre. ma dóor nga daanu. taxal ñu guerre laa la wax. kuy xeex lu ngay gëm loolu loolu. booy lu ngay gëm loolu loolu. toog maa ngi ñëw nga da ngaa naan ko man Issa nga ne entraîné sax. dama dama la dama yaa ngi bàyyi xel nag eh, ay ay dugub yu rafet. Eh. yow booy yow yow la. jëlee sa liste jëlee sa li nga mën waa jeex na jeex na ba le cinq bu cinquee dina leer na na caméra ay gaaw nag ba ca gaaw naa bu baax a baax bàyyi ko mu woote Adama fay maa ngay woo di ko woote si combat mu ñëw jàpp si Ousmane si jas ñaar maa lay woo doomu nday maa lay woo nga ñëw jàpp si bu baax a baax Ousmane Sarr l'international maa lay woo nga ñëw jàpp si bu baax waaw Pape Madiop suñu maire maa ngay woo mu ñëw jàpp si bu baax a baax Aziz Ndiaye ma lay woo si combat bi lii laa sol Zador yaa ngi gis caan bi sama père moom lay utiliser tey sax ceebu jën bu saf lañ si togg maa la ciy woo ñu ñëw jàpp si. jaajëf waaw Pape Malick Ndour maa lay woo. amaana grand combat bi rek ñoo may ëpp mbooloo incha allahu rabbi Pape Malick Ndour ministre de la jeunesse maa lay woo bu baax a baax nga ñëw jàpp si Mansour Ba maa lay woo nga ñëw jàpp si bu baax a baax père Ba maa lay woo si combat bi ñëw jàpp si bu baax a baax a baax Aliou maa lay woo. si combat bi King Saliou sama waay la Laye Keita maa ngay woo bu baax a baax mu ñëw jàpp si bu baax a baax sax Badara Kébé maa lay woo si combat bi bu baax a baax Angel Fall maa ngay woo pour de production moom du ma ko woo combat bi combat am la sama grand la sama lépp jërëjëf bàyyi ko moom it mu woo ma tuuti jàpp si rek ah, Pape Sarr sama grand maa ngay woo waaw Ndiogu Ndiogu Mbaye maa lay woo si combat bi nga ñëw jàpp si buuse combat bi sa combat la di la yóbbante ah suñu grand mu jàpp si bu baax a baax waaw di bégewaat sama yaay bu baax a baax di nuyu sama baajan yu nekk Kër Massar ak sama baajan yëpp di woo sama waa dëkk taaxum Casamance foo ñi sama waa dëkk maa leen di woo waa Joal ñoom ñëpp jërëjëf waaw léegi bàyyi ko mu woote après nga dem dóor waaw woote nga jërëjëf te dóoru leen maa buun woo waa buun fu ma di woo waa buun di woo waa yëmbal di woo waa ñaag di woo waa maami lool di woo waa Tivaouane Peulh di woo grand xalifa loo ñu ñëw si combat grand Mansour maa ngay woo si combat bi Talla Fall sama ndigaay maa ngay woo si combat bi di woo Cheikh Bara Fall waaw di woo Tafa Tafa ba doon France maa ngay woo bu baax yónnee na ma xaalis bëri moo waaj bari Serigne Touba mbaax yónnee na ma xaalis bëri di waaw Fall di woo Fall maam bu baax di woo Moussa Camara di woo Abdourahmane Leye di woo maire Jéréma Ndiaye maa ngay woo di woo suñu monsieur le maire Adama Sarr waaw ñu ngi koy woo si combat bu baax di woo Omar Omar bu Adama Sarr bu nekk si ginnaaw Adama Sarr nga wax Adama Sarr mu jàpp ñu ci liggéey man soxla moo dara waaw dañ jox booy ticket rek ñu dem di woo waa buur baax a baax a baax a baax Sa Thiès Omar Bass mi ngi lay dem leen ngeen dóor mais Malick ñëwul fii Matar borom LP coiffure maa ngi lay nuyu Malick ko fokkee deux yow yow boy ba li ngay wax Lamine léegi Malick kii kan la <laughs> kii kan la kii mooy kan papa bari bari bari na wala bariwul pour tafa xaaral dañuy décoté eh, boy yat bi bi waaw kay. tegal yat bi da ngay tegal feuille déggee un rek départal. papa bari bari. cinq quatre. trois trois. zéro. yàq na ko yàq na ko yàq bariwul de. yàq ko lii bariwul de. lii dóor bi baaxul de sa gauche bi. ma nga ca six cent soixante quatorze kilos. ayca. kii kan kiriku. Kirikou est petit. Mais il est. Mais il est grand. il a une bonne frappe. bu ñu paree Bourguel ak Fadam Tou ñoom ñooy ñoom ñooy ñoom ñooy ñoom pour Kirikou quatre pour pour Kirikou deux un c'est parti yé yàq 29 29 oh. laay laay la laa. kii ni koo ngi ci yaa yaa yaa mën. di bëgg nag waa PC Sabar une ba cinquante maa leen di bëgg ñoom ñëpp ak jël yëpp. jël yëpp maa waaw. léegi nag Malick. bi ñëw. ñaar ñi dàq dóor. ah Major Mario Mbaye. maa ngi lay woo si combat baax Major borom teen ma Mario Mbaye gis nañ li bu baax. jërëjëf maa ngi woo sama doom day sama xarit. borom teen ba maa ngi lay woo nga jàpp bu Malick léegi yaa ngi dugg ci komba spéciaux suñu ne spéciaux Cheikh ña koy gërëm nga ne Omar Seck waaw ak Samba Ndour Touba yow yow Ablaye Timbo ak waa Pikine waxi naan jaajëf jërëjëf Malick oxo problème bi mooy waaw ñaar ñiy ñëw nii ay bii combat man damaa ragal machine bii ah. est-ce yokk poids bi nar naa exploser diggante ordinateur. ordinateur. le champion d'Afrique. et. bu bul lambay nangu. ordinateur ak bul. waaw. ñu xaar ordi pare. bul l'enfant de Tivaouane. dana dina joor gaa bul. Malick xare bi toj ci waaw ngoog. Malick maa ngi gaaw de lu ma mën. ayca. bul. borom ci waaw. oh. la ordi. am nga problème ah? mais ordi am nga problème ah xaw ordinateur bi dina jël virus xaw du jël virus mais am nga waaju doy waar mbul mii Thiès laa ko seetaan mais il est dama koo reporté toj bëre di daan di dóor di bëre di dóor di daan waaye Malick ay ki mu am xam nga lii problème bi mooy oho Malick ordinateur bu dul jël virus mooy ordinateur bii lu mu gën a dijji que le dix. waaw gën koo arrangé. barki dem seetaan naa ko. mais dafa dem Niger. waaw waa Niger di ko tinu. sarax ñu bàyyi suñu champion bi mu daal. ngir yàlla ak yonent ay <laughs> waay mbul mbul combat bi combat bu lay relancer la yaa ngi daje kàngam ci wàllu làmb tout d'abord lan moo tax nga jël ordinateur di nga xamante ne ñoom laa àndal ci porte bi ku bu baax. kon doo yëkkati baat bi tuuti wala sax ba fàtte sa chauffeur. moo yaa ngi track de. eh ordi ordi ah, ah, oh. Ah. Albert. eh Liss léegi looy def ni waa Mbul tey jox la microbi bi bii moo gën a fort am. di nuyu ordi. saa dafa commencé jàpp kii de. xaw ma liw bi la xaw ma mi ngi fàtte sa bay fàtte chauffeur bi ayca bisimilah. mimi mimi mu ngi door a ñëw waaw mimi way ayca combat bi ordi ordi ci def virus. non loolu appareil maa ngi nuyu ñëpp ñu ngi teew di nuyu Baye Ndiaye di nuyu Habib di nuyu suñu mag suñu suñu Omar ko nuyu di nuyu gars yi fi nekk ñëpp bàyyi ma kenn di nuyu ñi nga xamante ñoo def seen nelaw ñoo teew tey mooy plateau bi yëpp di nuyu Momo di nuyu suñu jigéen daal ak ñu ma àndal di nuyu gars yi yëpp di nuyu sama supporter yi bàyyi ma kenn di nuyu sama waa tey parce que mais est-ce que xam nga ki nga jël. waaw bon. waaw waaw man samay affaire du ay wax jëf la. jëf nga gën a mën waaw. bis bi le cinq la nañ si yàlla yóbbu ak jàmm. mais moom poids lourd la non man poids lourd mooy sama affaire. ah moom nga gën a fort man 2012 laa commencé bëri poids lourd. ok nekk tout le temps. kon donc nekkul ne poids lourd mais doo ci xeex en tout li ma jàpp. waaw sama carrière combat bi mooy gën a nekk combat bi si a yomb. lu tax. loolu laa gëm. loolu nga gëm loolu nga liggéey waaw jógee si kii dama bëgg a jël ku gën a mais yaa ngi liggéey xeex. non en tout cas lépp lu ma war a def. waaw maa ngi gis suba ba ngoon bul waaw li muy wax nii daa baax di wax rek waaw sa waay dama lay expliquer leen da am combat bàyyil naan ay mënewuma lii xaw ma la da am combat waxal sa combat bi danga am combat bul ngay dajel di ñaan yàlla na suñu borom ma si ndam lu sedd bi mbul lay dajal mbul mooy kat mooy bu mbul bañee làmbaay nangu mbul da koo ni mbul ngay dajal loolu wax la ci biir wax de loo ko bëgg a wax foofu mbul lay dajeer moom xam na ni mbul lay dajeer mbul ngay dajeer mbul mbul laay dajeel mbul laa jël mais man ku ma xam-xam ne làmb moom aw ma si tànk ginnaaw dëgg la dëgg la eh, kon nekkul moom dëgg la dafa gis si moom lu ma jaaxal ok lépp lu nekk si moom gis naa ko xam naa ko mi maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax ndax làmb moo ñu boole doomu aadama la comme ni ma nekkee doomu aadama jàmm la ñuy xeex jàmm moo war a dox suñu diggante comme man ni may wax sport bon bu boolewul warul xaaju waaw man def naa ko soo compétition bu ne laa mu moom du yàqoo si man mais li may yàlla yàlla may ñu wér ñu si gis ok dama jàpp ne suñu combat ah. moo nekk combat bi war a gën a neex pare moo lay relancer yow non man moom non moo lay jëlee fi yóbbu la fu gën a kawe déggoo li ma la wax man li ma def waaw ah. sama ginnaaw boolewuma ci li ma war a def instant bi ma nekk nii. ok sa kanam bul koy woo. waaw maa ngi woo waa Tivaouane gépp Tivaouane Thiès euh, Kër Baba Kër Bakar Kër Jobba di woo ñëpp di woo Ablaye Ndiaye Ngalgu maa ngi koy woo si combat bu baax a baax. baax Ablaye Ndiaye Ngalgu koy woo si combat bu baax a baax a baax di woo Diop maa ngi koy woo ci combat bu baax a baax Lamine maa ngi koy woo ci combat bu baax a baax grand grand bàcc géej pass dem maa ngi koy woo ci combat bu baax a baax a baax maa ngi woo waatewaan yëpp bàyyiwuma kenn maa ngi woo waatewaan yëpp di leen wan ne seen doom seen rak seen seen xarit waa am na combat ñoom ñëpp nañ def ni mu daan ok yàlla may ñu si dem. koy woo Ablaye Ndiaye Ngalgu ak Diop si nañu jël kaar yu bëri jënd bloc yu bëri. jox ko sa waay mu ñëw. parce que mooy représenté Tivaouane. ok foofu lay waree. léegi Malick bu ñu paree ci lii. eh on après dañuy woo Fadam tu ak Bour Gueweul. bu ko defee ñoom dinañ ñu décortiquer tuuti li fi xew balaa ñuy dugg waaye Liss Ndiago doo def ndànk ba ñu woo la. waaw ah non Liss nag yow da nga xaw a ëppal quoi léegi Malick. waaw ñu dem ci dóor ya ñu dem. déet xaaral sa waay wooteegul. atia ordi du tiit du ragal. maa ngi woo sama dëkk. mooy Kaya Xayma commune Ndox Kaya Xayma waa ñaaxar ñëpp di woo région de Fatick bàyyiwuma kenn di woo autorité yi nga xam ne ñoo fa nekk ku ci mel ni trésor yi mooy Sarr euh, suñu maire Demba Diouf euh, maa ngi di woo ci combat bi ak ma Koudou Sène maire ñaaxar waaw ak euh, soxnam madame Sène combat bi seen combat la Makodou Makodou waaw waaw di woo ak Thérèse Makodou ak Thérèse non Thérèse nañu jënd billet yi sama yaay sama lépp la maa ngi wax xam na si dara quoi waaw moo moo dox lépp kon donc combat bi combat am en tout cas maa ngi woo ñëpp ñi nga xamante ne rek ñu ngi jàpp si samay entraînement leen di waat combat bi ak ak ak public lutte simple bi ah ay jë bi si léegi Malick waaw ana nga kaay borom deux kilos cinq cent yi mais dégg dégg naa ordi mënta dóor ah. léegi dégg naa ordinateur loxo bi di ordinateur taxawal na leen dégg naa loxo bi diisul Malick ah xoolal Hamza ngay xool fële ah. yaa ngi koy gis waaw yaa ngi koy gis maa ngi koy gis léegi dama bëgg moom bi ñuy décompté ñu xool léegi ordinateur lañuy ñuy décompteel su ma nee cinq nga ne quatre ordinateur cinq quatre ordinateur trois deux ordinateur yàq na ko machine ba baaxul ba sax kale la machine ba daa pandi ay ca ñu ñëwaat ordinateur defal xaaral tuuti xaaral tuuti bu ñu paree dinañ natt diggante Aziz Ndiaye ak kan Aziz Ndiaye ak kan non ba dajoon day diis ci Aziz nañ ko booleeg Bouba Ndour rek Aziz ak Bouba Aziz day entraîné de cinq quatre trois deux un ah, top yàq na machine ba kii ñaata la cinq cent quarante huit kilos loxo bi gisuma ku am sept sept sept kooku waaye man rek maa ko lu xew nag man jege aca bul bul la illa eh. <laughs> cinq pour mbul 4, 3 pour boule, 2, 1 pour boule, 0. C'est yàq na machine ba mbul tekki na jaaro yi di mbul am na cinq cent cinquante cinq Malick cinq cent cinquante neuf Malick Malick bu ëpp ñaar ñi dafa mel ni ñoo xaw neexoo de kaay maa gis ñaar yi ñaar yi neexoo nañu Malick ku nekk cinq cent et quelque léegi nag problème bi mooy. waaw. Liss Ndiago ñëwul. ana Liss. ñëwul. sérieusement. ñëwul sérieusement. seen ki nga doon wax léegi du Liss. non noo non dama ko seen mu ne ma Lamine maa ngi ñibbi parce que li ma gis nii attanu ma. non non non Liss du daw. non il est rentré. non Ndiago du daw. non il est pas venu ñëwul. non Ndiago du daw xare. léegi nag xam nga dafa amoon Tafa Mbër ak. ak Mor Kankan. waaw Tafa Mbër. dafa voyagé Mor Kang Kang dafa voyagé. ok pour wane li combat bi am na fu leen toll. tout à fait léegi laataa nuy jël Pokola dañuy jël Fadam tout ak Bour Guéwél seen coalition bii coalition ci sama sama rakk ji sama rakk ji mënalu leen ko dara bàyyi leen ko liiru jaan moo leen mën moo leen ëpp doole moo leen gën a féete xale astafurlaa moo leen gën a féete mag xale magoo leen moom dinañ la bàyyi. te dañ lay sot loolu gën a métti dañ lay sot mais xoolal yow faale woo leen léegi problème bi mooy ziar naa dama bëgg yow nga bàyyi kii yow maay sa mag kii nga collaboré nii te dégg naa kii feebar na fi ci kii faj ko. Magatam Diagne. <laughs> léegi problème bi mooy nous sommes rattrapés par le. Salifou temps bi temps bi xoj nañu ah léegi problème bi mooy. Euh, Buur. waa Grand naa leen. Buur. weexal sa nawle du la tax a ñuul ñuulal sa nawle du la tax a wallaay dëgg la te làmb amul luñ lenn luñ leen ciy jàngal hmm. dama bëgg rek ngeen jàngal tel ma kenn ku ci nekk li war a am la cinq mu nekk événement boo xam ni événement la ci biir événement yi ñoo ngi gis liggéey yi ngeen ciy hmm. liggéey boo xamante ni am na solo trop ñu commencé ci yow après ñu ñëw ci Fadam jërëjëf dañuy sant yàlla di julli ci alayhi salaatu wassalaam di sant sunu ñaari wayjur waaye di sant sama bunt cheikhul xadim Mamadou Fadel di cheikhul xayri baabul xayri Maulana Cheikh Ibrahim ibnu Sëriñ Mbàkke Madina di ko ñaanal sama boroom defal ko riddan barakatan wa rahmatan fi barakat cheikhul xadim du nuyu sama mbokk yu tedd ma dëkkandool Grand Yoff zone 7B diggante xar yàlla Arafat Ablaye sama géer maa ngi lay nuyu waaye Sappali man Bour j'ai problème tu es en train de jouer avec l'impossible kii dafa miin kër Double Less dugg fa daan fa nii deux fois te sa digganteeg Fawzeyni ku ne xam na ni copie conforme la saa bu dee da nga nar a compoloog un bés ba nga wax ñu Balla Gaye de ah maa ko tuddee woon cukkali ba ma ko tuddee waat Fawzeyni mooy gaynde eh, Abdoulaye Sadaga joxoon sëñ Muntaxa Sathies wala bëñ li muy weex weex sàppali deret ko lal waaw asalaamaaleykum parce que tàppante beeg reet réewante beeg naq saale beeg diggante te ama seen du genre boobu buur kii yóbbu nañ ko fànn wérul yóbbu nañ ko lasara dof bi wérul yóbbu nañ ko raffinerie mbaaw wérul bërki de moo njaay diggante mag sàkkande koko laay laay jamu def dóorante ak moom rëppatal dip til bu lee réew ju neex ji daf lay nax gëmu ko je t'avertis a sàppali buur yaakaar naa ne am na solo ñu ngi nuyu ñu nekk ci plateau bi yëpp di ñaanal jàmm du nuyu gars yi nga xam ne nii suñu bokk ñi nga xam ne ñoo nekk internet bi ñu ngi leen nuyu bu baax xam nga làmb day toll foo xam ne nii yaakaar naa ne ñaar ñii combat confirmation la ñu war a bëree bay bàll ci naka sàppali gis naa confirmation day toll foo xam ne nii ci làmb Eumeu Sène dafa am fu mu toll ci làmb te da koo ñàkk te dafa bëgg a dellu dafa nekk benn leader biir Pikine Hmm. Eumeu dafa nekk benn leader biir Pikine mbër dugg Pikine daan ñaari rakkam mu war a dellu siwaat ci làmb te lu koy dellu siwaat ci làmb mooy daan Sa Thiès est-ce que le fera Baye Balla yegsi waay yegsil yegsil Baye xam nga lu waral loolu Sa Thiès kenn gënu koo xam Eumeu Sène ndax ku ngeen a Balla Gaye ñaari yoon Eumeu Sène daan ko mu lëng yóbbu ñëpp te dafa am benn chance boo xam ne nii moom confirmé ci Eumeu Sène moo ko koy may ndax àdduna yëpp xam nañ ne Sa am na pour soixante pour cent wala soixante dix pour cent pour bëreeg Modou Lo le roi des arènes te réussir ci Eumeu Sène moo koy may. mbër mu xor lay bëreel ku ñeme coow ku ñeme xeex ku am jom. ndax Sa li ñuy xaar ci digganteeg moom ndax lii ñuy nëbb ni amul nañu wax lu fi nekk. Hmm. Eumeu Sène dafa bëgg dellu si ci làmb dafa am fu mu bëgg tegaat tànkam ci làmb ñii dañuy jiyaat de Eumeu Sène ay nawleem ci làmb ñi nga xam ne ni tey ji Eumeu Sène moo leen dàq bëri téeméeri ji ñoon ñoo yor làmb ñii dañuy xeex de ñëpp xam nañ ne Sa Thiès ay ñaar ñii dañuy bëre de lan la Sa nar buur géwél Sa metti lool loo sa diggante ak Eumeu Sène e-, eggaguñu foofu yegguñu foofu <laughs> dawal Baye Ball li ngeen analyser rek doy na analyse bi rek lañ soxla woon Baye Ball dafa ñëw waaw te li ma lay wax rek làmb ji dafa dangereux parce que Pokola ngi nii toog làmb ji dafa ñun ñëpp ay naatangoo lañu ñun suñ leen magee ci làmb yi li ngeen ci def nii jamono ji maa ngi Malick defuñu ko ci keneen defu ko ci ci lu wér parce que yéen a ngi dugg fépp bàyyi balla boo gisee programme bu mel nii ñu fu ñu gis programme dañ lay séen ci wàllu làmb ñu gis tam liggéey rafet bi ngay def ci Bantamba TV ñu lay nuyu di nuyu age Bekaay nga gis Sa Thiès toog nga dégg lañ ko wax nii Eumeu Sène dafa yàpp kër Double Less dugg na fa bi mooy ñetteelu yoon mu dugg fa kii ñëw ne daf koy furli problème bi mooy juróomi juróomi dimanche yi nga xam ni alburaax boole na ko def ko benn dimanche sa jàngat laataa nuy dugg ci Liss Ndiago après ñu ñëw nag ci Eumeu Sène ak euh, Sa Thiès dañ koy sot sotoo ñun ñëpp acca auzu bi kalimatillahi tamati min sharri ma xalaqa ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu réew mi di nuyu képp koo xamante ni ak ñuy seetaan à travers Télé Futurs Médias di nuyu assistance bi yëpp di xamal ni lamin am nañu mbégte mu rëy tay Albourakh Events wax naa ko léegi dafa yokk lu hmm. bëree bëree bëri ci làmb parce que bis bii dafa nekk bis boo xamante ni bis du ko dàq ci lam yombul de parce que xale yiñ ci boole hmm. boo indee Liss Ndiaga indi Pokola Balde rek loolu rek day na grand combat ci bis lamb milieu la. lamb du lamb lamb milieu. lamb milieu la milieu doy na war de. Hmm. lamb ju bari coow la. Miss Ndiago ak Pokola Balde ah boucher ngi nii toog nga indi ah ndaanaan bii toog. Hmm. Ah, wulli wulli. Hmm. loolu tamit grand combat la. diggante bari bari kirikou papa bari bari kurikou. yooyu bari combat bu neex la. mais combat bi ma gën a neex ci journée bi nag. mooy ban mooy Bou Siteu. oh ak Tapha Guèye. numéro 2. bu Siteu Tapha Gueye 2. Tapha dafa jàkkaarloog ah Laurent Ndiago am na lu ma la ca wan. ca bés boobu ndax lexpérience expérience face à la jeunesse la. Hmm. expérience bi dafa bari. mën nga koo wax lu ne. waaye bés bi bu arbitre seen génnee seen diggante mën na la nax daan la ngir expérience beem moo bari. Hmm. ñuy félicité bu baax Albourakh Events di nuyu bu baax Abdou Aziz Alé Ndiaye. le hmm. fils de son père. wallaay la. ndax bés bi yaakaar naa ne amateurs yi ñëpp ko bëgg ama seen sëtu Samba Xoyaan baa ngi nii toog hmm. bis dootu ko dépassé Fadam yaa ko wax léegi yaa ne ama seen dafa dugg kër dubalees sunu bàyyi am lu mu fa def waaye duggul kër dubalees kese de géejawaay la ama seen miin bàyyi hmm. bàll li nga wax dafa am solo may ma tuuti ma ñëw ñëwoon ama seen dafa miin géejawaay dafa dugg géejawaay maîtriser leen ci bëri bi te ku ko xam-xam ni xam-xam bi ci wàllu bëre ëpp ku ko ci làmb du yomb parce que ku ko gis contre Tafatine ni mu bëre donte dafa ñàkk combat bi sax keroog ci ma indi na jom joo xamante ni ngar mi ak njàmbaar goo xamante ni keroog amateur yëpp ñoo ko tàcc amateur yëpp bi bay bala bay bala dama bëgg ñu ñu ñu xaar tuuti mhm. muy yow ak bu taxawee ni xaar tuuti mhm. léegi bu ko defee ñu dugal pokola bu ñu dugalee pokola ba pare après ñu dugal wulli ak waa ji mm. ñu sot Sa Thiès ak Eumeu seen ñun ñëpp. Lamine bala ba dama bëggoon a xam rek. waaw ndax Sa Thiès ndox dina bàyyi yoonam. dina ñëw loolu ci kanam dina leer. Ah. teg ciy ñëw waaw. léegi acca ñu dugal. Pokola jërëjëf merci beaucoup. léegi eh eh eh. Pokola Balde. Eh, Malick xaaral. maa ngi dégg Asbekaay eh, bu ñu paree kii day dóor moom ak kii man ak Baye Ball ñu dóor yow nga dóor ak Baye Ndiaye. maa ngi nuyu as bu baax moo leen di moo leen di new. waaw ñu dugal Pokola. Baye man maam cinquante neuf ans di dóoranteeg Baye xalaat moom. la ilaha illallah setu Falaye Balde baa ngi noonu ndeysaan mu ngi noonu ndaanaan xoolal dama def benn action xoolal dama def benn action grand goro dama def benn action bu garaaw dama jékki-jékki rek. ko ne Liss Ndiago fi mu toog jógewu la ñu xoolal raful xoolul lijjantiwul maanaam tiitu kaay la xale bi amul macha allah yàlla bu ko cat topp yow kii boo nekkee liis am problème de grand te ngaa toog problème bi mooy xale bi ñëwul tey est ce que corosé yi mu fi jëlee keroog moo tax ba ñëwul wala. non jàmm ko téye rek yàlla na ko yàlla defal jàmm xam li ko téye. waaw ah, yàlla defal jàmm. waaw di ko defal jàmm nag ba cinq incha allah. nan ngay waajee le cinq. waaye la cinq liñ doon waajal rek la ñuy waajal maa ngi nuyoo di nuyoo suñ buñ fi fekk yëpp di nuyu sama papa Eumeu di nuyu sama nijaay Sakess uh-huh. di nuyu ñëpp fi toog ñëpp di nuyu mbëri yëpp waaw di ñaanal Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm di nuyu sama nijaay ordinateur bu baax uh-huh. waaw moom amul ma koy wax barki yàlla amul ma koy wax na joxewaat kanam ki déggoo ma de kii man ak moom séquñu dóor lu ngeen séq këf jël yow yaay këf jël waaw këf jël lañ séq ku fi ñëpp bàyyi laa soxla. mooy kan. Zarko. <laughs> Njombe moom laa soxla Njombe bu mag. yow yow Njombe pare ko ci liis di jëli cargo. moom laa soxla day rangale avance booy bu dof baa ngi nii bu ñuul kooku bi mbaam bi. mais xanaa da ngay pare ci lii. <laughs> na ñëw moom laa soxla. xanaa da ngay pare ci lii. ku ñëwul amul may waxal la ma soxla laa bëgg. acca wool ñi ngay <laughs> woo wala doo woote wooteel li may woote xam nañ ko bu baax booy Pikine yi neen arène nationale une heure pile wala midi ñu tëj stade bi mu jeex billaay walaay ñu tëj stade bi booy dañuy tëj stade bi booy dañuy dajale ay tout temps yi toll nii nii ak nii di dajale chaque jour dañ may roo mën a am mi ñu ngi dajale ndeysaan tëj stade bi billaay walaay aw ma seen fay booy yooyu tax ngay xaru yooyu ñoo tax man drapeau Pikine laay représenté man doomu Pikine laa Pikine laa juddoo Pikine laa di nuyu waa kaso bi yëpp nag waa campenal maa leen nuyu bu baax di nuyu waa samet di ko jox di ko nuy di ko nuyu jogaw di nuyu ñu ñëpp maa ngi nuyu ñëpp daal di nuyu ñoom Amadou Fente ñoom Arab Boyor sama booy yu fi indi ñu àndal ñëpp maa leen nuyu Liss Ndiago da ko xamal ni lu mu liggéeyee na ko xeeb incha allah lu muy bañ lay def day bëre day xeex acca ñu dem nga dóori man ko jaru ko jaru ko Malick sama problème mooy waaw ah. da ma gis ma sol sànq ñetti abdou waaw léegi amaa Fassé mi may solal ne ma jëlal ñetti abdu bi nga jox ko commandant Thioune léegi jox nga ko benn bi mu des ñaari benn bi laa la jox dama lay jox beneen bi léegi ko soxla même tissu yi ak yére bi yëpp moo koy jaay jërëjëf 77 291 90 90 77 291 90 90 mu ne ma jox la mbubu bi bu la bi non bu la bul subeeku ma jox la beneen bul subeeku léegi nag problème bi mooy luy problème bi combat bu war a am mois de juin waaw ñu signé ñu may leen kenn ku ci nekk téeméeri junni. kenn ku ci nekk ñu dig le salon boo daane. kenn ki may ma 500000 waa suñu meuble Kër Ndiaye loo PDG bi di Pape ñi ngi moo leen ko dig. kenn ki jox ma mille ne ma may naa la ko muy boucher. ah. wuli ne ma jël ci cinq ah non 5000 nga ma wax non damay wax li nga ma wax rek laa yor 5000 nga wax. non 5000 nga ma wax man xam naa li nga wax doo ko def <laughs> man xam naa ni wu léegi. problème bi mooy maa ngi nuyu sama gorom sama gorom kii mooy denc doomu Daouda Seck dem si yàlla. ah macha allah. Chérif. Chérif ñu ngi koy nuyu di ko ziar. de dafa ñëw dafa ñëw indil ma ay pigeon voyageur yoo xamante ni nii. ok bi mu ko indee sama kër dama tiit. oh sama goro la. parce que Daouda Seck sama diggante moom altine la ak. waaw ah, bul saaf pigeon yi nag. non pigeon yooyu kenn da koo ñemee lekk. Uh-huh. ana wuli. <laughs> kaay wuli wuli waat fecc ngeen wax ngeen lu ne. combat bi la may nañ leen cinq cent mille dig nañ leen salon te ah waaw vraiment Boucher may yëgal li nag fii laa koy waxee dimanche jongante la diggante wulli ak Boucher Ketchup ndaw lu neex mu nekk loo xamante ne événement la léegi ku nekk ci ñoom sol boisson original bi fi as boisson bi gën moo gën a wóor moo gën a sell léegi nag Malick waaw kii dafa jëloon avance su kii ñu ni daa daw ne une semaine moo des ci combat bi mu daw trois jours léegi problème bi mooy wulli lu ko gën a métti ci àdduna mooy loolu. da doon jooy. da doon jooy. léegi nag problème bi mooy kii ñu gis ko ci internet bi. waaw mu taxaw wax ak Baye Ndiaye ne dawuma dawaanuma stratégie la woon mais joxaat leen ma wulli ma ñëw bëreeg yow Baye Ndiaye su ma la defaraloon du ma la yàqal. ci lu wér te ku ko xam-xam ci moom fulla ak fayda waaye li ma yaa li ma li ma ragal mooy kii da bari doole da bu ko laal bu ko laal bu ko laal bu ko laal eh. eh eh am na droit laal bu ko laal. bu bu ko laal jeex na jeex na. bu ko laal jeex na bu ko laal caam CNG mi ngi leen di xool bu ko laal. waa léegi ñëwal wax bu ko laal laal. jëlal micro bi. Abiba. Boucher. kaay a xeex kaay. kaay nga gën a xeex. Boucher kaay. kaay nga gën a xeex. eh kaay kaay kaay. oh oh bu leen xeex. sama ñaari gars yi yéen tam bàyyi leen bàyyi leen ba jouru combat ba waaye. dañoo bëgg génne xeexi. mais Boucher. waa du waa man du man moom la. problème bi du man de moom la. Bada John moom la di du man di. mu ngi ma naan nii. sama yoon. ñu nekk fii di yow ngay. wala ngaa dof. Eh. ragal ba la eh. eh. fii laa dem tukki mu ne fi di rëy làmmiñ yéen ñëpp ngeen noppi di wax lu ne noppi ci laa la wax. làmmiñ yéen ñëpp laa ci tëfi bàyyiwuma ci kenn nga naan may nii. eh kii sama ginnaaw lay wax waaye du wax sama kanam sama kanam. man sama loxo bi rëq nekk ci sax di. asalaamaaleykum. signature rek nga mën. tir la bu la am nga def. yow loo mën da ngay dawaat yow loo mën. buy daw de kan mooy daaw. daaw kan mooy daaw. buy daaw yow damaa am sa daaw. ma ne. xam nga kan mooy daaw. wax rek nga mën xam nga kan mooy daaw. ci bàyyi bañ ne làmb suba la mu naan dafa am nerf sciatique. contour calcio nerf sciatique la déclaré. waaw d'accord mais. kooku calcio te fii la teg contour calcio nerf sciatique la déclaré. mais yow xëy dem Gambie. yow xaalisu jaamu nga yóbbaale. maa tey sama xaalisu mag la. maa tey su ma neexee lekk ko. maa tey loolu jom. maa tey sama xaalisu maa tey. lu so maa tey. léegi yow billaahi wallaahi taalaahi seen waa kër yëpp maa leen mën. a ngi xam li la gën a métti rek barki rasulillahi billahi wallahi taalaahi kii li ma ko guuxal su ma ko ko yebbee moo xam ne man du ma nit Lamine Samba man maa la ko wax damaa bëgg nga bàyyi xel li ma def bu baax man du ma ko ma kenn maa dàq bëri ci làmb ji bu ñu ngay gis nii yëpp maa ndax rek barki Serigne Touba damaa mën a bëri man sama bët ci ordinateur mii laa ko teg xam nga mënul xeex wax rek nga ma man sama àdduna yëpp kii laa bëgg a bëree ndax ni muy bëree day lewtoo day sëgg di wax rek nga mën wax rek wax laa wax rek wax laa mën ragal nga wax rek nga mën wax laa mën manager sa asalaamaaleykum li may ñaan xamal laa ñaan baay man ñu bëri la le cinq mais bëri waat le trente juin man loolu laa bëgg parce que Seydina Mouhamad ñu bëri la cinq mais bëri waat le trente juin bu fekkee ñëma na ñu bëri waat le premier le vingt et un juillet ci dafa ni bala gay yëpp ma daan ko ki maa ko gën a dox fuuf ñetti combat la loolu barke sëñ yaa ngi dégg ñu xool 3-0 lay nekk. ma daan li ma wuli wuli wuliwaat. koy yow. yow nag maa yow mënoo ma yow mënoo yow mënoo ci man dara. bu dama door la fii waaye. gaaw a door walaay du ma mel loo. mais nag asalaamaaleykum Baye maa ngi déglu ñu fi am euh, tey dafa am lu am solo lu fi am muy aas ndaw ndukumaan def lu am solo euh, boisson bi Fadam. di day boisson boo xam ne dafa ñëw fekk boisson yëpp wuli leen tout original original moom mooy baax boisson yi fi nekk baaxulaa ko ko fi naan boo feebaree yaa ko sa bopp lu leen laa leen wax ku demati jën beneen boisson kanet bu dul original boo feebaree yaa tooñ sa bopp as ndaw moo fi mais nag di wax bàyyi bàyyi dama koy sant est-ce que xam nga ne keroog dina woo mu ne avance bi mu nu joxoon may nañu ko fii mu toll dina joxaat beneen avance. loolu benn oh. promoteur mosuma ko. et eh, tàccu leen loolu waaye. Seydina Mohamed. oh nit ku gore. quelle générosité. Aziz sama waay ga combat bee jàppale nga ma gisee kuy wax rek la man day xam sama waay nga. man mënoo ma jaxaseeg Aziz Ndiaye. fee laa toog sa àdduna yëpp nga may jaxaseeg bàyyi loo wax wéeru ci moom. xam nga ne man kuy jeer ak man yow xam nga ne man kuy jeer man face à face doo jeer man sooy jeer ak man bëgg cee génn da ngay wéeru ci bàyyi doo ko génn doog cee génn man kuy jeer ak man libre doo jeer yaa may dégg mënoo ma jaxase ak Aziz man Aziz sama laaj ma ragal bi as ndaw ndukumaan. laaj mooy ragal bi kii sa papa la ak ragal bee. kii yow da nga yóbbaate quoi yow da nga yóbbaate quoi. naa ki door ke. yow kii dafa yóbbaate quoi dafa dafa dafa yóbbaate quoi. xoolal ñi mu wax ñëpp. yow kee da laa daan kii da laa daan Serigne Touba yow damaa door kii loolu yëpp dina jeex. damaa door kii door ke. Lamine. et kii. Balla Gaye koy indi kii Tapha Tine koy indi Tapha Tine du moroomu Balla Gaye di wóob boobu laay dina ko duma faw say ni yow ni ma a defoon Gambi noonu la koy def Tapha Tine du dox suy bëreeg Balla Gaye Tapha Tine du dox suy bëreeg day wànnen ba làmb ji jeex bii bokku ci de bii bokku ci bii bokku bët yaa ngi commencé métti bii bokku ci dina ko yaa ngi commencé métti Tapha Tine moom mën laas moom mën ma ci lay wax lu leer nañ ñi nga déglu ma dem naa fépp ci àdduna loolu xam nga ko boisson bi kon du ma wax lu ma gëmul dama dem Australie laa ko njëkk gis oh. ànd ak Marcel Diagne président Marcel Diagne laa àndaloon dugg ci benn boutique man ak mota gis boisson bi original ñu def ko ci ci frigo yi fa laa ko njëkk gis bàyyuma ci xel xalaatu waay man xalaatuma boisson bi waay bàyyuma koon sax xel mais bi ma ñëwee keroog ma gis boisson bi di lëmbe dëkk bi appelu laayeen yi passé oh ma dem toog kër Pape Seck Touba Couture boisson bi manqué original laayeen yi di ko wër Abdou Faye ak fa woon ma ne ko Abdou Faye doo woo kii moom boisson bi ñu indiwaat ndax nit ñaa ngi wër boisson bi ne boisson bi am na boo xam ni boo koy naan ba yem ci doom yi ñecc bi ñama-ñamay da ngay xam ni c'est diamétralement opposé ak yeneen yi. mooy yu bula yi. mooy couleur yu bula yi. ba pare yii waaw. voilà yooyu dafa am ñam. am na beneen bu far bi bu far bi. waaw boobu mooy cocktail bi. dafa léger. oh oh. oh, oh, oh. léger c'est que xam nga ñu naan nañ lu ne. wallaay. boisson moom léegi problème bi mooy. waaw problème bi mooy xam nga dimanche dama leen invité. yéen ñaar. les vingt ans de Assane Ndiaye ñu ngi koy waaj bu baax. kaay soo ñu yóbbu pare guñu dañuy dóor. dóoraguñu de. ah dama Sénégal yëpp duur drapeau original drapeau original la léegi Baye Ndiaye nee na original la original te original Baye Ndiaye nee na original la leen teg waa Touba yéen ñi may woo di ma laaj blason original bi waa Touba ak waa Tamba Fouta waa original a ñëw def ngan di caravane boo xam ni Sénégal ñaata région la quatorze quatorze région yëpp boisson originale bi dina fa nekk xaar leen ko bu leen naanati beneen boisson xool leen boisson bi bu baax ngeen xam ne du boisson caaxaan. amul colorant amul conservateur. amul gërëm Aziz Ndiaye Aziz dëgg léegi combat bi bu taxawal rek. Aziz combat damaa nekk fële kii di wax rek. sa kii naan yaa ko jàppale ma. kii ni mu la meree. jox nga xaalis ma muñ. sama xarit la dégguma ko nag ndax sama mag nga ñoo boo ko dee sama xarit la. xaw xaw ma nag loo doon def suuf ba. Malick ñoom ñaar waaye bii damaa bëgg nga jàppale ma ci mu leer nañ si combat bi dama ko bëgg. te Tafatine ak Balla Gaye la. Tafatine day daan Balla ma daan la. dégg nga li muy wax. Tafatine day daan Balla Gaye ma daan la. acca da ngeen di dóori wala. maa ngi gërëm Lat Diop. kon non woteeku. oh Lat Diop maa ngi koy woo ci combat bi. woteeku nu. Lat Diop ministre des sports. maa ngi koy woo ci combat bi bu baax a baax. sama xarit. combat bi combat la. ku baax sama xarit lat lamb ji sa lamb la xam nga li ma xam bu baax a baax. Omar mbay mi ngi Paris xam na li may wax bu baax a baax. petit production lamb ji. xool ko yëpp seytaan lay def. sama xarit petit mënoo yem. petit moom may yóbbu ci lamb ji ci ci oto moo may ngëm di. maa ngi gërëm maa Ablaye Fall bu baax a baax a baax a baax maa Ablaye Fall. juboo am ah, juboo am na. maa ngi koy gërëm bu kan la moom. foofu laa koy doore ba mu dee. ko maa ngi gërëm Birane sama nit gis mu Birane maa ngi lay làmb ji Badara Gadiaga a va quand même kaay suba teel mais li ci denc ko waaye ay nit yoo xam ne da leen a jaral waaw xaaral waaw non xaaral ma ne mën yow dañuy def émission papa as naw ndukumaan dañuy def émission combat bi yaa ko moom sa làmb la Adja micro boobu Adja Adja Adja original làmb ji làmbam la kon moom mooy ñëw ok ñu dem bu rek non a xoolal Balla Gaye di ko ñaaral jàmm ak tawfeex tey sir xaadimu rasul ok ñëw leen ngeen dóor kaay. yéen booy xam encaissé goo leen ba tey leen kii wayaloo ko. waa acca kaay indi waa non kaay Malick kaay taxaw nii kaay Malick taxawal nii téyel Malick sóoral sóoral sóoral Hamza si ginnaaw acca kaay nii. alors xoolal mu ne wulli nee na xoolal ni xaaral dañuy dañuy dafa nee na nii muy def machine bi noonu lay def boucher këccëb cinq Malick quatre trois Malick deux un Malick zéro ye yàq na machine ba machine ba yàq kaay machine ba daa yàqu daa bëri doole nee na doole jë xaaral xaaral ye la ilaha illallah ye machine ba yàqu Et 754 kilos. 754. Achille. 754. 5 pour boucher. Maïko, Maïko. 5 4. Pour boucher. 2. 1 pour boucher. Top. Yeah. Wow. Lii lan la. Lii lan la. am na. non damay gërëm Lamine parce que gërëm gunu maa ngi koy gërëm. Ousmane Sy Diasner maa ngi koy woo ci combat bi. combat bi combat am la doomu yaay Fuuta doomu yaay Baye Ndiaye maa ngi koy gërëm Masata Ala Ndiaye. di gërëm maam Abdoulaye Fall. taaw Baye Ala Ndiaye yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko aljana. combat bi sa combat di woo njaak bu baax a baax ci combat bi ah di woo famille Ala Ndiaye yëpp di woo ñëpp di woo Pape Diouf bu baax ci combat Pape Diouf maa ngi koy woo ci combat bu baax Pape Diouf combat bi combat am la dafa bëgg may dégg mënu maa noppi. wax wax nga ma. waaw di gërëm Tayiru Sarr. Tayiru Sarr ñoo ko bokk Omar Baaw Omar Baaw maa ngi koy gërëm bu baax di ko woo ci bi. toogal foofu ma Ablaye Fall maa ngi koy gërëm gërëm. waaw léegi soxnaam préparé na Sa préparé Sénégalais yëpp ñoom la ñuy xaar. waaye dafa am information bu fi juddu léegi kon diggante Wouly ak monsieur Ketchup drapeau original original. Baye Ndiaye. boisson sans colorant sans conservateur cinq parfum. lii lan la. la. original. Namah no ya ya jamelo dama sen borgo me jogo ne o jukere no ya jamelo dama sen borgo me jogo ne o jukere mikena ke no ya ya jamelo dama sen borgo jogo jogo ne o jukere doom may ma tuuti maa ngi jégalu nag bu baax bi ñii ñu fi teew yëpp ci suuf rek garabaay damay jégalu ndax damaa nekkoon ci beneen contrat te waxoon nañ ci man ak yow ndax man lii laa yaakaar baabu nga may sama baay Père Aziz sama papa dafa tawat père ma xam ne li may wax seet na sam bopp mais lay def un an bi mu paralysé sa papa il a tout fait si culture sénégalaise cent cinquante mille la ñuy fay ma jël si oto fay ko quatre mille bu des soixante dix mille may ànd ak plus de vingt personnes su ma paree kenn ku si ñoom du am dix mille francs ba paa bi ba léegi. la waroon Baba ak la ma war yëpp man la war moo tax ma cumulé ñaari programme buñ ma fayee fii fay ma fii ma jox ñi li des ma toppatoo ko paa bi oto rek laa bëgg oto boo xamante ne nii fu may dem bu may dawal minicar boo xam ne bu ma tëggiwul mu dem liggéey ma yóbbu kër ga je suis le fils aîné de mon papa sam papa tax ma bàyyi jàng e babu ngom dawa ala mo fey ke fiyo nan xel ke seereer ke nanan momongom jine fata khole eh, mabugom da la mafe kesiyo namadal keserer kenana mabugom jine fata khole e babungom da la mafe kesiyo nan khel keserer kenanan momongom jine fata khole mabugom eh, da la mafe kesiyo nan khel keserer kenana mabugom jine fata khole e eh, babungom da la mafe ke fiyonan kal ke sereer ke tanam momo ngom fata xole babu bonda a jamin way a bisa golan ye bo togale ar fang no koro e, kor حبيزة كل ما يبوتو كلي أرفع نكور كور ماتي حبيزة كل ما يبوتو كلي أرفع نكور كور ماتي ñu bàyyi bàyyi mu am ñetti kàddu yu mu sànni ñu dem ci jàkkaarloo bi daal di tàggatoo on a que vingt minutes ndeysaan Malick yaram daw na ah oui nañu dimbali sama doom ji mu am oto. Aïcha Baye. jot na yaakaar naa ñu ngi ci ndaw li nga xam ne mooy événement bi. neex na ba pare. waaw macha allah macha allah. neex na ba pare te ñaari champion yi ñëwaguñu. Uh-huh. xanaa di gërëm suñu papa As Ndaw bu baax a baax ci teraanga bi mu defal boucher ak. Euh, yàgg na koo def loolu li muy signifier rek mooy tey blouson yi ñu leen di jox ñu koy sol. Mm. li may wax rek dañuy war a joxe ba jeex. parce que sponsor yëpp ñu ngi taxaw di seetaan. dëgg la ku ci nekk rek lan la jox blouson te ragal naa ñi ñi sol blouson yi kenn gërëmu fi benn sponsor dëgg la ñoom ñëpp ñaam ñaar rek ñoo fi jël gërëm fi jus original te ñoom ñi ci des ñëpp ku nekk sol nga benn kii sol nga Zador kii sol sunu bet kii sol Lonase c'est-à-dire suñuy wax làmb sponsor tey daw yu mel ni moo tax nañ ciy bàyyi xel mbër yi kuñ ci joxati blouson sponsor ba la ngay gërëm kenn nga gërëm sponsor xam valeur bi parce que événement bu toll nii télévision moo ko mën a supporter ak sponsor yi kon il faut ñu leen bàyyi xel di leen ci gërëm bu baax a baax loolu moo waral tey Boucher ak Ketchup euh, Boucher ak Wouly hmm. borom seetaan ko xolam sedd mu yëpp ñu ku ne cinq cent mille may la dëgg la loolu moom mbëri nañ ci bàyyi xel tey gërëm sponsor yi bi ci des Momo Aziz jox na la un million pour nga jox ko sa papa dimbalee ko ko oh! ci ko wax ni ndeysaan naa ni information bi jote ju woon jote ju woon comme ni mu waree incha allah bu suba boo ma wooyee dinaa la envoyé un million yi pour nga jox ko paa bi te nga seetal ñu ko bu baax a baax. merci Aziz pour cette générosité et cette spontanéité wax dëgg yàlla lii la lii la ñu soxla ñëw nga wax nga sa tawat wax nga ko fi nga ko war a waxee ki ko war a faj faj na ko Aziz merci beaucoup pour cette générosité yàlla na nga mën lu ko ëpp parce que lu mel nii rek la ñuy xaar ci ñi nga xam ne yàlla may na leen teraanga. jàpp jàppale ci ñi nga xam ne tey toll nañu dans le besoin. te ni ko xale bi waxee. waay dafa daw yaram son papa a tout fait pour la culture sénégalaise absolument loolu moom am na solo léegi nag li ci des mooy. Aziz dafa wone exemple exemple. ñeneen ñi ci des. nañu topp ci Aziz te xale bi dafa leen ne. xale bi dafa ne cent cinquante mille lañ koy fay mu loué oto quatre vingt mille francs mu des soixante dix mille mu séddale ko booy te tey exceptionnellement dafa cumuler ñaari programme pour mën a am lu mu yóbbu kër ga fay booy yi kon de grâce képp ku ci mën a jàpp pour may ko benn van benn oto boo xamante ni nii dina ci mën a dugal bagage am dégg ngeen li mu wax bu nekkee nii am naa programme ma tëggi bu amul programme mu liggéey yóbbu kër ga ndax su ma baay man la yaakaar la waroon sama baay ba tey man la war kon nañ ko jàppale. waaw waaw waaw ñëwul ñëwul kaay. Boucher nee na am na ci benn xel. dama ci am benn xel. xel nag du doy. ba dëgg jamono ji dafa metti dëgg la te nit ñi maanaam am na ñoo xam mënuñu ko dëgg la te gis nga ñi fi toog nii ñëpp ay nitu làmb lañ dëgg la te ñii ñëpp bëgg làmb dëgg la ñëpp la baabu ngoom dëggal dëgg la su ma sañoon dañuy jël benn kilifa ci làmb ji ak ku mën a doon waaw mën na nekk CNG mën na nekk yéen mën na nekk Baye mën na nekk Aziz ñu ubbil ko benn cagnotte man dinaa si participer deux cent cinquante mille yow mii man joxe naa mais nañ ko ko ubbil moom ci ci numéro am ndeysaan non non mën na bañ a kii sax nañ ko ubbi cagnotte ok ñu xool kan lañ koy jox ok bu ci ba làmb yëpp jàppee ku nekk joxe li mu war a jox yow joxe nga deux cent cinquante man joxe naa deux cent cinquante mille ok may naa ko deux cent cinquante mille Lamine waaw xaaral xoolal xam nga li gën a li gën a li gën waaw xaaral xaaral man dinaa seeti samay sponsor yëpp yi ma am ci combat bi incha allah. waaw ah. waaw ñu dajaleel ko jàppale ko. kon jeex na ñu xool su magee njëg su oto. waaw ñu jox ko su fekkee matu ko li ciy des incha ñu ko ko mottali ñu jox ko. complet ko bëgg dimbali rek. am nga numéro nañ ko jox directement. jox ko directement muy un million xam ne da koy yóbbu kër ga en attendant Aziz joxe na un million moom joxe na deux cent cinquante incha allah. waaw dinaa dajale suma sponsor yëpp man la 21 juillet lay tëj. waaw ma ut liñ may jox ñu dimbalee ko ko pour oto bi. mu ko ko mu dimbalee ko kon aajo bi faju na jërëjëf. merci beaucoup. Ama Sène. tey singo. Moustapha Gueye numéro 2 nee joxe na 100000 dina ko jox Baye. muy 1 million 350 mille. léegi Ama Ndaw Singa. Eumeu Sène. Dof du wër. Sa Thiès. hey Sa de Double Less. signature bi ñëpp di xaar a ngi noonu diggante a Sène ak Sa Thiès ñëwal Malick. Eumeu Sène. ilaha maa la wax lii regardez-moi ces deux champions xoolal ma Sa Thiès regardez le Doro Tamba ngeen xam ni c'est un superbe athlète un jeune machallah bien préparé nga xool kanam gi xam ne liggéey na pour combat bi jox ma Eumeu borom tay shinga de bas en haut nga xool ko xool sa musculature xool également son visage nga xam ni kii macha allah il a une bonne hygiène de vie il a de la force oh am na lu mu bëgg loolu moom kenn waxaale wu ko ce sont deux athlètes bien préparés deux champions l'expérience de Eumeu la jeunesse de Sa Thiès Eumeu Sène dugg fi nga xam ne moo di kër euh, suñu papa Double Less deux fois magu kii dugg géejawaay daan fa Lac de Guiers numéro 2 mu ñëw nag kii di Sa ni ko stop dama bëgg nga taxaw li nga defoon sama mag dama koy furli li nga def Lac de Guiers dama koy furli la nga defoon géejawaay dama bëgg a feral seeni rangoñ waaye Eumeu Sène ni man Pikine ñoo ma yónni te Pikine su ma yoree seen drapeau xameewu ma janj ak joor je deviens un lion je souffre pour sourire nest ñoom ñaar la ayca le face to face le grand combat le 5 oh <laughs> Eumeu Sène sa combat ñu bàyyi la nga nuyoo soog a ñëw ci combat bi l'importance de ce combat pour ta carrière ay ca Eumeu waaw asalaamaaleykum ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te gërëm suñu ñaari waajur yu mag di ñaanal Sénégal gi yëpp yàlla fi jàmm yàgg di nuyu sama mbokk Pikine waa yëpp waa Pikine fu ma juddoo yar fa màggee fa du nuyu mbaaguma dëkk du nuyu sama mbokk séeréer yi bu baax a baax a baax du nuyu tamit si suma wàllu yaay muy suma mbokku joolaa yi waa Casamance maa ngi nuyu bu baax a baax a baax di yokk di ñaanal Sénégal yàlla na fi yàgg du nuyu nag suma rakk tamit Sa Thiès di nuyu tamit champion yi fi nekk ñëpp ah. ku fi nekk ci turam ak santam Aziz ñu ngi lay bu baax waaw jàmbaar nga du nuyu Baye du nuyu Moussa ak eh, Khadim Ngom maa ngi nuyu. monsieur si <laughs> jàmbaar ñu ngi nuyu bu baax Aliou waaw bu galaan Dakar du nuyu Lanjang Ibou Sy waa gars yi ma àndal yëpp ñoom rateele gars yi maa ngi nuyu suma rakk yi ah jàmbaar ñu ngi lay nuyu baax. Sathiès ñu bàyyi la nga nuyoo yow tamit balaa ñuy dugg ci waxtaan bi. waaw gannaaw bu ñu mosloo seytaane ñu ngi sant yàlla baax di julli ci yéen sant suñu ñaari waajur di jiite ci kàddu bi ñu génn àdduna ñëpp yàlla na yàlla yërëm xaarale àjjana. amiin ñi tëdd hôpital yàlla yëkkati leen ñi ginaaw ginnaaw caafite leen kanam di nuyu sama adversaire di nuyu bàyyi promoteur bi Aziz ak euh, ñi fi nekk ñëpp kulim juum di nuyu sama mbokku mbër yëpp aussi di nuyu comme ni nga ko waxee rek euh, suñu bet nga xamante ne moo sama soore Baye. Lonase Lonase la <laughs> waaw kon nag ñu ngi leen di euh, encouragé bu baax di wax tam ñu gën cee jàpp rek. parce que làmb tamit lii lañ soxla. waaw di nuyu sama adversaire sama mag Eumeu Sène di ko ñaanal jàmm aussi ñu dem ci le cinq yàlla may ma ci ndam ci barkar Alxuraan. daam benn daam benn message mu bëgg a jàllale ah. acca ñëwal. maa ngi nuyu tamit aussi Khady Traza bu baax. di wax gars yi ñu waajal euh, le huit marché bi. waaw le 8 solo exactly dafa am xam nga di nuyu tamit aussi station bu ma def ma Khady Traza. ok xamat waa social. xamat social. ñu ngi koy ñu ngi koy dóoree ci IASO. ci militaire yi. le 8 mars lay nekk wala 8 mars waaw di. jàppale bi ngay def at bu nekk. exactement waaw mooy def at bu nekk. le 8 mars bi moom IASO lañ ko. bëgg a defee ñi problème mu rein ak ñi am problème mu. macha allah jigéen ñi am problème mu. waaw de sein. waaw xam nga man jigéen ñi def <laughs> cancer baa ngi def ay ravage yu bari. exact li noonu demee te man jigéen ñi samay xarit lañ. dëgg la waaw parce que ñoo suñu ay. mais man damay damay dégg toujours Malick le mot grand frère petit frère le mot grand frère petit frère mi ngi dox ba tey nii nii nii ba nii nii presque un mois et demi du combat ba léegi le mot grand frère le mot petit frère ba léegi mi ngi ñëw te am na ci ñoo xam ne sax ça sonne mal à leur oreille waaw mag rakk day ñëw toujours quoi man loolu dafa ma xaw a xaw ma lan la ko waaw parce que rek laay doon te moom lay musa doon te suma rakk lay doon te ma rakk lay mos a doon. waaye sa adversaire la sa adversaire lay doon. waa loolu la quoi làmb la sport la. loolu la fair play quoi. alors ëm tàkkusaan bu nekk am nga ko fi. combat bu metti bu nekk bëree nga ko. champion yi fi gën a dere yépp daje nga ak ñoom. tey jii nga war a daje ak Sa est-ce que motivation bi nga amoon bi ngay bëree ak magam Balla Gaye moom nga am ba léegi. est-ce que motivation ba ngay bëree Gris Bordeaux. moom nga am ba léegi est-ce que hargne ak détermination ak fugg ba nga amoon ba ngay ak bombardier moom nga am ba léegi ba ngay bëre ak Lac de Guiers est-ce que rage de vaincre boobu noonu ba ma la fekkee France man ak yow ñu taxawaalu fa nga xam ne fa la Paris Saint-Germain di entraîner man ak yow ñu dem nga nekk ci ay loxo may gis ci yow rage de vaincre bu extraordinaire est-ce que motivation boobu moom la ëmb am ba léegi est-ce que détermination boobu moom la am ba léegi est-ce que rage de vaincre boobu moom la am ba léegi bu jàkkaarloo ak Sa Thiès bi waaw loolu moo fi bàyyi ba léegi waaw doomu kenn du jur muus waaw loolu moo fi bàyyi ba léegi man séeréer la ak joolaa comprendre nga waaw noonu demee loolu moo fi téye ba léegi merci ça nee na day ñëw toujours sa diggante ak moom waaw loolu la yàlla dogal ah. du a dañ waaw l'essentiel bar bi daal ku mën sa morom duma ku mën sa moroom daal mais maa ngi ñaan yàlla jëli bi yëpp nekk sama kaw parce que aw ma droit maa ngi ko de respect ko combat bi lenn rek laa am droit ñëw bëre fekk ko daal seeti leneen mala ma ma ànd ak yàlla yàlla rek laa àndal lu ma yàlla jëglee ma jël waaye ndam laa ci gëm combat dafa am lu mu représenté également ci yow parce que au-delà de Sa mi nga xam ne dafa am plan de carrière am dafa am lu mu war a bind ci histoire làmb am na lu nga xam ne kii def na ko sama defaat ko ko est-ce que loolu bokk na ci li nga war a bërewaat est-ce que bokk na ci li nga war a bërewaale dugg gi mu dugg géejawaay daan fa ñaari mbër nga war a jël yow seen revanche devant Eumeu Sène Malick li fi euh, li passé yëpp dañ ko bàyyi ci loxo yàlla mënumaa yenu yi ngeen wax nii yëpp duma ko bëriwaale loo yenu sama gëm-gëm lay bëriwaale parce que lu ma góorgóorlu ba daan ko rek yooyu bañ koy fàtte man kenn du ma jël sama bopp bi di ma ko chargé loo xamante ni amul pression ngay bañ ci làmb ji jamais de la vie ku ma ko teg sama xajal la fële man xel mu dal laay demee maa ngi liggéey maa ngi ànd samay mbokk maa ngi ànd ak samay staff aw ma lu muy tiit aw lu may ragar yàlla rek laa gëm yàlla laa yaakaar lépp lu ma mën ngir am ci ndam dinaa ko jéem dinaa ko def sama mag la munu ko munu munu ma ci dara daf ma njëkk judd su ma ko njëkkoon juttam bët yow la may xoolee mm-hmm. bu arbitre sifflé nag diggantam mag ak rakk lu bay dakk kur fa a fay dakk ay mbot ak xaatar beeg caxabal ak xaat yeneen ak yooyu yaa ma gën a xam ndax mag bu saay saay muus mi de xaw ma lu ko boore ci po <laughs> bi nga ni bu arbitre génnee seen diggante dinañ lante moom ku xam xam ma du combat buy match nul am nee du combat buy waaw loolu mu wax moom amateur yi. engagement la bu mu jël. non Sa Thiès kay ku ne xam ni bar bi sifflé mu ngi sa kaw waaw loolu la combat bi kay. man ban problème laa am xam nga fan yee dafa am làmb ji fi amoon ñu tudd ci baatu combine quoi combine làmb ji est-ce que du làmb ji ñuy lijjanti quoi parce que man xàmmeewu ma tey Eumeu Sène xàmmeewu ma Sa sama mag la buñ ma chargé. liiru li ngay bañ ama seen moom lay def dëggal boppam rayanteeg Sa Thiès mais fi làmb ji jëm nii actuellement neexalante beeg raayante beeg te ama seen lii la commencé woon digganteem ak Tapha te dernier face to face ba ca la fippu est-ce que lii ñu tàmbali danañ ko yeggale non làmb ji moom xëy na ku nekk ak sa gis-gis ku nekk ak sa gis-gis mais ñi xam làmb dëgg j'espère ñi xam làmb xam nañu combat yomb foofu rek laa yem ñu xam làmb ñu xamul nag mun nañu wax mais ku xam ñaari mbër yi xam làmb dëgg du xam ni combat bi combat bi gën nekk combat derby ok. waa ji moom li muy wax rek laa ciy ñëwaat da da nga yow da nga da ngay da ngay provoqué da ngay provoqué dama déglu sax wax bu baax a baax du benn yoon du ñaari yoon da nga ciy insisté comme si ko yaay ko sam wala yaay saafam man nu mu ñëwee baax na mais nu ma ñëwee rek baax na. pare na maa ngi ñaan yàlla ànd ak moom yàlla may ma ndam je pare paré tous les plans mais man sañ naa taxaw bëdul sax bàyyi bu ma fayul sax man war naa taxaw fi ñooy wax wax comme yi askor moomul wax jooju sax dañ ko wax keneen mais pas ñun jërëjëf Sa est-ce que mën nañ xaar Sa bi nga xamante ni moom la ñu gisoon contre Reug Reug du bàyyi ndax dina bàyyi yoonam arbitre bi siffle combat bi sa combat la yow yaa ko soxla combat bi xam nga fi mu la mën a yóbbu ci sa carrière mën nañ wax ni combat bi c'est le combat de ta de sa que arbitre bu génnee sa diggante ak Eumeu Sène yaay def lépp yaay jëli parce que yow yaa soxla grand contre la bi ci mooy Eumeu Sène ce que mën nañ xaar Eumeu Sène arbitre bi sifflé ñu gis Eumeu Sène bi bëri woon ak Tapha Tine façon bëri bi nga indi Tapha Tine arbitre nga xeex nga bëre sa digganteeg Sa Thiès wala dangay ngay taxaw déglu ko parce que moom moo seetlu wala da taxaw xaar. wala ëmb ba bëre woon ak Gris Bordeaux man daal boobu laa nam est ce que mën nañ xaar ah, <laughs> loolu. Sa Thiès nee na booboo neex. loolu Sa nee na booboo neex ce que mën nañ xaar ëmb seen arbit bi génn sa digganteeg Sa Thiès nga fi tal jaar xeex ak xale bi bëri ak xale bi guddiñ toll nii Sa Thiès ku naqaree dëkku la ndax bu dee doole ji mi ngi fi bu dee bëri bi mu ngi fi te am na rapidité bi te moom moom yaram sàppali waaw man làmb moom lu mu laaj rek waaw ci jour yi rek la ñuy xool lu mu laaj ñu ko loolu kese la waaye waaw ci jour yi lu mu la wax làmb ci jour yi du fay xew fa lay xewee bu ñëwee lu làmb ji laaj rek ñu jox ko incha allah li ma gëm mooy dina neex dóor dina ci am bëri dina ci am jël bu leer maa wut si mi ñaa ñu ba soxla lu leer laay def déggoo ma ne dinaa ñëw ci jàmm su ma ko yàlla mayee dinaa lu dinaa def la ma daan def la ma daan def na ba yàlla may man dama ma yegg si fii ku ma ko changé loo dinaa la këdd am na solo grand Lamine maa ngi leen di ñaanal jàmm yéen ñëpp Sa Thiès ci yow laa njëkkee ama seen dama toog ak moom mu gëmloo ma ne ma li ngay def ci làmb ñëme ko def ci jour ji mu ne arbitre nanguwut a suuf la ci seen nga da nga la nga daan def ci làmb nga ñëw ci kawam kenn du la ko conseillé saa Thiès arbitre suuf ne dagg na jéngi ci kaw Eumeu Sène ndax loolu luñ mën a xaar la. boo ma tegaloo ñaari Eumeu Sène sa ñaaru ko raw man mu jom fulla fayda sama pap loolu la ma digal. dafa ne ma saa Thiès. waaw saalif. déggoo ma ne la bàyyi ñaari avance dañu war a jox. yaakaar maa ngi moom nii. wax naa la joxe ñaari avance yëpp dama ko war a yóbbu suñu paree dañoo war a bëriwaat da nga gëm ne Eumeu Sène mii bu arbitre lu ma gëmul ci Eumeu Sène du jël avance am te boo ko a avance sax damay bàyyi làmb man sama ngëm-ngëm moom fi andi du yaa fuus mooma may ndam nag côté boobu dama ko ciy félicité bu baax a baax mais ñàkk jom ak ñàkk fi samay moroom yëpp maa ci gën a néew defet wax ci li muy bëri yëpp kenn ku ci nekk am nga ko am am nga koo boot ngay wax lu la neex ci moom mais kenn gënuma ci carrière ak palmarès loolu moom li ma gëm la Sa Eumeu Sène gëmul ne. waxoon ngeen ko waxoon ngeen li ngeen wax nii waxoon ngeen ko sax sama combat bi passé. Sa Thiès Eumeu Sène mii gëmul ne li ngay def ci làmb di nga ko def ci kawam. waaw muy bëri bi Sa gëm. daal nañ ci yegg ak jàmm yàlla nañ ci yegg ak jàmm rek. maa ñaan yàlla may ma xaaral ma posé benn Eumeu Sène yaakaar naa ne yàgg nañ laa xam ci ndoxtu bëri te sànq dañoo toogoon ma yow di waxtaan ci mission nga ne ma Sa Thiès gaaw na loolu waaye melax la fi fekk Eumeu Sène li Sa Thiès daan def mbër yi arbitre sifflé Sa Thiès na Eumeu Sène dox la ci ko Eumeu Sène loolu la ci amateur yi a waaw d'abord lu mel ni liñu tontu rek mooy non waxuma la ne Sa Thiès def lu muy def gars yi loolu moom teguñu ko quoi bu ko ñemee voilà non anyway garaawul xam nga <laughs> waaw ñëw ci loolu rek jàmbaar waaw nit kenn ko changé mëninam moom boo kenn changé loo mëninam yaa ngi xaar Sa Thiès ñëw lam def lam daan def mbëri non non pour làmb ji neex waaw bu kenn ma loo nam bu Sa Thiès defee lam daan def mbëri waaw champion la non moom xam nga nit ku nekk ak cette stratégie lu mu tàmm def bu fekkee ne Sa Thiès ñëw na def la mu daan def mbëri seere Eumeu Sène percé Eumeu Sène ñëw cherché bëri bi lan loolu moo fa mën a am waaw nañ bàyyi bis bëri allah <laughs> jërëjëf merci léegi nag Malick yaakaar naa ni kenn du wax Eumeu Sène wooteel kenn du wax Sa wooteel mais ay professionnel lañu ci fànn wi ñu bokk ñun nag lii lañ ñu jàngal mooy si si dinañ dóor ñun liñ ñu jàngal Baye Ndiaye ñun li ñu jàngal mooy bu ñu bu ñu joxee lépp it kenn ku ci nekk dañ lay bàyyeek la nga am woo nañ suñu naatangoo yëpp kenn ku ci nekk jël kàddu léegi li li ci des mooy dañuy jox Malick suñu mag mu tëj mais ba laalaa loolu laataa loolu Eumeu Sène dina joxe kàddoom gu mujj Sa Thiès joxe kàddoom gu mujj Baye njaay gërëm nañ la sant nañ la na ñëpp ñibbi ci jàmm ak salaam Malick jërëjëf ñi ngi ñëw nag au terme de ce face to ñaari champion ñoom ñoo war a daje ñaari jàmbaar ñoom ñoo war a daje ñaar ñu ko xam ne duñu foye foyee bés ñoom ñoo war a daje respect nag am na ci seen diggante parce que loolu moo leen war waaye gëm naa ni sa jour là on aura un combat de feu on deux champions prêts à se battre prêt à donner le maximum Aïcha Ama ñu bàyyi la nga tëj Sa Thiès tëj ñu tàggoo waaw di santaat yàlla rek ñu ma di julliwaat ci yonent bi tedd bi sallallahu alayhi wa sallam di jaajëfal gaa yëpp quoi waaw merci waaw di euh, ñaan yàlla aussi combat bi ñu yegg ci jàmm ndax lu am importance la Baye aussi maa ngi lay ñaanal combat bi nga réussi ko ci jàmm sa yeneen combat yi ci des yëpp mu ko ci jàmm maa ngi gërëm ñëpp nag di woo suma waa dëkk di Casamance bi di ko teg ci loxo Sadio Nene Fall xam nga di gërëm suma waa koñ di Géejawaay ak gars yi ma ànd ñëpp. ak borom borom borom <laughs> maa ngi gërëm ñi nga xamante ne ñooy deux roues yi convoi bi ñëpp maa ngi leen di sant leen gërëm di sant aussi tamit euh, ñi nga xamante ne dañoo jàppale. Pape Mama Moussa Fall. Andaw Ndiaye ngeen may ma rek photographie dañu bëgg ñaari mbër yi ngeen pousse tuuti sama ñaari gaay pousse leen tuuti ñaari mbër yi ñoom la photographie soxla pour euh, la photo de la photo de fa la photo de famille. Aïcha les photographes pour immortaliser ce moment Lamine on se donne rendez-vous à très bientôt ci yeneen événement sur la grande télévision Futurs Médias jaajëf. KPR transfert local la ñun ñoo ko moom. di ci soññu Sénégal yëpp ñu consommer ko.